leen jàmm ci kër gi ngeen xam ne du jóg di gën di nekk Senweb muy Senweb TV ak Senweb point com comme niñ ko baaxoo ngoon gu ne ñu taseeg yéen fii def li nga xam ne moom mooy mbégteem koor mi ci grand plateau bi nga xam ne moom lañ leen di jagleel tey nag ci menu bi bokkul ak menu bi ngeen di seen fii menu bi tey dinañ waxtaane li nga xam ne moom mooy juróomeelu dans di rubrique bi nga xam ne Awa Fall moo ñu koy indil war cee duppe wala dalal ki nga xam ne moom mooy le président Idrissa Seck mais dinañ waxtaane aussi xam ngeen ne ci ponk rinkum yi ànd ceeg Mouhamadou Lamine Bara également gan gi mu ngi fii euh, ki nga xam ne moom mooy Babacar Kébé moom mooy dalal Balla Moussa Fofana bokk ci kuréel gi nga xamante ne nii moom mooy Pastef Mouhamadou Diallo dina bokk ci jotaay bi loolee lépp bu ñu ko dëxëñee moom mooy mënu bi ñu bàyyi leen ak oustaz Makhtar Sarr daal di koy yaatal kanam tuuti jaa ngeen jëf dalati leen jàmm salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi seetaan mbégte koor ci Seneweb TV noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala mu nangul nu sunuy koor jéggal nu sunuy bàkkaar mbokk yi mbégteel koor tey xadis biñ ci indi day wax ci mbugalum bàmmeel yàlla nañu ci yàlla musal yëg ngeen ne am na ñu gëmul ne mbugalum bàmmeel am na am na ko gëmul am na gëmul ne mbugalum bàmmeel am na ndax la ca gannaaw dee gëmunu ko dee nag moom kenn weddiwu ko ne am na dee xanaa kay ku nekk na koy tuddee waaye ki gëmul yàlla sax gëm na ne dee am na ndax dee rey na ku ko jege ku mu xam te amul pexe luy tax kooku mën a dekki kon dee moom gëmees na ko waaye la ca gannaaw dee la am ñu ko gëmul te ëpp naa def ngir nga doon ko gëm yàlla faaw nga gëm la ca gannaaw dee bàmmeel ak la fay xew danga koy gëm dekki da koy gëm bis penc dañ fay taxaw danga koy gëm dañuy peese jëf yi ku sa yu baax ëpp nga texe ku sa yu bon bon yu safaanu ëpp doo texe da koy gëm aljana da koy gëm safara danga koy gëm siraat nga koy gëm waaw yooyu di xew yomal xiyaam yëpp da koy gëm pour nga mën a doon ku gëm gannaaw boo gëmee yàlla malaaka yi téere yi bis péncëg et cetera mbugalum bàmmeel bi ci loolu lay wax yàlla ñu si yàlla musal yaa Aïcha radiallahu anha moo nettali ne anna yahudiyatan daxalat alayha fa dakarat adaab alqabri fa qaalat laha aadaki allahu min adaabi alqabri qaalat aishatu fa saaltu rasul allahi sala allahu alayhi wa sallam an adaabi alqabri fa qaala naam adaabu alqabri xaqun qaalat fama raaytu rasul allahi sala allahu alayhi wa sallam baadu salla salaatan illaa taawaza min adabil qabri yaay Aïcha nee na dafa am benn benn juif bu jigéen yahud bu jigéen dafa ñëw seet si yaay Aïcha di ko wax lu jëm ci mbugalum bàmmeel juif bi mooy wax yaa Aïcha lu jëm ci mbugalum bàmmeel ne ko yaa Aïcha ne ko yàlla na la si yàlla musal yàlla na la yàlla musal ci mbugalum bàmmeel wala juif bi moo ko ñaanal loolu ne ko yàlla na la yàlla musal ci mbugalum bàmmeel yàlla na la yàlla musal ci mbugalum bàmmeel juif bi seet ci yaa Aïcha moo ko ko ñaanal yaa Aïcha mel ni loolu leçon ci yenent bi daf ci àggagul li ko yenent bi jàngal àggagul ci fu mu koy jàngalee lu jëm ci mbugalum mbàmmeel bi juif bi demee rek mu ñëw ci yenent bi di ci wax ak moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko naam ah kay adaabul xabri xaqun mbugalum bàmmeel dëgg la lu am la yaa Aïcha ne ko yaa Aïcha ne depuis keroog bi ma yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne mbugalum bàmmeel lu am la amul julli gu yonent bi sallallahu alayhi di jullee ci lu dul ñaan na yàlla mu musal ko ci mbugalum bàmmeel laa ilaha illallah lu dul ñaan na yàlla mu musal ko ci mbugalum bàmmeel Buxaari ak Muslim yëpp solo nañu xadis bi am na beneen xadis bu Abdullah ibnu Mas'ud boo xam ne daf caa wax ni innal mawta naka ñu faatu ñi innal mawta ñëla ngeen di romb ñu tëdd ci armeelu Yoof yi ku ca yàlla yërëmul yàlla yërëm ñëpp ku ca yàlla yërëmul ak armeel yoo mënti romb fu mu ku ca yàlla yërëmul la yuadabuuna des na leen mbugal fii qubuurihim ci seen bàmmeel ya xatta inal bahayma ba ci bàyyima yi xar yéeg bay nag yi la tasmao aswaatahum dañuy dégg seen baadi bu ñuy yuuxu tabaraani moo ko soloo ci mujamul kabir mbugalum bàmmeel ku fa yàllay mbugal yàll na ma ump ump la yow seetaan ku fa yàllay mbugal ci biir bàmmeel yuuxu yi ngay yuuxu nit ak jinne dong nga ko dul dégg mais xar yi nag yi bëy yi ginaar yi ñëpp dañuy dégg yuuxu ki ñu mbugal ci biir bàmmeel waaw foofoo mat a bàyyi xel mbokk yi foofoo mat a bàyyi xel nañu góorgóorlu di def luy tee yàlla dumanu ci bàmmeel waaye nañuy ñaan yàlla musal nu ci mbugalum bàmmeel lii moo doon xaddisu tey bi yal na yàlla defal nu dégg ak topp defal leen ko ba lëg ak jàmm ci beneen xaddis wasalaam oustaz Makhtar Sarr comme niñ leen ko waxee woon ci euh, ponk yi euh, dañuy nuyoon euh, nuyonteeg ki nga xamante ne ni moom mooy Mouhamadou Diallo bàyyi ko mu nuyonteeg yéen ñu daal di door li nga xamante ne ni moom mooy yaatalu ponk ya jërëjëf Ameth maa lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ni ñoom lañ bokkal plateau bi waaye tam di nuyu ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ñuy teewlu euh, la bu baax a baax gan gi comme ni ma ko waxee sànq Babacar Kébé moo koy dalal Babacar maa ngi lay nuyu tey kan nga dalal Mouhamed maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ci waxtu yi ñoo ñuy teewlu donc di la nuyu comme ni nga ko waxee tey Moussa Balla Fofana moom la ñuy dalal tey mu bokkee ci li nga xam ne moo di parti Pastef xawatina coalition Diomaye Président bokk ci ñi nga xam ne également gën nañ fës dans le cadre technique ci li nga xamante ni moo di cabinet bu Ousmane Sonko rawatina bu Diomaye Président. jërëjëf Babacar Kébé eh, ni ngi eh, dinañ ko waxtaanee ànd ceeg ki nga xamante ni moom mooy Mouhamadou Amine Baara noo def. waaw jërëjëf Mouhamed de <laughs> di la ziar di ziar suñu gan gi di ziar Mouhamed eh, Diallo ak Babacar Kébé ak ñi nga xam ñoo ñuy seetaan ci kanam tuuti incha allah dina ñëw yaatal ci rinku mu tey bi nga xam ne dafay wax ci violence électorale. violence électorale ngay waxtaanee loolu am na solo <laughs> <laughs> ku wax euh, campagne électorale wax ne dafay am ay candidats ci candidats yooyu la kuñ ci baaxoo ak tàmm gis Euh, élection yu bëree bëri mu daal di ci bokk jéem a daagaan baatu askan wi donte boo boog léegi euh, askan wi nangalagu ko wala dénkagu ko li nga xamante ne ni moom mooy suñu réew mi euh, suñ ko waxee xel yu bari dinañ dem ci ki nga xamante ni moom mooy Idrissa Seck président Idrissa Seck jiite parti bi nga xam ne moom mooy réew mi ca kanam tuuti comme chaque jour dañ leen di indil benn candidat def li nga xam ne moom mooy portrait am wala biographie am Awa Fall moo ñuy gën a xamale tey ak Idrissa Seck soxna Awa maa ngi lay nuyu kontaan ci yéex a ñëw bi yow la ko tijji woyal ñëwati nga waaw ah, baax na. lu la tardel. war na yàlla li nga fi fekk lu ko gën a tar la fi bàyyi woon lu ko gën a tar nga fi fekkaat. lu la tardel. <laughs> est-ce que du yow. yaa ma moroo de yéex wala rob buy buubu. <laughs> yaa de mais quand même nuyu naa la di nuyu également ñi nekk ci plateau bi yëpp amaat mbégte àndaat ak yéen ci kanam comme ni nga ko waxee incha allah dinañ la présenter euh, Idrissa Seck borom beñe dugub. <laughs> donc ca kanam tuuti dinañ euh, ànd ak euh, Awa Fall ci kooku nga xam ne moom mooy euh, président Idrissa Seck gan gi comme ni ñu ko xamee Balla Moussa Fofana la wala Moussa Balla Fofana Jomaay mooy Sonko wala Sonko Jomaay tur bi naka la exactement. waaw <laughs> sëñ Ahmed moom ba mu lay nuyu foog mu boole ci. <laughs> non non ñuy dégg ñu naan Balla Moussa Fofana ñu naan Moussa Balla Fofana. la dëgg sëñ Kébé mhm. euh, sama waa ji moom xamu xamuñu xamuñu miinante mu Lamine Bara mhm. ak Soxna Awa vraiment am naa mbégte fekk lañ ci plateau bi euh, ci weeru koor bu sell wi euh, di ñaan suñu borom ñu waxtaanee fi loo xam ne day jëriñ askan wi. Mhm. di tontu ci sa laaj bu njëkk rek. tur wi Moussa Balla Fofana. Moussa Balla Fofana. mais nag comme dafa amoon grand homme politique ku tuddoon Balla Moussa Daffé. Daffé yenn saa yi sax dañ may santale dafe bi benn yoon. bu Sédhiou bu Sédhiou est-ce que bokkul dara ak euh, c'est son papa. c'est le papa mhm. Mhm. donc euh, donc moo tax souvent nit ñi dañuy inverser sama tur jox ma sant bu dul sama sant waaw <laughs> bàlle bi lañuy ñuy jiital. <laughs> Ah. Euh, voilà loolu loolu la nag. loolu mais mais lépp lép lépp benn la. parce que Sénégalais waaw waaw Balla mooy Moussa gaa loolu moom benn la benn la. <laughs> te moom it dafa def ay preuve ci politique. ki Euh, mës naa am ak moom jotaay mu mu def ma njàngale mu mu am solo. Mhm. ci sud bi. mu ne mbiru yàlla ku koy nangu da ngay noppalu mu may jox exemple ci Sadio Mané ak Ousmane Sonko mu ne ñoom façon xeex bu ne xeex nañ ko pour yóbbu drapeau sud bi. Mhm. fësal Casamance tuur nañ ci deret ay nit dee nañ ci ñàkk nañ ci lu ne te sottiwul. ñaar ñii defuñu loolu lépp te fu ne yóbbu nañ ko tur bi mu ne euh, bambaal yi mi nga xam ne. lu gënoon a ndaw la ci sud bi mhm, mhm. kii xeexul reyul nit deful dara yóbbu na turu bàmbaali tey fu Ziguinchor wala Sédhiou wala euh, feneen ak feneen àggul mhm, te mbiri yàlla kese la muy wax ne voilà ku gëm yàlla rek boo ko boo ko defee noppale mu nekkoon jàngale mu am solo di ko nuyu euh, di nuyu njabootam yëpp ayib daafe comme ni nga ko waxee honorable député merci beaucoup euh, dañuy daal di door jotaay bi ak ki nga xam ne moom mooy Mouhamed Lamine Bara tey rinkum bi nga ne violence électorale ngay waxee moo tax duggee foofu ci Balla Moussa <laughs> jërëjëf Ameth Ndoye tey nag li ñuy waxtaanee dafay jëm ci li nga xam moo di violence électorale euh, journal bi nga xam moo di l'observateur daal di koy xëyee tey daal di ne violence électorale euh, mésaventure de victimes de campagne mu nekk loo xam ne ni ñu ngi koy nemeeku depuis bi ñu dooree campagne électorale bien avant même sax doon nañ gis ay affaires yoo xam doon na am ci entre euh, ñi nga xam ñoo nekk ay politiciens ak ñooñu noonu mais tey ji dafa dem ba yegg ci ñi xam ñoo di ay militants te liñ ci nemeeku boobu ba léegi ay daje moo koy sooke maanaam bu fekkee ni dafa am caravane boo xam ne dafa am fu mu jugee dajeeg beneen caravane boo xam ne adversaire am parce que mën naa jàpp ne ñëpp ñi nga xam ñoo nekk ci actuellement campagne bi ay adversaire lañ seen biir mais peut-être dafa am ñoo xam ne nag euh, dafay gën a metti seen diggante parce que bu ñu seetloo bu baax a baax ki nga xam ne nii par exemple moo di waa taxawu euh, Khalifa Sall bi mu dajeek euh, ku ci mel ni Amadou Ba gis nañ saafante nañu Khalifa Sall am na bu mu dajeek kii tamit Ali Mamadou Dia aussi tamit saafante nañu mhm. waaye bi nga xamee ni par exemple waa Diomaye président dañuy dajeek waa Benno Bokk Yaakaar a chaque fois bu doon dajee rek dafay am loo xam ne dafay am seen diggante ba tax na démb ca fa nga xam ne moo di Daaru Musi Diomaye président dañ doon def caravane foofu noonu ka nga xam ne peut-être moom lañ gën a ràññee ci caravane boobu moo di euh, Cheikh Bara Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon dañ leen daal di attaqué foofu ca Darou Moussi ba ay sox daal di fay daal di euh, jib euh, ba ñu daal di dakkal sax même seen caravane bi nga xam ne dañ ko a continuer pour mën a foofu ca Mbàkke pour mënoon fa yeggali seen seen cette campagne mu jéew ñu dem parce que dañoo jàpp ne nekkatuñu ci kaaraange aussi tamit am na loo xam ne foog ñu taxaw daal di koy dénoncé ba tax ñu jógee foofu ca daaru Moussi ñëwoon fii ci Ndakaaru tey doon fa def benn Euh, rencontre benn conférence de presse boo xam ne daal dina fay leeral lu bëree bëri ci la nga xam ne moo am ca foofu ca Daaru Musi ay nervi ñoo leen attaqué te ki mu duut baaraamu tuuma moo di ki nga xam ne ni moo di du jaañ Fada bi nga xam ne dañoo jàpp ne ab politicien la boo xam ne mu nga foofu ca Daaru Musi waaye euh, diisatul ginnaaw bi ñu dégloo ñenn ñi nga xam ñoo def ay témoignages nee nañu loolu moo tax ñoom ñu daal attaque eh, li nga xam moo di Diomaye président ak ñoom Cheikh Bara Ndiaye ak ñooñ jot nañu déglu même Cheikh Bara Ndiaye ci ay kàddoom dem na ba sax dafa mer ci ay waxam parce que mi ngi naan bu fekkee ni góol ak leen loo xam ne da ko ca teg na taxaw affronté ko parce que xam na ni euh, le soir du 24 mars ki nga xam ne moo di Diomaye Faye mooy gagné te Amadou Ba du gagné dara loolu ay kàddu yi ki nga xam ne Cheikh Bara Ndiaye la ak ñoom Mara Niass ak ñeneen ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci jomaay euh, président ñaawlu nañ ko trop trop trop waaye aussi tamit gis nañu euh, daje bi nga xam ne moo nar na am entre jomaay président ak euh, waa Benno Bokk Yaakaar foofu ca Euh, Kédougou mujjeewuñu mujjeewul am loolu tamit dañoo ouf de soulagement sax la mujjee jur parce que xam nañ ne buñ woon foofu doon na nekk loo xam ne lu metti lay doon parce que Benno Bokk Yaakaar ak li nga xam moo di Diomaye président jàpp nañ ne mooy li nga xam moo di duel bi gën a metti ci campagne électorale bi ñu di comme ni ñu ko doon waxee dem mën nañ jàpp ne sax peut-être li ñu nekk li ñu ne ñooy favori moo waral loolu aussi tamit gis nañ tamit ay exemple yoo xam ne tamit war nañ ci mën a sukkandeku lu mel ni daje yi nga xam ne mooy am ces temps entre jomaay ak ki nga xam ne ni par exemple moo di. Euh, non non Aliou Mamadou Dia Aliou Mamadou Dia. jot nañoo saafante tamit loolu tamit dafay gën li nga rafetal li nga xam moo di diggante yi ba ñu mën a yeggali campagne parce que quelques jours moo ci des bu ñu xeexee ba yegg si fii tey war nañoo mën a def de telle sorte que. dara du ko yàq rawatina li nga xam moo di violence parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar waaye yenn saa tamit nga gis ñoo xam ne dañ koy dégradé ñi dañ koy ndel ñi bëgg ko peñe te tamit buñ ko jàppee noonu daal dafay xaw a doy waar donc li nga xam moo di violence électorale bi jot na am ay affaire yooyu jot nañ ko cee nemmeeku te nekkul li nga xam moom la ñuy séentu léegi nag question bi ñuy bi ñuy samp mooy lan moo tax euh, mënuñoo ñëpp ñëpp daje sa afante bu fekkee ni ku ci nekk réew mi nga bëgg rek jarul xee jarul <laughs> merci beaucoup Baara géwél ba loolu la doon wax nee na Sénégal benn bopp la bopp bu rëy la waaye dafa dëkkee métti <laughs> loolu rek ay cat li bopp bu rëy bu dëkkee métti la Moussa euh, laaj bi nga xam ne moom la Baara samp euh, nan nga nan nga jàngatee li li violence ak lan moo tax manta ñàkk parce que ni mu waxee mooy lu tax mënuñu daje rek saafonte xeex bi nag nekk xeexu idée lu tax mu jafe ñu ñun suñu réew yi euh, laaj bi am na solo et puis actualité la li tax mënta ñàkk mooy dafa bëri ñoo xam ne ni ñuy duggee ci politique ak démarché bi ñu ci war a am malheureusement dañuy andi leneen loo xam ne bokkut ak loolu parce que politique nekkul lenn lu dul nga proposer euh, sa vision ci naka lañ war a yoree dëkk loolu de mooy politique yor benn projet ah man de réew mi fii laa ko bëgg a jëmale wala sama mairie municipalité bi ñu bokk fii laa ko bëgg a jëmale wala département wala région ñu wuute ci ay xalaat hmm. association bu nekk ne moom fii la jëm hmm. te politique nit ñu am yenn accomplissement yi ñoo koy def ñi nga xam ne dem nañ ba ne léegi il est temps ñu delloo seen askan li seen askan def ci ñoom hmm. donc bu fekkente ne projet bi leer na ba noppi leader bi xam ne fi mu toll ci maturité yar njabootam ba njabootam am comportement bu exemplaire day doon loolu mën a nekk surtout bu ñu nekkee ci partie yoo xam ne organiser na ba am école du parti am éducation bu ñu war am donc ñaare bu ñett yooyu dajee maanaam partie bu xam li ko tax a jóg dëgg dëgg ba leeral ko mm-hmm. leader bu xam ne moom day delloo askan wi li askan wi def ci moom ba noppi mu yar njabootam ci ay valeur ak i principe mm-hmm. bu partie politique yépp meloon noonu coow du am ci réew mi beneen bi njiit yi bu fekkee tamit njiit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw mhm. ñoom la ñuy déglu ñoom la askan wi jox nopp mhm. euh, seen i discours dafa violent lool mhm. wala ñoom seeni i biir euh, si seen i discours fu ñu dajee rek daanaka euh, xeex lay lay gën a nuru est-ce que du loolu mooy laaw ba ci li nga xam ne moom mooy seen militant yi ba fu ñu tasee jàmm du fa mën a am du discours yi la ñu war a xoolaat su fekkente ne projet bi dafa vide la nga koy remplir ay discours yoo xamante ne nii c'est centré sur les personnes xam nga nit bu fekkente ne yow problème mu sénégalais yi comprendre nga ko bu ñu la mayee une heure de temps sax doyul pour nga wax problème mu sénégalais yëpp ak apporter ay solution mais bu fekkente ne malheureusement diagnostic bi nga war a def ak offre bi nga war a def nekku fi sa logique mooy jaay guerrier wax-wax euh, ju tàng te loolu effectivement dafay arranger sa jeunesse day tax ñi bokk ci yow xaw a tàng deret loolu dafa am lu muy def ci ñoom hmm. et looloo tax des fois ñuy gis ay affaires yu regrettable malheureusement nag aussi nit ki boo ko songee mu défendre parce que man pour te dire depuis campagne bi maa ngi def campagne bi Diourbel tout le temps ah ku ñu songoon duñ toog di la xool parce que on va défendre nos vies nos matériels ak nit ñi ànd ak ñun. mais justement laaj bu mujj laataa may jox te loolu justement moo tax ma ne la aussi mm-hmm. même bu ñuy bu ñëpp maas maasoo bu ñëpp maasee ci. véritablement nañ teg politique bi ci xam-xam teg ko ci dëgg teg ko ci liggéey teg ko ci yërmande am yar ñëpp buñ ko defee rek jàmm na ñooy mais su amee yenn yenn saa yi benn ñebbi si cin mooy tax euh, affaire yi ñu ñu dégg coow lu bëri parce que campagne bi mu commencé ba léegi quand même am nañ plusieurs jours c'est la première fois ñu dégg coow lu mel nii je pense ci fële ca ca Daaru Musi ñu koy regretté nag euh, maa maa ngi doon wax laaj bu mujj laataa may jox Babacar ak ñoom Mohamed ñu réagir bi mhm. euh, li nga xam ne moom mooy forme campagne bi Mm-hmm. est-ce que parce que yaa ngi wax ci sa biir wax boo doon caravane keneen taseeg yow est-ce que du forme campagne bi tamit la ñu war a la ñu a la ñu xolaat parce que bëri na ci réew yoo xamante ne ñun forme bii ñuy doxale mm-hmm. maanaam ñu baal ma ci kàddu yi bëri mbumbaay ak xumbaay ak mm-hmm. bay waral ay tase pour violence di mën a am ñu ci bëri dañuy daje ci saal yi ci amphi yi waxtaan ak secteur bi ñu bëgg a waxtaanal maanaa ñu jël par exemple sport wala culture euh, wala agriculture ñu daje fii grand théâtre candidat bi ñëw exposer leen programme bi mu ci am ñu poser ko ci ay question mu génnaat ndànk dem ñibbi campagne boo xamante ne nii dañuy bàyyi li nga xam ne moom mooy xumbaay bi est-ce que du ci form bi nga jàpp ne moom mooy moom favoriser violence bi. non ay nit ñu civilisé mën nañ daje n'importe où am comportement bu bu mën nañ daje ci salle <laughs> mujj fa kur <laughs> xam nga loolu mën a lekk la donc lépp mu ngi nekk ci état de d'esprit bi. man c'est pas parce que dans commune diw sama adversaire la que su ma dajeeg moom du ma ko nuyu dama koy nuyu saafonteeg moom. Mm-hmm. je pense que ci culture la rek. ak nit ki fu mu toll ci ci ci lan la comprendre ci politique ak lan mooy apportam ci politique nit ki su dee yow tu n'es pas accompli cest à que ne yow sa njàng sa njàng pareegul sa liggéey bënnut mhm. yu bëri des na boo duggee ci formation politique bu ñu moytuwul rek nga yaakaar ne doole xët-xët ak wax ju ñaaw mooy mottali sa existence ci politique alors que ne demeewul noonu ameewul noonu njëriñ mhm. donc man vraiment j'insiste sur ce point euh, boo gisee tam ñun caravane ñoo ñu ko def contexte bi la aussi parce que parti politique yi yenn moyens yi amuñ ko. Euh, mënoo fi nekk di organiser ay meeting organiser meeting c' est c' est compliqué. Mm-hmm. louer salle dugg di est compliqué alors que caravane tey mën nga dugg dans les quartiers def proximité. Ah, ñëw wax ak nit ñi jox leen spécimen bi expliquer leen li ngeen bëgg a expliquer ñu poser la ay question nga nga tontu leen. Mm-hmm. loolu baax da ci am am am solo. Mm-hmm. merci beaucoup euh, monsieur Fofana baabaka li nga xamante ne nii moom mooy violence politique bi yàgg na fi ah. du du ren du du campagne bi rek moo moo tax ñuy wax souvent sax ci campagne locale yi élection municipalité yi lay ëppee. Mhm. Euh, léegi lan ngeen jàpp ne moo war a nekk saafara bi nag dëggantaan pour ñu éviter ko. xam nga dañoo dem ba benn instant am lu ñu baaxoo woon mu daan bokk au cours des partis politiques ñu ko daan formé woo <coughs> avant ñu yegg parfois ci benn niveau boo xamante ni dañ lay considérer comme un homme politique mais aujourd'hui malheureusement on est arrivé niveau boo xamante ni. c'est-à-dire parti politique amatul benn organisation boo xam ne les gens peuvent dire exactement que ni lii mooy kii wala kii lii la war a mën def c'est-à-dire l'école du parti bi nga xam ne ko daan wax dafa daan permettre ñi daan ñëw di engagé wu dans le parti politique ñoom ñu daan am au moins benn yokkute boo xam ne ñi leen jiitu ci biir parti bi mën nañ leen tàggat ba ñu war a mën a xam exactement naka la ñu war a mën a doxalee su des relation mais je pense que ni problème bi gën a mag mooy ceux qui par rapport à ce man je peux en témoigner en tant que quelqu'un boo xamante ni j'ai souvent été sur le terrain di couvrir ay manifestations wala may couvrir parfois ay campagnes yoo xam ne dafay am mm-hmm. parfois lu ci ëpp man dama yaakaar que ne mu ngi bokk ci kan moo am capacité pouvoir regrouper wala moom muy indi benn mbooloo boo xam ne peut-être au moins dina am lu muy accompagner wala au moins mu koy joxe aujourd'hui suñu problème bi gën a mag bi nga xamante ni jot naa taxaw ci biir parti politique yi ba di faral di am mu ngi commencé ci composante bi ñuy def ñoom ci seen ay discours <coughs> nit mën na dencal keneen loo xam ne dina romb diirub at di xaar exactement ba benn jour bi nga xam ne di ko jege peut-être mu jëflante ko ak yow c'est-à-dire que loolu dafay mettre un peu par rapport ak lii suñu invité di wax sànq mooy ñoom ci seen jëm bopp bu ñu toogee jàkkaarloog askan bi quel discours dois-tu mener exactement pour essayer de convaincre léegi yow su fekkente ni da nga teg dans le cadre mais booy wax ak moom daanaka yow pour des questions personnelles kese nga war a mën soulever dafa am loo xam ne nit ki mën na di la ko dencal beneen bi également mooy que ni quand tu peines exactement à prouver li nga mën a li nga war a a am ci question de capacité comme am benn électorat bi wala am ay yenn nit yi nga xamante ne lay fekk si léeg-léeg loolu aussi pourquoi pas bu nit ki ñëwee wane benn mbir boo xamante ni lu bett la ci sa biir gox mën na nekk lu lay métti lool ba nga ne non du ma ko bàyyi mu ñëw di prouver mhm. exactement que ni man je peux plus exister chez moi li gën a garaaw mooy que parfois nga war a mën a ñàkk sa biir gox pour bañ mu feeñ nga ne non keneen du fi ñëw di prouver leneen loo xamante ni contraire man li mu war a joxe lay doon donc jàpp naa ne li ci ëpp boo koy xool bu baax dafay fekk si ci homme politique yi nga xam ne dans leur propre zone non seulement perdre nañu parfois benn notoriété bi nga xamante ni jotoon nañu ko am beneen bi ci gën a garaaw ñu baree bari ñu leen di topp amuñu contrôle ci ñoom pour mën leen sàmm ni nga xamante ni noonu la waree parce que je vais citer l'exemple d'Ousmane Sonko au niveau de Kolda à huer les gendarmes ou je sais pas kon bu leen leen def leneen donc si vous imaginez que bu nekkoon ñett nit ñoo xam ne dañoo soloon t-shirt Amadou Ba doon romb ci ndaje moomu noonu wala ñu fa doon ñëw si balaa ñuy xam exactement lan moom moo xew loolu su boobaa leneen lay doon man dem naa fi Ziguinchor di couvrir benn événement sol euh, utiliser les bonnets de Seneweb à un certain moment j'étais obligé d'enlever les bonnets pour mën a génn pourquoi parce que y avait des informations yu doon Sall lu ñu dal wala li dal Ousmane Sonko ñoom ils en font partie dama obligé di sumi bonnet Seneweb donc di def li may def pour utiliser bonnet nuit moom laa daan utiliser benn instant t-shirt yi ñuy joxoon te mu amoon ay logo Seneweb on était obligé également de les cacher solaat yeneen yére yoo xamante ni du ñu mën di ñu identifier catégoriquement ne ñii Seneweb la ñu bokk wala bokkuñu ci donc loolee boo ko demee baax mooy que ni am na message boo xam ne véhiculé nañ ko à xamante ni ça signifie le contraire ak moom ci lu mu naa ne ñu ngi ko war a tënk ci nan la ñuy def bi ko fi mooy nga xamante ni ñoo nekk ci kaw a a faire passer le message nañuy waxtaan ak ndaw ñi ci ay mbir yoo xamante nii du bokk jokk wala ci li nga xam moo di ay cadre personnel donc bu ñu éviter li bokk ci wàllum personnalisé rek jàpp naa ne war na mën a évacuer wu te loolu pour mu war a mën a am dafay fekk ne parti politique bi taxaw dafay teg projet boo xamante ni bu dëgër lay doon ba tout un chacun ci biir parti bi wara mën a am capacité de défendre des idées et des yoo xam ne bu toogee dina am leneen lu muy tal di ko wax. Mm-hmm. dul di wax ci des débats de personne wala yeneen ak yeneen. merci beaucoup euh, Babacar Kébé ma jox Mouhamadou Diallo euh, Mouhamed euh, yow it lan nga jàpp ne moom moo war a nekk solution par rapport ak violence bi fi yàgg lool ci. Ahmed boo fàttali ko 2019 on avait 21 jours de campagne. 5 mm-hmm. candidats moom ay violence ñu koy bay bayal ba ñu dem Tamba mu am ku dee état bi soogaa jël décision ne candidat yëpp dal leen accompagner sécurité jàmm am mhm. ren on a douze jours de campagne vingt et un vingt dix neuf candidats nga gis ne mi nga am ay violence yu ndaw Daaru Muxti nemeeku nañ ko fa Kaffrine nemmeeku nañ ko fa mhm. bu nu moytuwul parcelle amoon na ñooro parcelle amoon na ñooro durib war a bu nu moytu ne fa am parce que tey booy xool localité yi li ñu am en mooy ñu bañ ko wax ñu wax ko les leaders yi fa nekk ñoom dañuy jàppee fi ñu dëkk comme benn Euh, titre foncier entre guillemets. Mhm. maanaam fii man maa fi nekk maire man maa fi nekk responsable politique parti bi du nangu keneen ku bokk opposition di fi ñëw. or loolu noonu bu ko nit waxee da ngay aussi dëkk yi nga xam ne ni opposant bi dafa fort. Mhm. bu ne par exemple fii Amadou Ba du fi dugg yow nga ne fee ne Diomaye du fa dugg exemple. c' est que Diomaye Faye duggam fee ne na jafe mais ndax yaa ngi sóoraale bu Amadou Ba waree dugg feneen. Mhm. a campagne fu la neex. Euh, contrairement ak li ñu bëri jàpp man jàpp naa ne débat programme amoon na parce boo xoolee lu mel ni CFA bi Bassirou Diomaye Faye si Ousmane mhm. euh, le président Macky Sall wax na si tey jii mhm. gis naa ko même si renégociation yenn contrat yi ñun siy wax même le président Macky Sall tey ji réagir na si mhm. pour dire que débat programme bi nga am mais violence bu xasee tab rek loolu noonu yëpp day tuxu or douze jours de campagne lañu am vingt un candidats je pense que nguur gi xam na nu mu war a def pour jàmm am je pense que am nañ assez de forces de défense et de sécurité pour mën a sécuriser les candidats parce que ñooñu bu ñu taxawee dafa am benn euh, effet dissuasif boo xam daf koy def si ñeneen ñi nga xam ni ñaaw def la war a nekk. je pense qu'il faut anticiper sur ça moo gën ñuy seetaan ba li xewoon 2019 xewoon xewaat fii après ñuy naan dañuy jël ay mesures je pense qu'il est encore temps que ñu a jël si wàllum lan moo tax ñii ñëpp boros nañ ko mooy man yow laa ko sañ a lan moo tax ñaar ñii rek la ñuy gis nag ñoom ñooy ñoom ñooy xeex seen biir nag muy muy waa waa waa Diomaye président ak euh, coalition Benno Bokk Yaakaar bu amadu Ba. c'est parce que violence physique abet dafay dooree ci violence verbale boo xoolee campagne bi yëpp. des fois taxaw ak Pastef tam bu ñu tasee. taxaw ak Pastef aussi mooy loolu de. bu ñu tasee. waaw bu ñu tasee mun na am jàmm dafa am de. en tout cas lii mujj loolu la woon. xaw nag waaw jot nañoo laale euh, HLM. Grand Yoff waaw effectivement malheureux warul amaat quoi. jot nañ laale HLM mais dina amaat parce que surtout ci vote a la. ci biir vote yi. ci biir maa la ko wax. daa nuyoo rek. Euh, non vote moom je ne mais. campagne bi ça sera catastrophique campagne bi suñu moytuwul moom. Eva euh, mmh. daal mais nag les discours ont beaucoup varié nag en tout temps. Mmh. boo xool leader yi sànni leen xeer noonu daal. Eva Aïcha daane la yow loo jàpp ne moom bon man au la de leaders comme li Diallo wax leaders yi da ngay sentir ci ñoom benn maturité boo xam ne des fois du ñu wax loo xam ne quand mën na indi parce que am nañ loo xam ne moom la ñu dëkkmal campagne bi ren temps bi ñu am bariwul mais quand même ngi def le tout pour jéem convaincre askan <coughs> teg projets yoo xam ne nii wala ñu teg programme boo xam ne nit ñi mën nañ ci basé wu mu nekk de bonnes raisons yoo xam ne mën nañ ci convaincre nit ñi ñu jàpp ne que candidat bii la ñu war a mais au-delà de ça li may wax moo di li ñuy wax buur aayu dag yaa aay man dag yi laa jàpp ne quand même ñoom ñoo ñuy indi problème bi des fois da leen di dégg sax ñuy wax bay tudd ay baat yoo xam ne seen papa seen yaay ay saagante yoo xam ne après mën na indi violence mooy li ma wax léegi duma ci xuus wala duma ma ci sori lu yàgg violence verbale bi laa gën a sentir que ne euh, ci la ñu war a mën a quand même xool naka la ñuy def ba éviter ko parce que violence verbale d'habitude mooy parce que déglu naa ay kàddu yoo xam ne vraiment buñ ci teelul jóg mën na indi problème ci muy li xew Wuro Sogi yi jàll mi ngi koy boros boros léegi bu ñu demee tey jii ba ñu bari di dal ci kaw Moussa Bocar Thiam c'est parce que li mu wax donc mën na jur loo ne nii tey euh, bu dul élection yi wala élection yi jàll mën na indi problème mu xeet ba nga xamante ne nii après mën na jur yeneen ak yeneen et que war a mën a éviter la élection yi euh, jàmm war na fi mën a am mais quand dañuy renvoyer rek ci euh, des fois li ñuy wax à chaque fois politiciens yi moom lu mu leen lu mu jaral na leen ne pour ñu am euh, mandat wala ñu nekk ci kaw mais en tout cas lu mën a xew violence bi nekk loo xam ne luy résoudre problème bi la wala mooy tax seen candidat yi falu donc euh, dégg naa sànq monsieur Fofana mu koy wax des fois euh, da gis koo xam ne wax na ba waxam jeex wala amul lu mu tegal sénégalais yi lu mën a convaincre nit ñi day mottali ko wax ju ñaaw ak ay saaga te mooy jur quand même am léegi. jërëjëf soxna Eva Fall borom rinkub bi. waaw euh, lii nag mooy rinkum dëgg nag violence la àndal <laughs> rinkum moom fu mu nekk violence dafa ñàkk <laughs> waaw de kon kon mu ngi collision waaw kon mu kon kon kon kon mu ngi noonu man leen man daal lenn daal moom ci jaaxal di gunge koo xam ne comme ni ko olof yi waxee biiram mu ngi daw dawul ngay daw saa di man ki may àndal man mu nekk sama candidat man mu su su dara ne yund ñu dugal ko ci 4-4 bi ay ponkal wër ko mu dem ñibbi man ma war faa taxaw di reyante te man moom laay gunge pour mu jiite <laughs> c'est-à-dire moom lu tax taxawul reyante wàcc di sànnante xeer wala yor jaasi man ma koy defal loolu daal kaala ma def nervi yi tamit desu ci parce que chaque fois problème su amee dañ naan nervi nervi <coughs> waaw nervi bi mooy mooy ñiy gunge waate rek mm, ki ñuy gunge dawul ñuy dawal non nervi moom suñ ko waxee na ñëpp jiwuñ baaraamu tuuma monsieur Macky Sall lu jiñ njaaga moom parce que c'est lui qui a instauré tout que mu bay bayal ko de 2000 2000 2010 2011 ba 2024 il en est propre responsable par rapport lu ci mënti am et il n'a pas aussi posé des actes yoo xamante ni mën na ko remédier étant président même il s'est permis de sortir en dehors de Dakar di ànd ak ay nervi ñuy bastonner ay nit sous ses ok loolu kuy cautionné loolu kay lu mën a xew tamit il faut l'accepter. jërëjëf Babacar Kébé jërë ngeen jëf loolu moo nekkoon uh, rinkum bu njëkk bi ba xam ne dañ ko ciy ñambaas comme Mouhamed Diallo nu mu nu ma ko santé tout à l'heure daf ñu dab ci yoon bi. Mhm. parce que uh, y a de temps bi nga xamee ni. kii di de Wade publié ci benn page Facebook am di wax ni par rapport ak euh, élection yi dans cette euh, campagne électorale je constate beaucoup d'agitation de manœuvres et d'intox autour de la stratégie que la coalition Karim 2024 et le PDS pourraient adopter en vue de l'élection présidentielle de dimanche prochain pour l'instant nous n'avons pris aucune proposition plusieurs candidats m'ont déjà appelé et je viens longuement d'échanger avec Khalifa Ababacar Sall devient par ailleurs de prendre connaissance des dernières tendances officielles des instituts de sondage qui nous accompagnent depuis six mois. Aucun des candidats n'atteint le niveau que j'avais obtenu en termes d'intention de vote à la veille de mon élimination arbitraire et injuste par le Conseil constitutionnel. Ces, ces tendances montrent clairement qu'il y aura un second tour. La réflexion continue. loolu mooy kàddu yi nga xam ne ni moo di Karim Wade euh, <laughs> ku ne xam na bu baax a baax ni ñoom bëggoon nañoo bokk jéem nañu pexe nañu mais mujjewuñoo bokk ci li nga xam moo di élection bi ñu dëgmal ba tey ñoom ñu ngi ne eh, combat bi ko ni mais xaw ma nag bi kañ lay jeex mais aussi nee na euh, sentir na ay manœuvre ak ay intox yoo xam ne am na ci biir waaye aussi tamit ku ci yaa ngi koy jéem a woo pour euh, daal di dagaan maanaam doole ji nga xam ne moom moom la jàpp ne moom la am euh, ak électorat bi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw pour mu ñu accompagner la ku ci mel ni Khalifa Sall surtout bi nga xam ne nee waxtaan nañ lu yaatoo yaatu waaye fi ne nii mi ngi déglu te mi ngi xalaat ci fan la war a joxoñ wala tamit ndax la mu waxoon ca lay ko ne nekk wala am déet. réaction monsieur Fofana par rapport ak li nga xam ne moom la euh, Karim wax. en fait je pense que ci li ma dégg en fait phrase bi mujj utiliser mooy la réflexion continue. waaw ñun nag ñun nekkatuñu ci phase de réflexion nag fa dëgg yàlla. ñun guddi yi ñu toll ci phase action ak finalisation vote bi lañ nekk. ñun ci ñun franchement ñun ci loolu lañ toll donc xëy na am na défasage entre lecture bi mu am ci situation bi. est-ce que du bi moo indi déphasage. waaw distance nag moom xam nga même direct sax. Mm-hmm. des fois mu am décalage quoi. waaw yéen techniciens yi xam ngeen loolu. Mm. même booy def direct des fois canal ngay saan canal bit bi mm. dugg. dugg ci koñ bële bu yàgg yéen seen waa koñ doo koo yëg ndax li ma koy li may bañ vraiment eh, je suis xëy na reelu na mais ngay bit bi dugg na fii bu yàgg xaar mais dafa àggagul Qatar quoi voilà déjà ba loolu day am na moytu daal di xaar second tour comme moo lakk caaxi far far <laughs> premier tour ñëw ne ko second tour amut. loolu tam erreur la. mais comme c'est vrai muy wax comme ni mu ko waxee. réew la <laughs> mais surtout boo jëlee ci exemple lu direct. ñi nga direct man mën nga am décalage non seulement. Mm. mais surtout bu fekkee amoo retour bu baax. bu fekkee ñi lay jox retour ñoom information yi ñu lay jox. bokkul ak dara fa gars yi nekk la fay xew. da gën a réeral. da lay gën a réeral waaw da lay gën a réeral Babacar noo gisee. ak terme <laughs> nga politique da nga koy dund. Mm. politique terrain <laughs> waaw politique moom terrain la da ngay wàcc ci dëkk bi jaxasoog nit ñi waaw xam nga campagne bi par exemple man mii nga xam ne maa ngi campagne sa njaareem mm. marché jeudi nga dem dugg ca marché ba mm. di joxe ay spécimen nit ñi di wax ak yow mm. laa da ngay sentir ndax yow mii sa sa sa li ngay yor saf na nit ñi wala saful kenn leen donc man daal li ma koy wax rek mooy sondage yi na ko moytu xam ne politique terrain la présence la sénégalais yi dañoo nit ki di ko dégg ak di ko xool. Mm-hmm. dafa am solo. waaw di xaar second tour nag far premier tour ñëw jàll moom <laughs> am na lu ko gën. Babacar. Euh, Ahmed su ma waxaatee nag waa Parti démocratique sénégalais comme niñ ko baaxook man depuis un mois car bi da leen fi bàyyi xam nga bu la fi car bi bàyyee mooy ñu toll ci moment de finalisation déjà li il dit que ni ñoom ci sondage yu ñu am gisuñ kenn koo xam ne am na gu ñu am ñoom. n'est-ce pas loolu ñu am ñoom maanaam gisul kenn koo xam ne peut-être. jege na ko jege na waxul tollu de jege na ko. waaw c'est ce qui est faux ba déjà loolu dëgg parce que beneen bi li la koy gën mooy que depuis que ñu commencé jusqu'à présent bi ñu demee ci élection yi ñoom pour ñu mën a am dix députés assemblée nationale ils étaient dans l'obligation de se ranger ci beneen coalition. Mm-hmm. kon xam nga li ngay wax dëppuwul ak li nga xam ne moo nekk la réalité sur le terrain. Mm-hmm. beneen bi ci topp mooy moo parce que Karim gisuma ko mu mën a demal fii ne moom lay àndal mënoo jiiñ Amadou Ba sàcc te moom lañ doon xalaat moom nga gën a jege parce que da ko jiiñ ko jubul tu peux pas comprendre nga jiiñ ne ki ne jubul ba pare bëgg ëlbatiku di àndaat ak moom c'est contradictoire beneen bi mooy côté bee ne côté droite tu n'oses pas dem di fa tege ci sa tànk parce que bi ñu dem assemblée nationale da nga def une intercoalition yeewi wàllu ñu dem assemblée national ni nga doxalee mu ñaaw lool les sénégalais di la ci mbambu amuloo droit di fa dem kan lay war a mën a nekk xalifa Babacar Sall il a bien raison de de souligner Khalifa Babacar te moom moo gën a xam que li ñeneen ñi pesé Khalifa Sall pesé ko te dem ci Khalifa Sall peut-être mën na koo nuural ci déeg bi te pour mën a nuuru ci déeg bi mooy seen déegu ndaw gi nga xamante ni day fekk si bu mag parce que parti démocratique sénégalais bu nekkoon ab niw la mën ngaa wax ne fu mu toll ni mu nga ca morgue ba yóbbu ci cimetière yi moom moo des léegi je pense que ni bu fekkente ni war na mën am mooy toogaale nii ko bàyyi wàlla xel a bien fait boo xam ne dina ko permettre au moins mu nit ñi di xalaat naan deuxième tour peut-être ñu dem ci kii ñu dem ci kii par contre nag si jamais il y premier tour moom c'est fini parce que s'il y a par l'existence de Karim Meïssa Wade parti démocratique sénégalais c'est fini car ils n'ont pas construit un second te loolu moom mooy li war exsane toll nii ñu jaaxle ba xamatuñ fu ñu teg seen tànk. Mhm. xalaat gi mooy sore waaye lépp ginnaaw la leen di delloo. <laughs> merci merci beaucoup euh, Babacar Mohamed donte ñoom seen seen communiqué bu njëkk mhm. démb avant seen ndaje tey bi ñoom dañ doon wax ne def nañ seen i def seen i càmbar comme sondage bi mu wax. ba gis nañ ne daal ñaar ñi nga xam ne ñoo gën a jekk ci dem deuxième tour mm-hmm. euh, moom mooy euh, Benno Bokk Yaakaar ak euh, Diomaye président mm-hmm. waaye ci biir communiqué bi ba tey ñu wax ne mm-hmm. ñoom du ñu bu ñu demee bay allié du ñu allié koo xam ne wóoru leen ne tey gagné. moo tax ci ñaar ñooñu njortu nañ ne am na ñu ci gagné waaye ñu dàqaat ñu defaat ci ay réserve ñu ne ki nga xamante ne mooy li nga wax léegi moom mooy Amadou Ba am na yoo xam ne wóoluwuñu ko ndax ñu ngi ko ko doon mm-hmm. jiiñ mm-hmm. euh, kii nga xam ne moom mooy Basirou nekkul woon option numéro un voilà ak ak xaar ma yàlla gi ñu amoon mm-hmm. biir yeewi ba tey foofu it defaat nañ fa ay réserve donc euh, li nga xam ne moom mooy seen ñoom ñaar sax communiqué démb officiel bu parti bi ak tey ki nga xam ne moom mooy njiital parti bi sax dañoo xaw a nekk en déphasage nan nga jàngatee loolu waaw loolu day ñëwaat si décalage bi nga xam te ne moom la Bala musa doon wax léegi parce que boo liiree li Karim Wade mu bëgg li mu wax mooy moom moo yor doole ji parce que nee na kenn dabu doole ji kon moom moo ko yor mhm. mais bu dimbalee <coughs> bu bu jëlee li mu yor jox ko benn candidat mën na jàll premier tour mhm. waaye bu maandoo deuxième tour force day am parce que moom kenn dabu mhm. léegi foofu noonu la bëgg a positionné man ni ma gisee na taxawaay bi jàpp naa ne Karim Wade balaa mi avant qu'il ne se rende compte que lii nekkoon si gannaaw li si bëri ba ba nañ ko élection yi ñëw parce que bëri na ay section PDS yoo xam ne nii ñii si au moins deux maritaw ñaan gis naa ko mu am si ñoo mm-hmm. xam te ne recruter bon du mën a recruter mais daal en tout cas indi na leen biir Diomaye président keroog yaa ngi gis Goudomp di fa Bassirou Diomaye Faye demee la section Goudomp bu PDS tamit ñëw nañ ne Diomaye Faye la ñuy jàppale te dina am ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne koy def dina am ñoo xam dañ koy wax dina am ñoo xam duñ ko wax mais dinañ di xool candidat bi nga xam te ne nii moom moom moo gën a dar seen xel ñu jàppale ko te bu bu taxaw mu ne taxaw ne bi euh, Khalifa Sall ne day jàppale Idrissa Seck amoon na ñenn su ñoom ñoo xam ne nii ànduñu woon si choix boobu danoo battre campagne si suuf pour Ousmane Sonko Ousmane Sonko leen jàppale donte ne fësaluñu ko pour dire que parti bu tollee si si si période yii nii nii nii surtout Karim Wade mi nga xam te nii il est du Sénégal perception yi mën na changer ak li fi xaw nii nii nii nii yëpp am popularité boo xam ne wàññi na ko bu baax a baax je ne pense pas que mu mën a Euh, maanaam voix wu PDS yëpp day dem de manière automatique fu mu joxoon je mm-hmm. pense que il se trompe et que élection yi dina woon nekk waa PDS électorat bi du toog di xaar ñu bari si ñoom dinañ xool candidat bi leen doy ñu dem voter ko même bu nekkee bon PDS bi si kaw mën na am benn possibilité mais ni ma gisee nii daal man jàpp naa ne daal si maandu te la gënoon drôle daal parce que kuy naan maa yor doole gi mm-hmm. bu ma bu ma yekkalu kenn deuxième tour du am ngi si xalaat ba tey waxtaan naa ak Khalifa Sall des naa leer samay gët daal. Mhm, mhm. waxtaan bi sax moom waxul lu mu ci mujjee décidé ne waxtaan bi rek <laughs> merci beaucoup la waaja doon wax jamono yañ ko fi joxee ndombal tànk yu bëree bëri mu ne eh, ki nga xamante ne nii mooy suñu maam am laay Wade. Eh, dafa jàng ba xam ne eh, yàllaay Karim moo tax mu yaakaar ne <laughs> Karim yàlla la <laughs> yàllaay Karim waaye Karim du yàlla. waaw. Ah <laughs> sant waat yàlla ay Karim yaay eh, santul waat. <laughs> merci beaucoup Baara ci rinku bi. waaw kay jërëjëf loolu moo nekkoon euh, rinku mu tey yi ñu xaar ba yeneen rinku amaat suba incha allah. ayca jaajëfal naa la bu baax a baax di jaajëfal tamit ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun duñu suivre si suñu plateforme yëpp di euh, Seneweb TV ak Seneweb point com yéen a ngi ci euh, mbégte koor mi ki nga xamante ne moom mooy Al Afifa daal di leen ciy gunge ci dinaa leen wax nan ngeen di def ba gañe li nga xam ne moom mooy bon tamit Tima Delis moom moo ñuy gunge ci ñam yu am solo yi nga xam ne euh, moom la ñuy euh, ñamantoo fii ci plateau bi reer beeg xëdd beeg ndogu léeg lépp euh, moom lañ ciy àndal muy Tima Delis nekk fële rond point Y ca Wakam Euh, numéro téléphone mu ngi noonu ngeen i euh, seen ca ca suuf a euh, bu ngeen ko bëggee woo rek daal di leen composé numéro téléphone bi nga xamante ne ni technicien yi dinañ leen ko wan ca ca kanam kanam ki nga xam ne nag moom mooy Casamance wax naa leen ko moom mooy ndox mu sell oyof te mi nga xam ne da leen di gunge dégg nga monsieur Fofana mu ngi naan unhu ah Casamance ah. moom laa taamu moom waaw moom mooy ndox mi wóor ba pare da leen di jàppale ci koor gi tax tax oyof gi mu oyof bu ngeen dogoo ba pare ngeen hydraté wu bu baax bu bu baax a baax ñooñu tamit euh, ñuy waa Grand Théâtre bi nga xamante ni suñu partenaire officiel yi euh, suñu plateau yi yanj yi nga xam ne fii lañ ko defee euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax régisseurs yeeg ak mboolem direction bi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii léegi léegi nag dañuy dem xamele leen ak ki nga xamante ne ni moom mooy faux président moom moo fi indi woon slogan boobu ne moom mooy nekk ñeenteelu président di Sénégal ñu ngi ci juróomeelu nag euh, président bi la ñu war a tànn ni euh, ba léegi nekkagul président Awa Fall war ñoo xamale ak moom muy le président du parti réew mi Rewmi euh, Idrissa sec jërëjëf amet comme ni nga ko waxee donc ñu ñëw présenter leen ki nga xam ne moom moo di Idrissa Seck di leader bu parti réew mi euh, Sénégal yëpp ràññeekoo nangul ko ba noppi euh, daal di koy euh, nangul li nga xam ne moom moo di mën-mënam ci wàllum politique moom Idrissa Seck mu jot a am ay jaar-jaar yoo xam ne moo ko daal di permettre mu jot a bokk ci ñeenti élection présidentielle yu fi jot a jaar. ci atum 2007 2012 2019 ba 2024 gi nga xam ne moom la ñuy fas yéene amal le 24 mars gi ñu dëgmal moom nag moom mooy seul rescapé bi jot a dal di euh, bokk ci présidentielle yu 2024 maanaam juróomi candidat yi demoon 2019 moom Idrissa Seck rek moom mooy candidat bi fas yéene waat bokk euh, ci présidentielle yu 2024 nit la ba nga xamante ne nii euh, rarement lañ koy faral di dégg muy wax ba yooxu nit la boo xam ne buy wax nit ñi dañ koy déglu waaye itam Euh, buy wax itam dafay daal di euh, dëggal boppam ba noppi harmoniser li nga xam ne moom moo di ay kàddoom bu ñu xoolee moom Idrissa Seck ci jaar-jaaram daal dinay am cursus scolaire boo xam ne mu nga jàngee primaire euh, ca Randuleen sud 2 bu Thiès ginnaaw si loolu mu daal di jàng li nga xam ne moom moo di alxuraan turandoo moo ko ko daal di jàngal ba tey mu wéy continuer li nga xam ne moom moo di ay études am ca fa nga xam ne fa la ñu tuddee léegi lycée bu Lamine Gueye ci biir ndakaaru ginnaaw si loolu fa la daal di amee li nga xam ne moom moo di baccalauréat ci atum 1981 ba tey Idrissa Seck daal di nekk nit koo xam te ne nii jot naa daal di am jaar-jaar boo xam ne bu ñu ko nangul la ba tax mu daal di jot dem fa nga xam ne moom moo di école des hautes études commerciales ca réewum Paris la France ci atum 1900 83 moom Idrissa Seck dal di am li nga xam ne moom moo di dal di suivre li nga xam ne moom moo di ay études en sciences politiques et section économique et finance. ginnaaw si loolu euh, moom sa Seck ba tey bu koy présenté mi ngi judd ci atum 1959 ci bu ñuy xayma ay atam dafay toll ci juróom benn fukk ak juróom. mu nekkoon directeur u campagne bu le président Abdoulaye Wade euh, ci atum 1988 mu nekk ministre du commerce ci gouvernement bu Abdoulaye Wade euh, ci atum 1995 juróomi at ginnaaw si mu daal di nekkaat directeur u campagne bu euh, Abdoulaye Wade waaye itam daal di nekk li nga xamante ne nii moom moo di ministre d'État directeur de cabinet bu président de la République Abdoulaye Wade ci atum 2002 ci atum 2002 googu moom Idrissa Seck ci la ñu ko daal di tabb mu nekk premier ministre bu Abdoulaye Wade ginnaaw si loolu jafe-jafe jot a dox digganteem ci atum 2024 maanaam le 21 avril 2004 du mois ci la ñu ko daal di euh, tekkil ndombal tànkam ci jamono jooju nag le président de la République Macky Sall moo ko daal di remplacer. jamono jooju moom Idrissa Seck amoon na jafe-jafe ba jotoon tëdd juróom benn weeru kaso ca Rebeuss mu daal di bénéficier wu ci non ya ñu daal di koy libéré mu génn xamle ne jamono ji mu nekkee kaso ak li mu dund mooy li nga xam ne moo gën a metti ci carrière politique am moom Idrissa Seck bi mu jógee foofu mu daal di dem fa nga xam ne moom moo di ca wetu président de la République Macky ci bu ñu koy fàttaliku ci jamonoy Covid 19 mu ne euh, réew mi fi ne dafa gëllëngosee te jàppale président mooy li ko yëkkati ca la ñu ko tabe woon euh, ca conseil économique social et environnemental euh, le avril 2023 gii ñu weesu euh, ca la moom Idrissa Seck daal di fay jóge ba noppi xam xamle ne dana daal di sampaat am dëndëm ci présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñuy dëkkmal moom sa Seck nag jamono ji amet mu ngi ci campagne ngir fësee ne daal di utali ca palais jël réew mi comme ni mu koy waxee dagaan baatu askan wi ak projet ak programme boo xam ne jot na ko daal di xamal askan wi merci beaucoup euh, soxna Eva Fall euh, monsieur Fofana euh, ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck dégg nañ parcours am et tout man sama laaj gannaaw boo ci réagiré ci parcours bi wax ñu noo ko gisee lan moo waral ay résultats am ci wàllum politique depuis participation bu njëkk ci élection présidentielle muy 2007 mm-hmm. nekk en dents de si lan nga jàpp ne moom moo waral aussi ci at yi ñu weesu chute bi mu def par rapport ak dayo ba mu amoon nag ca ba muy doog a door ci carrière solo ah <clears throat> li ñu mën a wax ci parcours bi dans un premier temps mooy c'est quelqu'un bu nga xam ne il a définitivement marqué l'histoire politique du Sénégal. waaw mm. ah, nit la koo xam ne joué na un rôle important ci partie démocratique sénégalais te PDS ku ko xam-xam ne dafa dem à la conquête du pouvoir et ça c'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Mm. joué na ci ay rôle bi le président Abdoulaye Wade jëlee le pouvoir tam jël na ay responsabilité yu important aussi. Euh, marqué na l'histoire tam avec les chantiers de Thiès. Mhm. ci moom lañ njëkk a gis tentative surtout ñun suñu génération tentative d'élimination d'un d'un d'un d'un acteur politique fort on a mhm. nit la koo xam ne tam loo ko li euh, ñu naan njomboor loo ko bañ bañ nangul ko mën a dawam. Mhm. il a cette éloquence. Euh, il a aussi fit. ci li muy def. il a donc des qualités yu nga xamante ne nii. on doit lui on doit le lui reconnaître mm. donc c'est quelqu'un bu nga xam ne définitivement il va rester dans les annales de l'histoire politique du Sénégal maintenant c'est vrai que euh, il commence à faire partie du passé mm. hein? euh, et ci sama jàngat li tax sa Seck depuis que mu fël nekk l'homme fort benn moment du PDS mais depuis mu nekk dans une logique de di di dégrader hmm. euh, de plus en plus mooy one nit loo muus muus muus doo doo doo gën a doo gën a comment dire doo gën a bul jàpp ne yaa gën a muus sa askan hmm. mooy li olof naan euh, mën nga maa gën a muus waaye gën a muus ñëpp lu moo mëntane xam nga ndey a jur mën nga koo ëpp diplôme hmm. mën nga koo dàq liggéey mën nga nekk ci banque yi gën a mag mais nday jële jur mënoo def lu mu xamul ndax amet mën na lii wala mënut lii attan lii wala attan des fois bu amet commencé wax sa yaay xam na fa nga jëm mm. ndax daf la xam mm. donc sa askan askan dafa mag nit ñi parce que euh, culture bi la nit ñi bu ñuy xool acteurs politiques yi dañuy mën a liir seen jeu xool seen attitude xool seen éducation xool seen comportement te Idrissa Seck dafa am ay moments yoo xam ne il fallait que mu wan askan wi que ne jeu vous fais confiance dénk naa leen sama bopp dafa am moment yoo xam ne bés bu la askan wi bëggee fayul meral la bëgg la fayul nga ne ko fi ñukk di lijjan lijjanti sa bopp askan wi danaan kii xelam da ko wër kii xelam da ko doy kii jëmmam ak xalaatam da ko dafa jàpp ne moo koy génn ci situation yëpp alors que nit dina nekk ci situation boo xam ne yàlla moo la si génne ci sa askan la koy jaarale hmm. du doon yow du doon sa xel mu rëy du doon sa intelligence mun naa jël exemple Ousmane Sonko kuñ ne woon y a jours ci ginnaaw ko Ousmane Sonko dina génn ci kaso bi toog di wax ak nit ñi mais doo ko gëm te pourtant li ko ci génne du jëmmam ji de li ko ci génne askan wu wane carrément que ne ñun bu ngeen tëjee Ousmane Ousmane bu joxoon ñoon béy bi sax béy bi la ñuy woteel mm. am ko mooy le président finalement comprend que kii dafa wéeru ci askan wi te mënumaa xeex ak askan wi Idriss Seck a eu des des a eu des situations comme ça sur le chantier de Thiès benn moment avec Abdoulaye Wade su assumé woon ne je euh, am naa xam-xam am naa verbe am naa taxawaay waaye nag askanu Sénégal dañ ma xeexal seen côté laay féete lu ma ci fekk dinaa ko assumé su defoon noonu kon nekk na président yàgg na ndax boobu day wan askan wi ne ko man yow laay déglu yow laay àndal fayul ma mhm. mais il n'a jamais voulu jouer ce jeu-là génn ay raisons d'état euh, yooyu yëpp explication yu rey complexe kii wax ju ju compliqué ay xam nga statut rek wax yoo xamante ne nii yow da nga xam ne kii est-ce que yëgul boppam ba mu ëpp mhm. te loolu askan wi da koy gis te bokk na ci li askan gën a bañ ci nit mu nit koo xam ne da nga xaw a suffisant waaw danga nga xaw a doylu sa xel de trop waaw loolu bu ko nit ñi commencé gis ci yow rek euh, dañ lay commencé moytu def na ko benn yoon ak Ablaye Wade nit ñi fàtte ñu ñëw 2000 élection présidentielle 2019 mu nekk numéro mu nekk numéro 2 après Macky Sall. chef de nekk chef de l'opposition. bu toggoon dëggal boppam ba heure bii tey jii nii. nekk ci ligne am changé wu ko. imaginez sa Seck boobu noonu nga xam ne duggul ci gouvernement Macky Sall dafa rester dans l'opposition rester un homme d'état sérieux structure yemale ay waxam taxaw fi mu taxaw ba ñu dugg ci lenn kon moment bii débat bi mooy euh, Pastef wala réew mi kan moo ciy dem second tour ak ak nguur gi loolu mooy doon débat bi surtout ak ñun li ñu dund yëpp mm-hmm. mais malheureusement fi ko kenn xalaatule <laughs> waa ji dem na duggaat ci nguur gi mm. askan wi mu jóge danaan waa mais kii kañ la may wóolu mooy mburoog soow ma kii kañ kañ lay xam ne ñu suñu baat lay dagan mm. kii kañ lay comprendre ne réew mi boo fi buggee avancé foog askan wi xam ne kat am nga loo leen wegee yégee ba ñoom li nu bëgg nga nga comprendre leen ànd seeg ñoom mm. je pense que su may analyser parcours am xam nga des fois tes qualités sont tes qualité Idriss Seck daf ci bokk ne wala c'est quelqu'un qui qui analyse beaucoup qui assume mais des fois nag nga jiitu paaka ci mbaram des fois nga jël décision foo xam ne waroo woon a jël décision da nga war a bàyyi ñu jëlal la ko man pour man erreur yooyu la def ba tey jii gis nga élection yi euh, bokkul di que nañ waxante dëgg Idriss Seck risque de faire ses pires scores sondage yi génn yëpp Khalifa Sall passe devant lui ak Karim de passe devant lui Karim Wade nga xam ne kenn gisu ko. moo nar moo nar a moo téye doole ji moo téye doole ji. booy wax pronostic sax da ngay jàpp ne Karim moom moo gën a kii loolu yëpp dara yóbbeewu ko dul dafa dem ba as dafa am benn divorce bu mu créé. entre moom ak sénégalais ça c' est quelque chose qu'un homme politique doit toujours politique est la proximité c' est l'humilité c' est l'utilité loo am xam am xam nit dong nga. Mm-hmm. te xam-xam boobu lu dul jëriñ askan wi. te même loo am xam-xam te comprendre askan wi dégloowu leen sa xereñteeg sa dara du leen jëriñ. parce que nit ku dul déglu mënul jëriñ kenn. waaw nekkal médecin bi gën a ay ci mbodd bi sa sa malade bi bu ñëwee boo ko dégluwul mu wax la moom li ne ci yaramam mënoo ko faj. donc un homme politique c'est la proximité c'est l'écoute c'est l'humilité yooyu bu newul si yow rek. nit ñi dinañ la dinañ gis benn gis-gis si yow boo ko defee benn yoon ñaari yoon après dañ lay jërëjëf euh, damay dem ci Mouhamed Diallo euh, laaj ko euh, parce que monsieur Fofana junj na ko ci biir waxam mooy doyloo gi mu doyloo xam-xamam wala xelam moom dong ñu bëri nag ku ko di ko ci def joxoñ di ko ci joxoñ baaraamu tuuma ñu ci mel ni ñoom daan ànd seetloo lieutenant yu bëree bëri mm-hmm. dañu mujjee jënn ci ci parti boobu la di réew mi mën nañ nommé Abdourahmane Diouf mm-hmm. Déthié Fall mm-hmm. Bokar fàtte naa tur waaye ki nekkoon ci jeunesse su parti bi ñoom ñëpp waa ci ci réew mi mu hmm. perte ay lieutenant yu bëri eh, est-ce que finalement voilà Thierno Bocoum hmm. euh, manager maanaam sax ci biir équipe bi est-ce que posé wu ko problème aussi ba ba parti bi dégradé wu nii tey parce que booy xool réew mi bu njëkk ba mën nga ko méngale ko Pastef bu tey hmm. parce que booy xool réew mi bu njëkk ba ni nga ko waxee noonu la demee da doon am ñoom docteur Abdourahmane Diouf ñoom Déthié Fall ñoom Thierno Bocoum ak ñeneen ak ñeneen comme Pastef ni mu amee au cadre parce que Idrissa Seck loo ko mënti waxal xam ne ku bëgg a xam-xam la. Mm-hmm. loolu moom loo ko mënti waxal say débat loolu daf siy feeñ bu baax a baax a baax. <coughs> loolu yi tamit taxawaay booy am par rapport ak yenn décision yoo xam moom ngay jël yenn posture politique yi nga xam moom ngay jël moom mooy tax ñenn ñi duñ si mën a ànd ak yow. te boole ay borom xam-xam am na avantage waaye dem am na ay risques parce que am na ay borom xam-xam yoo xam ne nii boo leen bëggee yilif mënoo leen yilif si lépp loo def ñu ànd seeg yow. Mm-hmm. da nga leen koy waxtaanee. jël jubluwaay bi nga xam te ni ñoom ñëpp dañuy tënk ne lii moo gën waaye boo leen bëggee jaarale foo xam ne ni ñoom ànduñu si am nañ seen xam-xam tey tamit dañ doon cotiser si parti bi comme yow dafa mel ni tey ji lii dal passif cadre yi passif am Ousmane Sonko mënul leen a imposer daal waxtaan rek lay nekk si njekk bu jëlee yenn position nga gis ne cadre yu bëri bëri dañuy dem parce que nit ki nga xam dafa am xam-xam tey tamit lu muy dundee yaakaaru ko si yow yéen ñaar sax daanaka yéen a yem si parti bi day cotiser ngay cotiser kooku mënoo ko imposer dara waxtaan bu jubóo rek lay nekk même bu nekkee aussi kilifté dafay am man pour man problème d'orientation yi noonu moom moo tax ay cadre bàyyi ko si lu bëree bëri mais moom moo tax aussi askan wi bàyyi ko parce que Idrissa booy xool euh, parcours am naan oh, parce que nit la koo xam ne nii am na qualité yi pour nekk président de la République Sénégal mm. te li ko koy xañ sax du jóge si keneen ñaare si boppam lay jóge mm-hmm. parce que ce jàpp ne ku naan ku may suul si politique yaayam juddoogul ak yooyu ne wax na ko fi euh, ces dernières sorties euh, sénégalais vous n'êtes pas digne de confiance jour où vous serez digne de confiance je vous euh, je vous confierai mes yooyu noonu ñëpp wax na ko fi mu mel ni kon il a vécu des choses yoo xam ne Idrissa dafa mel ni soit dafa mere sénégalais si benn wàll wala mu mere Abdoulaye Wade mi nga xam ne moom ma nekkoon mentoram bon nëbbu ko sax parce que bi wax si Abdoulaye Wade léegi moom xol lay waxee mais loolu tam day da nga koy day day reflété wu bu baax a baax si si mais jàpp naa ne maire sénégalais yi maire Abdoulaye Wade bon peut-être qu'il mais war na mën a mere waale boppam si yenn choix yoo xam ne daf na ko te moo tax tey jii booy wax si présidentielle bi da ngay fàtte sax Idrissa Seck si koo xam ne ni moo jëloon deuxième à la dernière présidentielle. Mhm. jë jërë jërëjëf Babacar gis nga Mouhamed fi mu daanelee moom mooy fii ñu tollu tembe booy lim favori doo ko lim booy liw out outsider yi doo koy lim booy lim sax ñiy def tour bul fet euh, doo ko ci doo doo doo ko ci lim. lan moo war a nekk nag ëllëgam kon ci li nga xam ne moom mooy euh, politique bi. waaw xam nga Idy dafa jiital politique de trop ci lépp te muus gi mu muus ak bëgg xam-xam gi mu bëgg xam mhm. da ko dem ba boole ko ci moom ko il ne se compose pas avec n'importe te loolu fu mu toll ni mën naa ko conjuguer au passé parce que li li koy gën a firndeel mooy bu ñu la limalee déjà deux à trois profils yu ci mel ni Abdourahmane Diouf tegal la ci Déthié Fall yokkal la ci Thierno bokkum ma dem ci ba ci ñeneen ñoo xam ne peut-être nekkoon nañ ak moom déjà dafay firndeel que ni il sa se compose pas avec n'importe qui ki dul nangu loolu ça veut dire moom am na loo xam ne mu ngi ci moom muy dans le cadre technique bi nga xamante ni jot na ko am xam bu ñu waxee éloquence su Idrissa Seck da lay renvoyer exactement ci de quoi il est capable quand de politique et pour gérer également un gouvernement mais Idrissa Seck jàpp naa ne boo doon xayma boo doon jëm tey politique di laxas ci que ne politique da koy def lal bu ñu tëdd mais Idi dafa tëradi. te tërëdi boobu noonu dem na ba yóbbeeku mu xalangu sax ba daanu ci suuf. c'est-à-dire ngay wax nii ku la ko wax nday pend. déedéet maanaam dama ne bu ñu doon méngale politique ak ah, lal dama lay wax na rek Idriss Seck dafa tërëdi. c'est-à-dire dafa ci lal bi am lal bi ba lal bi neex mu xalangu ba far wadd ci suuf. d'accord loolu naïveté da ci bokk. c'est entre 2005 et 2006. parce que sorti prison bi ñu koy juñ ci affaire u Thiès yi ñu ci bari bari ci Sénégal yi pourtant dañoo demoon bëgg ko épauler mais quand il est sorti de prison quand il nous parlait du protocole ak yeneen ak yeneen da ko yóbbee comme si ki la teg ñun yow man ki ma teg lu métti yow yaa baax yéen ñi ma doon jàppale yéen yéen a bon mm-hmm. xam nga démarche boobu noonu. soo ko amee waaw dafa noonu diggante baay ak doom la. très bien

maître Abdoulaye Wade gagné ko ci élection yi. Abdoulaye Wade dafa mujjee gagné au premier tour. très bien bi mu gagné 2007 moom mu ñëw nekk deuxième. te bu fekkoon loolu amul doon ku doon indi ku doon mën na gagné élection yi. Hmm. nga jógee fa 2007 mu ñëwaat 2012 2012 également bu muy ñëw fekk na boobu Macky dekki na ci am na ñeneen ñoo xam ne jàppale nañ ko ñu xaw tuuti ëpp ëpp doole parce que boobu amul chance. ak la mu yaakaar ba léegi mu ngi ci moo ko tax a peegu fa mu ne ca digg lalam ba fekk na nag ci waxtu mooy xalangu bi ma lay wax xalangu bi xam kañ la ko dal mooy bi muy dem ci président Macky te yaakaaroon que ni instant boobu noonu ñu ngi koy woowee chef de l'opposition mu jàpp ne ak lu mënti xew suy diree ko di demit lépp da koy toppaale ba bu muy génn tamit toppaat ko génn moment boobu nag moo fa am tarxiis boobu noonu moo ko yóbbee exactement opportunité boobu du mën a am parce que instant bi ñu toll nii bu fekkee existence Pastef dafa am benn doye bi te mu xaw a méngoo tuuti ak ni nga xamante ni moom la Benno Bokk Yaakaar mel wala APR keneen koy wax ëllëg da nga ciy boole ñi nga xam ne dañoo am avenir politique ñi nga xam ne ñu ngi ci suuf ay consort Pape Djibril Fall wala entre autres mais bu dee Idrissa Seck la gisu tut fi espace boo xam ne dina vide ku mu mën ko exploiter donc parlant de Idi la politique conjugué ko également au passé Awa Fall mburoog soow mi eh, jàppoo ne moo ba indil ko lii lépp mooy comme li mu defoon ci Ablaye Wade en 2007 parce que 2019 bu Babacar mu ngi rappelé mais xawoon na mel ni ku ku ku dekkiwaat euh, parce que ci élection yooyu xawoon na wane dooleem et ba nekkaatoon deuxième derrière le président Macky Sall euh, mais est-ce que du mburoog soow mi nag moo ko gën a moo ko gën a diigal nii. xam nga sénégalais du du fàtte day fërëntal. waa c'est vrai. waaw si si. dëgg la de. fàttalikul fi def njombe ñëpp tey jii mën nañ leen bàyyi mais fu ñu génn dañ naan diwa nga ne. benn Babacar Kebe ne ci ci côté Baara naan ko yaa ngi fàttaliku li mu fi defoon c'est-à-dire du ñu fàtte dañuy fërantal. Mhm. Idrissa Seck c'est vrai que boo xoolee bu muy ànd ak Ablaye Wade ak problème bi ñu am ba yoon tegoon ko ci loxo. après gis nga sénégalais yu bari di lamante wu ñeen ñi jàpp ne quand même lu ñu war a leeral la après gis nga gars yi bàyyi mu jàll mu ñëwaat tey jii amoon benn euh, taxawaay ci côté politique. Euh, ñu jàppoon ne que 2019 moom mooy candidat bi doon jël sax li nga xam ne moo di réew mi finalement mu nekk deuxième. ñu ne mooy chef de l'opposition ñu nekk Idrissa Seck war na mën a dëggal boppam moment boobu mi ngi doon wax ne moom mooy nekk quatrième président bu bu Sénégal malheureusement que nekk ko euh, donc Idrissa Seck bu ñëwaatee nit ñi am yaakaar ci ne li mu doon gëmloo Sénégalais yi wala ni mu doon doxee dafay nekk loo nga xam ne luy continuer la parce que bu xoolee sànq ci bi may nettali jaar jaaram nit la boo xam ne bu ñuy nangul quand même mën-mënam xarañteefam ak nit buy wax nit ñi di ko déglu quand même parce que à chaque fois buy wax dafay fexe convaincre ki mu jàkkaar mm-hmm. ba euh, jéem ko won ne ko carrément lii mooy réalité bi Idrissa Seck dem rejoindre euh, président Macky Sall taxaw di gëmloo sénégalais yi que ne jamonoy covid 19 la est-ce que moment boobu la waroon profité quand même parce que man su ma nee jamono bi jamonoy covid 19 la président Macky Sall war a nekk ci ay jafe-jafe bu dee Babacar mooy sama adversaire damay jéem a def le tout ba ci jafe-jafe yi mu nekk man ma jéema a dugal porox ndollu xool nu ma def ba ba fësalaat sama bopp. gën a exister voilà gën a léegi bu nee dafay dem pour rejoindre la président Macky Sall parce que euh, contexte bi ñu nekkoon la ak circonstances yi ñu doon dund. nga déggaat ci ay rumeurs yu bari que intérêt personnel am la dem sax ba ñuy wax yenn euh, information yi ngay dégg partout nit ñi di ci wax waa Idrissa Seck toog foofu mu nekk ko génnaat taxawaat ne candidat la kani daaw kan. waa waa léegi loolu nag foofu noonu dama koy tënk <laughs> rapidement. loolu la ñuy wax jiitu ci pax sa génne si biti. et que franchement man sa Seck te bii mooy tàcc sànneem de mu ngi ko fàtte de. <coughs> jiitu ci parce que génn ci bi génn ci bi di noonu la demee à tout moment mën nañ laa buddi merci beaucoup Awa Fall ba ba ba baara la ñuy tëjee chapitre boobu muy euh, Idrissa Seck présentation beeg. Euh, waxtaan bi moom romb nañ ko 2019 awa dafa xamul. santage bi 2019 la romb nañ ko bu yàgg mais bon. Euh, élection yu ko fi fekkaat mag lay doon de mi ngi ci 65 ans de. waaw loolu laa man ne moo tax ma ne romb na ko 2019. maanaam yow baara kon jàpp nga ne. Ah, comme lu lu lu lu. monsieur Fofana wax tout à l'heure nañ ko conjuguer au passé mais tamit mm-hmm. euh, mi nga xam ne moom lay dégager mm-hmm. xam moo nekk ci moom xamaloo tamit dafa bokk ci affaire yi parfois tamit au Sénégal dañuy dem ba kanam ci wàllum politique mooy moom day ñëw rek wàcce affaire yi foo waxtaan reetaan am xam ne fa la il boobu noonu tamit dafa lu muy yokk ci affaire yi mais bon li ñu mën a jàpp rek mooy fi ñu toll nii nii nii nii nii lépp ndaw a koy def waaw mmh. ndaway def lépp. Sénégal a changé. d'accord. merci beaucoup ba merci beaucoup kii euh, merci beaucoup Eva amoon na solo euh, li nga xamante ne nii moom mooy euh, njàngat li ci président Idrissa Seck comme ni ñu koy defee suba Eva Fall di nga fi ñëw indiwaat beneen candidat ñu daal di koy ñu daal di koy waxtaane laataa ñuy xuus ak gan gi waxtaan bu yaatu wi nga xam ne dina dox diggam ak waa plateau bi Babacar Kébé war koo jiite rek ma leen di fàttali ne al al afifa di hôtel bi nga xamante ne nii moom moo nekk fii ci Ndakaaru 46 rue Jules périphérie euh, mën ngeen woote pour def seen i réservation ci 33 889 90 90 33 889 90 90 mu maye fi nag ay euh, bon wu yoo xam ne buffet ndogu yi nga xam ne chaque soir moom lay def ci restaurant bi nga xam ne euh, moom moo nekk ci hôtel Al Afifa euh, mën ngeen ci dem euh, am ci ay bon ndogu yu mucc ay gis ngeen li ma yor nii yëpp ay bon ndogu la te yéen lañ koy may ah am na waaw ay bon ndogu yu am solo la mën nga toog au bord de la piscine di def sa sa ndogu mën nga dem toog ci terrasse bi def sa ndogu mën nga toog bu la neexee nga jël chambre ñu indil la <laughs> sa ndogu ci biir chambre bi donc bu la neexee nga ci def am na ay espace yoo xamante ne nii féex na yaatu na ku ne mën na faa ndogoo buffet bi mën nga fa dem aussi Euh, def sa def sa ndogu donc euh, tey damay may monsieur yeeg madam yi monsieur yeeg madame yi laa bëgg madame na dem commentaire wala monsieur na dem commentaire adresse exacte bu Al Afifa moom ngeen may bindal en commentaire balaa émission bi jeex dinaa tànn couple yi rek laay may ñaari bon laay maye tey couple yi ñi nga xam ne waxuma couple couple yooyu de couple bu dagan voilà ci weeru koor gi ñoom laay may ay ay ay ay ay ay buffet donc mayuma benn célibataire Euh, bon bon buffet donc di jaajëfal bu baax a baax al al afifa bi nga xam ne moom moo ànd ak ñun li nga xam ne nag yéen a ngi seen kër yi di yëndu fu ne xet gi neex gi leen di xeeñ suñu reer la ñun donc <laughs> tima euh, tima délice moom moo ñu koy jox donc nekk fii ci rond point Wakaam ku ci sa xel nekk it woo ko nga commandé Euh, li nga xamante ne ni moom mooy moom mooy reer bi mu livré la ko mais fii lay xeeñee bu leen sonn di yéendu seen kër yeeg di yéendu koñ beeg ku togg lii fii ci plateau bi lay xewee euh, donc ci kanam tuuti du ñàkk ñu indil ma ci plat ma ñam euh, comme technicien yi niñ koy niñ koy niñ koy doxalee donc di jaajëfal bu baax baax Tilma <laughs> Delis traiteur mi nga xam ne moo ñuy gunge ci weeru koor bi ci ndogu beeg reer beeg xëdd bi gisoo ko wala ah <laughs> ah jëwriñ la kii sérieux di jaajëfal euh, Casamance bi nga xam ne moom it mu ñuy gunge euh, ci émission bu mag bi la di euh, Mbecté Koor également di jaajëfal. Euh, suñu suñu partenaire bi nga xam ne moom mooy euh, Grand Théâtre ak mboolem partenaire yi nga xam ne euh, ñu ngi ànd léegi léegi ñu daal di dem ci waxtaan wi ca kanam tuuti dina ñëw ci agence bu mag bi nga xam ne moo ñuy moo ñuy gunge surprise la parce que damaa bëgg wax ci moom lu yaatu ca kanam tuuti dina dinaa ci wax Babacar. gan gaa gi noonu di monsieur Fofana ma bàyyi la rek nga door waxtaan wi. voilà monsieur Balla monsieur Balla Fofana Moussa Balla Fofana. ñaare nag laa koy laaj pour nga préciser ma ko balaa mooy dugg ci biir question bi. analyse des dynamiques et planification des investissements wala banque yi des affaires exactement ñaari fonctions yi ban lañ ci war a mën a jël. alors du fonction en fait parce que mhm. xam nga carrière u nit. waaw day évoluer. c'est vrai. Euh, benn moment j'étais banquier. Mm -hmm. profession de banquier. Mm -hmm. je l'ai je l'ai exercé pendant une dizaine d'années. Mhm. Aujourd'hui, j'ai mon propre cabinet ici au Canada, ici au Sénégal. Ouais. Et je m'occupe de tout ce qui est structure et des financements et gestion des projets. D'accord. Donc, carrière, moi, mm -hmm. c'est avancé. Ben, un moment, j'étais responsable territorial à Lyon. Ben, un moment, j'étais chargé de mission logement à Paris. Ben, un moment, j'étais banquier. Ben, un moment, j'étais conseiller technique. Ouais. Donc, à ma chance, comme il y a une journaliste, il y a une journaliste. tranquille quoi ñu moom <laughs> j'ai eu benn carrière boo xam ne c'est sant suñu borom y a eu beaucoup de changements mais poste bu ci nekk enrichissement la woon. alors août 2020 su ma jumul ci nga ñëw bokk ci parti bi ñu woowee Pastef nga ñëw yaa ngi bokk ci cabinet bu Ousmane Sonko. Mhm. bi ngay ñëw lan moo nekkoon motivation bi. bi nga ñëwee lan nga installé ak bu doon def évaluation fi ñu toll nii ci ban xayma nga koy jokk. alors c'est vrai août 2020. li ma li ma andi c'est vraiment d'abord euh, observer Pastef pendant un, pendant une longue période di xool organisation ak fonctionnement parti ensuite des relations que j'avais avec Ousmane mhm. parce qu'on se connaissait je pense depuis 2015 on s'écrivait beaucoup des fois ñuy waxtaan mhm. euh, def na sax ay émission yoo xam ne man lañ invité woon pour ma koy poser question yàlla def aussi élection municipale biñ biñ ci jubee. Mhm. ñuy waxtaan benn jour au téléphone mu woo ma ñuy discuter. idée bind livre mu proposer ma ne ma mais est-ce que duñu ànd def téere sur décentralisation Sénégal wax vision bi ñu ci am parce que on a on on voit les choses de la même manière fekk on discutait pendant une heure. ma ne ko d'accord et c'est là que je me suis dit tiens. Mhm. qui il est différent parce que bu ma. mënoon na ma mënoon na wax comme yeneen homme politique yi souvent. bindal livre bindal ma def ci sama tur. mais def na ma kaay ñu co-écrire benn livre. d'accord ah j'ai vu que ne non seulement les textes Pastef dañ ma rassuré mais l'homme que je connais avec qui je discute depuis un moment nit la ku fonk xam-xam. nit ku nangul nit ki xam-xamam la. justement il n'est pas suffisant lu mu xamul day xam ne xamu ko lu mu war a yem ci loolu la war a yem il apprend très vite et njiit koy doyee njiit. dafa war a am courage wu diriger des hommes ak assumer des positions mais aussi avoir de l'écoute euh, ba noppi kenn ku nekk mu xam ne kii lii mooy apport am ñu mën a ànd liggéey parce que mbir mi ànd liggéey dong la et j'ai compris que je pouvais vraiment travailler avec cet homme et c'est comme ça que je lui ai dit ma ne ko bon j'avais décidé de créer sama propre parti moo doon sama bët j'avais décidé de créer sama propre formation politique d'accord avancé woon naa sax ba créer slogan beeg noo yeeg yëpp mais je lui ai dit. waaw ah, xam-xam du pexe moo nekkoon slogan bi. non non non leneen la loolu ma ko. <laughs> ma ne ko je je prends la décision dama dinaa la jàppale je vais entrer dans Pastef. damay fàttaliku li ma wax daf na ma généralement su ma nit waxee damay ñëw jàppale la bëgguma baat boobu parce que man du man ngay jàppale da ngay ñëw ci parti bi pour apporter sa contribution mu ne ma mais yow soo ma ne da ñëw jàppale ma xam naa ne tu seras vraiment d'une utilité loolu la ma tontu donc. noonu la ñu àndee di liggéey mu mu jël ma aussi def ma dans son cabinet euh, bi may fal laaju ma sax sama avis damaa xëy suba teel la gis décret yi ñu ne euh, nomination yi ñu ne Moussa Balla Fofana dénk naa la yëg léeg léeg bi muy marque de confiance. lan la la dénk ci cabinet bi coordination du programme présidentiel législatif et municipal. d'accord cabinet bi comment ça lu muy ak cabinet bi la lan la exactement. non cabinet bi mooy xam nga un homme d'état le cabinet d'un homme d'état mooy mooy fi nga xam ne fa lay concocter. fa lay fa lay fa lay defee ay réflexion am fa lay analyser yenn yi euh, lépp lu mu war a dugg ñooñu ñoo koy dimbali ci xóotal bi analyse bi production bi préparation bi on est là pour l'accompagner ñun loolu mooy le cabinet d'un homme d'État loolu mooy jëriñ bi ñan ñoo composé cabinet bi ah non il a beaucoup on est on est ay ay yenn genre profil je veux dire profil yi essentiellement c'est des gens qui ont quand une certaine compétence ci li ñuy def mën ko am benn am benn am confiance am bien évidemment euh, souvent am na membre du membre cabinet yoo xam ne jox ay mission ak ay projets yu am solo comme par exemple nemmeeku tour bi Fadilou Keïta par exemple moom lañ jox nemmee moom moo doon organiser nemmeeku tour bi. waaw dans le cabinet on est quatre coordonnateurs de programme présidentiel Amadou Ba Djibril euh, Sonko. man ak Lansana Gagny Sakho on est les quatre coordonnateurs des programmes présidentiels législatifs et municipaux. d'accord il y a d'autres kenn ku ci nekk am na lu ñu la joxoon donc tout ce que le président du parti géré à son niveau mu nekk des projets des axes et des enjeux importants il confiait cela à ses à hommes. c'est ça le loolu mooy njëriñu cabinet bi. en consultation yi ni muy demee. su bëggee wax si benn mbir par exemple boo xam ne ni yow sa domaine de compétence la par rapport ak lii nga xam ne nii moom la la jëng si cabinet bi comment vous travaillez non nag c'est quelqu'un qui très euh, très donc bu mais aussi boo nekkee cabinet d'un d'un ministre ou d'un président danga war a aussi nekk dans la proactivité mhm. du da nga war a xaar rek ñu wax la nga def d'accord tu l'actualité nga gis benn enjeu bu bu am solo. nga travailler ci tout de suite valider jox ko. wala moom mu jékki-jékki xelam dem ci benn affaire mu ne la ah tel sujet de tel enjeu tel enjeu. Ah. lii laa ci xalaat lii lii lii ñu commencé ci xool. donc c'est c'est dynamique cabinet moom c'est dynamique nekkul loo xam ne euh, ay non non non c'est des il faut que tu sois vraiment focus sur l'actualité politique focus ci sa domaine. di di ko xool moom ni muy évoluer ak lan la war a soxla noonu ngay boo nekkee homme boo nekkee proche boo nekkee membre du cabinet loolu mooy vraiment fonctionnement bi nga war a am euh, et puis man c'était c'est pas la première fois parce que te aussi dans le cabinet de Cheikh Bamba Dièye quand mm-hmm. j'étais conseiller technique te noonu ngay accompagner un ministre wala un président c'est que doo toog rek nekk koo xam ne dañ lay actionner nga bouger non non non yow fa nga xam ne da war a voilà des fois mu fàtte benn affaire sax nga xëy jox ko livrable loo xam liggéey boo jox fàtte woon na ne dénk dénk na la ko wala yaakaarul woon ne yaa ngi koy sóoraale pour jour boobu waree dem mu am lu mu yor wala nga jéem a xalaat benn affaire xam ne lii de waroon na ko intéressé nga liggéey si jox ko. d'accord foofu nag lay téye nit ñi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal dëgg-dëgg. bi mu nekkee kaso noonu lañ doon liggéey. non loolu moom mënuma cee sori. <laughs> mais noonu lay fonctionner. léegi ñenn ñi ñenn ñi ñuy ñuy wax ne. Euh, du du nit koo xam ne dafay dafay dafay dégloo yenn saa rek day tëb jël yenn décision yi surtout jamonoy live yi day jékki-jékki rek dem ci page Facebook bi commencé live te du ko waxtaaneek ñi ko wër lan nga ciy tontu loolu wala yan leeral nga ciy indi non loolu c'est des rumeurs loolu moom il n'est pas comme ça nit ku am ay conviction la nag c'est-à-dire que un leader mooy koo xam ne da nga am vision c'est-à-dire que am nga gis-gis. voilà am nga loo bëgg am nga aussi loo xam. sénégalais yi xam nooy gisee li nga bëgg ak li nga xam ak li nga fas yéene donc doo ko xam ne dañ lay wax li nga war a def aussi. Mm-hmm. un leader c'est ça un leader. mais n'empêche il doit vous consulter pour certaines Justement. choses mais ah. maintenant il a compris il fait partie des gens man bokk na ci tax man nangu ànd ak moom il a compris que xamut lépp mënut lépp et c'est pour ça qu'il a mis en place son cabinet kenn forcé wu mhm. moom moo xëy tànn une trentaine de personnes d'hommes et de femmes yoo xamante ne ni kenn ku ci nekk en fonction de ce mu am lu mu la dénk parce que xam na ni lii mooy samay priorité mënumaa nekk homme métiers j'ai ces gens là et c'est des gens qui l'écoutent. est-ce que mos na arrivé ci biir cabinet boobu yéen ñëpp ngeen ensemble ak Ousmane Sonko pour discuter sur certains points. oui bu dee am na plusieurs fois. non c'est vraiment euh, comme ni mu mel ci ni mu ni mu mel ci plateau de de de de de kii saboté nit ñi ak tooñ kii ak. il est comme il est taquin voilà taquin détend l'atmosphère les gens ku nekk da ngay wax li nga xalaat. Euh, les réunions nag sont très structurées parce que on a il n'a jamais assez de temps on n'a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on a faire hmm. mais c'est comme ça noonu la ñuy liggéeyee euh, c'est pas c'est rythmé mais nekkul genre tyran yooyu wala de tribans yi nga xam ne bu ñu ñëwee toog kenn du sëqat ki non non no c'est pas vraiment ça du tout au contraire. on aborde tous les sujets jëndam bu mujj bi yéen cabinet bi ngeen si jëndam bu mujj. bii moom c'était spécial moo tax ma ne la contexte prison bi li ma lay wax nii c'est dans le cadre normal. Hmm. des choses laale kon demam kasoom. bi muy nekk kaso et tout non bi c'était loolu loolu c'était ñun contexte bi ñu nekkoon. Pastef li mu dund ak mii c'est c'est quasiment c'est de la clandestinité ñun dañu dissoudre après la dissolution dañu dissoudre mm-hmm. waaw waaw amuñu woon droit réunion waaw c'est vrai man mës naa <laughs> convoqué réunion Diourbel <laughs> ñu avertir ma ne ma bu ngeen di daje gars leen jàpp dañoo dañu ko tas c'était quasiment de la clandestinité donc amuñu benn amul benn structure bu fonctionner ni mu war a fonctionner durant cette période là n'empêche les projets et planning ngi mu amoon di continuer di dem mais ah moment boobu noonu naka lañ ko daan coordonné est-ce que am ñu daan jël ay responsabilités proprement di mm. accentuer certaines choses wala di joxe wala naka la daan demee exactement non xam nga et c'est l'avantage quand bu am boo amee boo amee structure bu organisée d'accord voilà le directeur de cabinet il sait que son rôle de directeur de cabinet mm. man je connais mes rôles ñi nga xam ne ñun programme bi euh, mooy suñu wàll Birame Souleye xam na son rôle rôle am président yeeg secrétaire yeeg kenn ku ci nekk xam nga sa rôle. Mhm. te aussi bu la soxlaa nga war a jot benn information di nga ko jot. parce que euh, am na quand ñu muy recevoir mën na am na ñu mën a woo donc képp koo xamante ne rek war na la mën a euh, jox benn information bu importante di nga ko jot. d'accord il faut comprendre que contexte bi ñu doon dund contexte la bu nga xam ne plus il retenait les informations plus il faisait attention. plus il permettait de sauver le projet parce que benn moment ñun li ñu doon dundu depuis dissolution bi mooy nan la ñuy def ba élection yi ñu am nu mu bon bon benn candidat ñun ci loolu rek lañ doon dox ah. n'importe qui. non pas n'importe qui mais il fallait que ñu ñu bàyyi ko mu tànn mu teg stratégie te il fallait qu'on accepte que mënatuñu am fonctionnement bu normal parce que dañu nekk dans ci cadre bu inédit. ak bu illégal. bu waaw bu illégal. donc yooyu yëpp moo tax et c'est pour ça que vraiment je tiens à à féliciter les les cadres et les responsables parce que ils ont compris que ne contexte bi ñu doon dund jafe woon na benn jafe boo xam ne il mm-hmm. fallait qu'à un moment donné que ñu wóolu ko mm-hmm. ñu bëri toog nañ moment yu yu yàgg déggantewuñu ak moom mais changé wul dara seen fonctionnement seen xëy di def li ñu war a def dellu seen kër di ko déglu te wax na ko nee na nit boo ko jiitalee da nga koy wóolu waaw doo ko doo ko ñàkk gis rek yaakaar ne dafa soppeeku. Mhm. te maa ngi sant yàlla parce que loolu daanaka dalul kenn ci ci kàngamu Pastef fi ñun ñëpp dañoo ànd y a eu des moments nag très difficiles y a eu des moments difficiles. comme quoi exactement. non parce que c'est c'est difficile c'est difficile parce que da xam ne yow sa sa organisation mi ngi dund des assauts yéen ngi dund ay jafe-jafe des fois y des interrogations c'était pas facile ah ñun li ñu dund année bi c'était pas facile du am na foo foo fu la fooy waxee léegi ci ci wóolu ko doyloo ko mu tànn. mu mhm. tànn kenn. Euh, Babacar nga ne ne la n'importe kii nga ne non pas n'importe qui man sama laaj ci foofu moom mooy euh, pourquoi Bassirou pas yow pas mhm. El Malick pas keneen. pourquoi Bassirou waroon na jëlee fiche ah? te moom aussi il paraît. xam nga le choix wu Bassirou benn moment Ousmane tolloon na fu nga xam ne moom rek moo mën a joxe les raisons tànn Bassirou parce que ñun ñoo ko ne tànnal xam nga ñun ñoo ko wóolu. comme ni Macky def ak comme ni gars yi def ak Macky noonu ngeen ko def. noo bokkul Macky avait la liberté Benno Bokk Yaakaar avait la liberté d'organiser des primaires. Mhm. ku bëgg a nekk candidat taxaw ne je veux être candidat. parce que parti bi muy coalition parce que ñu ngi en toute légalité am nañ ay procédures. mais ñun dañu nekkoon ci contexte bu nga xam ne on était on était. voilà ñun liñ doon dund kenn xamul lu mu doon. maintenant pourquoi Bassirou. pourquoi Bassirou lim la ci wax laa la ci mën a wax parce que moom moo doon tànn donc tànn na ki nga xam ne moom la gën a xam yàgg na moom te jël na suffisamment de temps pour xelam dal ci moom. te li am importance c'est pas Bassirou en tant que tel li am importance mooy Ousmane mi nga xam ne mi ngi fi woon depuis le début. mi ngi nekk au sommet de l'organisation yàlla dimbale ko mu am niveau d'information bu kenn amul bu ñu tollee ci yenn difficultés yi il faut que ñu nangul ko ne moom la ñu mën a ne waaw kon boog comme président la république temps de guerre ñu voté article boo xam ne da permettre mu dajalee pouvoir yépp mën a agir rapidement daanaka Pastef noonu la fonctionné dañu nekkoon temps bu nga xam ne on était acculé de partout ñun ñëpp ñu comprendre ko sans pour autant que ñu xam ko ñu ñu comprendre moment bi il faut que ñu bàyyi ko moom mu doxal tànn na Bachir mais yow xaaroo woon mu tànn la yaa ngi ko doon xaar wala. non man ci sa ruq yow kese quoi nga espérer mu nekk yow. non sama responsabilité mooy c'est vrai nit ñu bëri dañ la koy wax ah. Mhm. dañ lay wax wax wax wax. man sama responsabilité mooy je dois je dois être prêt à jouer tous les rôles que Ousmane pense que je dois jouer man foofu laa teg sama sama tànk. non mais ci ruq quoi toogoo ci ruq comme nit ñu bëri nuñ ko xalaatee ah, man li tax ma la koy laaj di ci insister nii sénégalais yu bëri ah. Mhm. dañu doon wax ne. pourquoi pas yow am na ñoo xam ne sax dem nañ euh, ba jàpp ne euh, choix bi mu def euh, jàpp nañ ne gënul am na ñeneen ñu gënoon Bassirou jomaay peut-être aspect wu ya moom la gën a yàggal moo gënoon a nekk xaritam moo ko tuddee doom aspect yooyu la xool peut-être mais ñu bari doon nañ indi sa tur ne pour pourquoi pas mënul woon nekk yow mooy moo tax ma naan est-ce que yow xalaat boobu yow amoon nga ko xaaroon nga ko. non mënoon na nekk Fadilou Keita mënoon na nekk biram Souleye hmm. mënoon na nekk man. mënoon nekk keneen ñi mënoon nekk bëri na. parce que mais yow xalaatoon nga ko mais mais ba. monsieur Fofana yow laay wax quoi ndax yow xalaatoon nga ko. non man sama rôle en fait xam nga nit bu fekkente ne jël na la def na man tu sais j'ai des logiques peut-être yu nit ñi dul comprendre man nit su ma xasee jël ne la tu es dans mon cabinet. Mm-hmm. yóbbu ma la secrétariat général yóbbu ma la dama la jël yóbbu la sama cabinet man mënuma lu dul je ma prépare à que boo ma soxlaa ak lu mu mënti doon je suis parce que loolu mooy sama rôle man nit a Ousmane Sonko Sénégal ba mu daj bindu la kenn livre ku dul man c'est-à-dire que kooku kóolute ko weesu en fait parce que man tey su ma jugoon di ko di ko attaque wala di ko wor mais day ñaaw en di tu comprends ce que mm-hmm. mel ni yow maag yow bu ñu àndee nga nga def yenn yoo xam ne defaloo ko ku dul man man sama wareef am na loo xam ne mënatuma ko en fait mënuma lu dul dama ànd ak moom ci ngor xam naa ne il m'a fait confiance wóolu na ma donc man sama rôle mooy préparer wu taxaw di ko déglu parce que noonu lañ mën a àndee nit ñi nag bés bu ne nga dégg waaw lii lii mën na lii mën na lii mën na lii d'accord ma koy sante suñ borom parce que sénégalais yi bu ñu lay xool jàpp na yow bës war nga mën a gérer wala war nga mën a régler problème bi seen yaakaar bu am ci yow la nga sante ko borom bi mais nag il faut avoir la tête vraiment sur les épaules nga nga nekk ku froid xam ne dañu nekk ci moment bu très complexe ku nekk di wax donc foofu yow am na erreur ne waroo ko def man ñu bëri nañ ma ne demal jëli fiche man ne leen su ma Ousmane woowul ne ma jëli kenn du ma gis ak kenn du ma dégg ak fiche mais monsieur Fofana raison yi Sonko évoqué woon ci moment boobu ba taxoon choix mu porté ko ci Bassirou Diomaye Faye mhm. est-ce que moment boobu convaincre na la moo mooy ban moment ngay wax choix bi muy porté choix am ci Bassirou. ci Bassirou voilà yi ba pare expliqué lu tax mu mu porté choix am ci Diomaye. mais bien sûr convaincre na ma parce que à la base man dama wóolu Ousmane man je connais Ousmane dama ko xam je sais je sais qui il donc bu defee choix ci Bassirou damay nangun choix boobu mooy choix bi gën moment bi mu nekkoon bu analyser ne Bassirou la et mbir mi du vraiment du nit ki Bassirou. suñu collègue la suñu nit la dañuy ànd liggéey. mais nit ki nag mais da ci jouer aussi monsieur Fofana. oui mais da ciy jouer mais il a ouais. il a les compétences. faut faire attention dans notre organisation Bassirou Diomaye joue un rôle très important. ah oui il a toujours été là lu bëri lu ñu samp fu moo ko liggéey. profil yi nag bokkul. boo tàmmee Ousmane. Bassirou est différent waaw Balla est différent El est différent kenn ku ci nekk ak lu wuute mënuñu comparer nit ñi bokkuñu ñun niru niroowuñu mais yàlla def na ni quand ñoo bokk même gëm-gëm bi ak pare nañ pour def même dépassement yi te jëluñu suñu intérêt personnel mettre ko en devant tey fierté la fierté la doon pour man fierté lay doon pour El Malick wala pour keneen ñu ne ko bu la projet mais ku bëgg Sénégal bu ñu la mm. dénkee da ngay nangu mais nag doo fi loolu da da ngay waajal sa bopp toog di déglu buñ ne ne jóg sëñ bi jugal servir nga jug servir boo paree nga dellu ci la nga ne woon man moom vraiment dama koo simplifier. d'accord mën na nekk comme nga ne mais est que bett na la. est-ce ci jomaay bi jomaay mënut a bett kenn. non yow est-ce que bi ñu ne choix bi ci jomaay laa ko porté. Mhm. nekk na lu la bett. non non c'est-à-dire que di nga ko accepté mais est-ce que bett ma bett pas possible surtout man man je suis à ma bett. lan mooy caractéristique yi ëmb lu tax nga ni. jomaay bett la te mënoo am loo ci am réserve. te. mënoo ci am réserve yow mi ko jege ba jàpp ne aussi am na lu mu jot a liggéey ci biir parti bi lan mooy caractéristique yi nga xamante ni am na ko moom jomaay. xam nga jomaay c'est quelqu'un qui est très structuré très organiser très froid dans ce qu'il et ça c'est des qualités d'un gestionnaire. bëri na lu Ousmane di yëkkati te Ousmane wax na ko ah ñëpp dégg ko. Mhm. donc choix bi yooyu ñoo ko porté. personne nag n'est parfait. Ousmane a ses défauts man mi Balla j'ai mes défauts on a tous nos défauts donc mënuma basé wu ci défaut da de pour dire lii wala lee parce que c'est comme si que ni ki jiite dafa war a parfait personne n'est parfait ici et l'avantage justement mooy dañ ko dañ ko tànn pour mu porter un projet dañu ñun dañu def suñu architecture def suñu étude def suñu projet def suñu programme def lépp taxaw parti bu leer règle yu leer ñu ne ko nag dañu bëgg nga nekk chef de chantier bi doxalal liggéey bi ñun loolu ko jàppee c'est à moo tax c'est pas diisul comme ni ko nit ñi bëgg a diisalee du woon rek vraiment kan mooy remplacer Ousmane parce que Ousmane kenn mënu ko remplacer li mu daj ci parti bi ak ni mu incarné Pastef ak ni muy fonctionné remplacer ko ça va être difficile mënoo am beneen façon leadership rek mais Ousmane c'est Ousmane aujourd'hui nag nous avons un président leader qui est Ousmane Sonko nous avons un président candidat qui est Bassirou Diomaye et nous tous tous ensemble kenn ku ci nekk mi ngi mi ngi daj lu ne pour que Diomaye nekk président te on le fait avec de xol bu oyof que amuñ ci amuñ ci jafe-jafe. ñu bare bare damay dégg ñu naan da ngay fal benn am ñaar. dëgg la. loolu nan la lan ko mën a expliquer aussi tamit tey jii nii bu fekkoon dafa am looy ñuqi ci Ousmane daal di koy sol ci Bassirou. Mhm. pour que jiixi jaaxee yenn yi ñëw bañ a ñëwaat lan lay doon exactement. ah mais justement boo falee benn am ñaar kay soxla woo ñuqi fay di ñuuxaat fële. xam nga dañuy fal Bassirou mais dañuy am Ousmane. moo tax ma ne le président ci naka lañ koy amee. ah parce que ñoom euh, euh, ki Bassirou est au pouvoir c' comme si Ousmane est au pouvoir pour ñun c' est pareil moo tax ñun damay tooñ kenn daf ma bind ma ne ko ma ne ko le président mu ne ma ban président ma ne ko c' est vrai maintenant il faut qu'on précise <laughs> le président leader et le président candidat ñun on a deux président le président leader du parti et ñëpp dañuy wëy ci leadership bi te da ko assumé nag parce que débat wu premier ministre vice président bi mu génnee dafa tranché tout de suite. dinañ ci ñëw parce que xam naa ne si ñu ko boros ci dafa assumer donc sa position de président leader il est il porte le leadership. moo tax pour ñun changement yu bëri amul c'est comme dañoo dindi Ousmane teg Diomaye non on a un président président candidat le candidat sera à la tête de l'exécutif il aura un boobu nag moo war mën a am leader si réew mi. ah non nag ñun nag suñu non. xam nga dañu wax ne mais non et puis loolu lañ bëgg ci réew mi ñun liñ bëgg mooy. ñu yilif si réew mi. non boo xasee nekk président de la république. tu arrêtes un chef de parti bañ a nekk donc quand on dit président leader mooy mm. président leader du parti. Mm. donc mm. Ousmane Sonko reste à la tête de de la notre formation. kon Diomaye day génn si instance. ah oui Diomaye à la à partir du au soir du 2 avril Diomaye ne sera plus. il sera militant de Pastef c'est sûr. mais du si am bànqaas du si am nombre d' il sera le président de tous les Sénégalais. et à partir de ce moment là Diomaye ne devra plus se préoccuper des problèmes de Pastef. ce n'est plus son problème. devra nga mais si moment yooyu. non dama ne. Uh-huh. le jour où Diomaye buñ ko joxee. bu prêter serment ba pare de la République prêter serment. Uh-huh. il il il sera. le président des Sénégalais et il devra s'occuper essentiellement du problème des Sénégalais. génn ci mm. parti bi catégoriquement. pas rester militant lii nii bëgg naa mu leer ndax sa xalaat la wala parti bi loo loolu loolu la tënk ki nga xam ne mooy seen. candidat ndax noonu la parti bi di doxee. dama ne noonu la parti bi di doxee noonu la réew mu normal di doxee. waxoon ngeen fi cumul de fonction de après ngeen dem ba ci biir naan ko mu neex. est-ce que du ngeen dem ba ci biir naan bu ko neexee mu ñëw ci réunion yi bu ko neexee mu dem. am de wax ko ah layal nañ ko de. non ko non bu su dafa ne Ousmane dafa ne woon. décidé naa ko mais nag mënu ko imposer ñenn ñi. man dama bëgg lépp leer. je le répète. Mm -hmm. quand Bassirou Diomaye Faye deviendra le président de la République du Sénégal ñu koy ñaan yàlla mu defal ñu ko. Mhm. il va s'occuper des problèmes des Sénégalais et Pastef et dootul nekk véritablement un responsable de Pastef son rôle c'est de c'est de s'occuper des Sénégalais fu loolu moom foog mu leer loolu mooy suñu ligne politique. ok voilà waratul occupé wu ay mbiru Pastef maanaam mënatu ci nekk militant waratu ci nekk responsable waratu mën na rester militant ok mais sa responsabilité seule et unique c'est de diriger sa pays loolu la ko parti bi tënk loolu la ko parti bi tënk parti bi nag doxal doxalam d'accord loolu bu defee cinq ans bu ñu koy tegaat candidat ñu tegaatu candidat ak lu ñu def boobaa leneen la Mais pendant qu'il est là, il est le président de la République de tous les Sénégalais et sa priorité, ses urgences, ses, ses décisions stratégiques, c'est pour l'intérêt général des Sénégalais. Nekkatul pour ay affaire de parti politique. D'accord. Pour le cas de Birame Souleye, dans les textes de notre parti, ñun ci biir parti bi mënoo def cumul mooy responsabilité yi ñu am. Hmm. amoo droit def cumul. kooku amul benn responsable Pastef bu am ñaari fonction ci biir parti bi maintenant. bi Ousmane Sonko di def programme présidentiel am. daf ne sama programme bu su ma nekkee président damay voter une loi buy interdire les cumuls donc Ousmane président de la République day dem assemblée nationale voter une loi qui interdit les cumuls donc képp koo xam ne da nga yor ñaari poste tu es obligé nga bàyyi benn donc lu Ousmane waxoon la yàlla dogal na nekkul président de la République sénégalais yi faluñ ko donc loi boobu amul Birame Souleye te loolu la ko nit ñi wax ñëpp point de vue boobu la ñu am il n'est pas dans l'illégalité parce que le fekk mu garder ñaari poste yi loolu du teg su parti bi mais programme Ousmane la woon mais nag kilifa sa kilifa su xasee wax day rafet yow sa doxalin même bu nekkagul loi méngoo nga méngoo donc foofu mën nañ ko ne moralement wala d'un point de vue de l'éthique politique comme yow sa kilifa mhm. wax na ba noppi yow waroo woon a garder parce que lu ñu jaay nit ñi la mais kenn mënul wax ne dafa violer les textes du parti parce que parti bi interdirul cumul de mandat à l'extérieur du parti daf ko interdire parce que parti bi nag mënut a mënut a régir lu dul les règles du parti léegi nga baal ma foofu li nga wax nii euh, jëmale ko ci Birame Souleye euh, ne mënoon naa cërale maanaam mm-hmm. kilifaam loolu mm-hmm. pour tënku ci waaw est-ce que parti bi mënul woon woon jiitu biram sulee ci loolu maanaam ba ko kilifa gi waxee rek ñoom ñu gaawantu def ko texte ci biir parti bi cëralee ko kilifa gi ne comme waxu kilifa gi mënta nekk parce que texte parti bi du texte de loi xam nga biir parti man mënuma fay cumul daa ni mënu mënu mënu ma nekk euh, mënu ma nekk coordonnateur euh, communal nekk coordonnateur départemental donc kon ni ma laajee peut-être moo baaxul man ma leeral maanaam biram suley moom bi ko kilifa gi waxee yow loolu nga ko suggéré mhm. bi ko kilifa gi waxee moom mënoon na cee tënku pour cërale loolu kilifaam ma ne bi ko kilifa gi waxee est-ce que du parti bi moo ci waroon a jiitu mhm. fexe li kilifa gi wax ñu matérialiser ko def ko texte ci biir parti bi ba nga xam ne kenn du mën a def ay cumul de mandat non loolu laa comme ça parti bi tere ne membre parti bi yëpp du am ñaari fonction quelque chose de fonction pas ci biir Pastef mais ci tëggaat suñuy texte voilà loolu dañ ko ci lu tax dugaloo leen ko non mais parce que texte yi mënoo ko tëgg tous les jours quand texte du parti da nga koy tëgg dawal cinq ans dund ay boo waaj dem congrès nga changé amélioré tey texte demaat congrès mais mënoo texte mënoo mënoo mënoo bés bu nekk nga benn article munoo mënoo ko def mais li wérte wóor mooy tey jii Bassirou Diomaye bu falo <laughs> cette loi là day jàll dañ koy voté assemblée on va arrêter les cumuls donc Birame Souleye va être obligé maintenant il bu choisirul il entre dans il est dans une situation d'illégalité d'accord voilà donc loolu. seen parti bi delloo na leen ko wala. waaw du président voté na kii bi. Euh, waaw amnistie bi mais. non non non dernièrement gis naa ne. voté décret bi c'est officiel. wax nañ ne mais dinañ xaw ma nag officiel la mais weddi woon nañ ko mais weddi nañ ko dégg naa ne signé na d' après l' que j'ai eue dégg naa ne. jotagu leen benn note. au sein de Pastef aux dernières nouvelles ku ko jege wax na ma ne en tout cas décret bi ah, man li ñu wax mooy signé na ko. Mhm. maintenant le temps génn ak d'accord bëggoon naa ñu taxaw un peu ci benn point mooy la situation d'Ousmane la situation carcérale mhm. d'Ousmane Sonko parce que moment yooyu dafa coïncider dissoudre parti jàpp Ousmane Sonko en tant que acteur boo xam ne jege woon nga ko mhm. ci ay sens yu bari lool mhm. naka nga doon dundee moment yooyu ak comment est-ce nga ko doon boolee ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon au sein du parti surtout ñi jege seman Sonko bon niñ ko doon dundee c'était difficile comme je t'ai dit parce que c'est pas uniquement rek arrestation am mais y a premièrement y grève de la faim bi c'était difficile parce que nit booy ànd ak moom yéene ko jàmm buñ ko séparé ak njabootam da lay affecté mm-hmm. bu bu bu bu bu feebaree daf lay affecté mm-hmm. suy def grève de la faim daf lay affecté donc loolu loo ci mën da nga koy da nga koy def voilà donc je pense que ne ñun ñëpp kenn ku ci nekk mën na mën na peut-être un jour dina wax dugg ci détails yi li mu def yëpp pour pour mbir dakk wala mu arrêté wala nii wala nii wala lii waaw mais yan acte nga posé ah yan acte nga doon posé ak ban taxawaay nga amoon instant non am na yoo xam ne boo ci duggee day day niru gistal cest à que non pas ngistal mais un xam nga comme c'est du passé déjà mën nga expliquer au moins li wette wóor mooy lépp loo xam ne jàpp naa ne war naa ko def jéem naa ko def comme non jarul jarul kii en tout cas man sama taxawaay sama responsabilité loolu la man su may ànd ak nit li ma la yéene laa la yéene voilà su ma soo nekkee ci difficulté lu ma mën dinaa ko def malheureusement nag mënuma lu bëri parce que bon réew mi c'est compliqué. Mm-hmm. mais yow aadoo trop di la gis mais dala gis benn jour Ousmane Sonko defe naa si diggante Mame mbay ñaa su ma juumul bi euh, bi bi ñuy jàpp ñoom yargas yi ak yooyu noonu. defe mm-hmm. naa ma gis image yi nga nekk si ginnaaw Ousmane Sonko. Mm-hmm. ak ni nga solo woon sax xam ne ne nekkul solu manifestation nga solu mais boo ñëwaat si séquence yooyu noonu avec avec le recul si moment yu sombre yooyu nga dund ak Ousmane Sonko. non euh, tu sais je pense que bi ma ñëwee Canada bi ma jugee Canada installé wu Sénégal. Mm-hmm. amul jour bu ñu woowul Ousmane tribunal te dewuma mm-hmm. kooku man sama deret nanguwu ko cest à que man mënuma toog sama kër Ousmane di wujji man mënuma ko donc soit euh, loolu mën naa ko raconter gis nga immeuble Kébé waaw jullee naa fa fajar ndax xaar procès. <laughs> Mabou Kébé. Mabou Kébé ci ci ci taatu garab gi. lal nañ fa maak sama waay ki may àndal sa jaada parce que tellement dañu xëy bëggoon fekk mbir yi que jullee jullee naa ca mbedd mi ci wetu 4 x bi ñu gaaree di julli fajar di xaar tribunal bi ubbeeku pour dire que ne suñ ko woowee tribunal dañuy dem. dama demoon policier dañ ma xàmmee parce que benn jour def naa te émission sa émission la woon. Mhm. ba may wax li ma policier yi discussion bi kii bu ñu mhm. amoon. mu jigi dañ ma xàmmee ba kenn dootuñ ma bàyyi ma dem su ma ñëwee dañ may dàq mu jigi ma dem topp ci caravane yi et ce jour là nag justement mooy jour bi nga xam ne dama dama ne ci 4 x bi maak euh, mon ami Pape Koné. Mhm. et puis j'ai vu Ousmane mu jugee fële ànd ak euh, Guy. fekk boobu dóor nañ gaz bi seen oto donc man boobu bi may génn di di di romb gars yi doo ko xam sax en fait doo xam lu la yëkkati en fait c'est c'est c'est c'est comme sax lu ne mënoon nañ ci fekk parce que jour boobu lañ jàpp yargas yi oui ah, jour boobu ñun voilà mënoon mënoon naa tey jii émission bi nekk génn naa ko soñ ngeen invité ma ci kon ki lu ne mënoon na xew tout tout arriver mais li ma mën a wax rek mooy man vraiment euh, musuñu woo Ousmane te soit dew ma tribunal war ànduma ak moom ci procès bi ko moom mënuma ko moom mënuma toog sama kër ça euh, dem ba toll benn instant léegi dugg nañ ci Ousmane Sonko peut être génnam kasoom mhm. mais avant loolu am na lu ko jiitu mooy projet bi ci laa bëgg ñu waxtaan ci lu yaatu surtout ci côté technique yi nga xam ne dina ci am ngeen bind benn projet Ousmane ne dooroon nañ ko presque depuis 2010 da ngeen def ay réajustement mhm. nan nga ñu mën a expliquer exactement ci lu ëmb projet bi laataa ñu ñëw ci deux points yi nga xam ne bokk na ci gën a fës te nit ñi di ko wax. waaw xam nga ñun moo tax ma ne la ñun on est vraiment Pastef c'est vraiment structuré organisé programme bi ñu présenter nii mën naa ne la ne 60 pour cent li ci nekk wala même 70 pour cent li ci nekk nekkoon na ci programme 2019 voilà parce que nag aussi il y a une certaine continuité. Mhm. du ñu du ñu. Mhm. ñu xëy rek di tey ñu ne lii suba ñu ne lële. dafa am benn base ñun suñu vision mooy souveraineté. oui souveraineté lañ gëm. donc 2019 bi lañu jël delloo ko cadre yëpp cadre yi retravaillé réajusté amélioré renvoyé ñu ñu liggéey jox Ousmane après Ousmane valide li muy validé avec son candidat après ñu avancé. d'accord mais pour te dire que c'est vraiment une continuité aussi benn logique. Euh, par exemple territoire du développement bi mu génnee am na lu bari lu mu amélioré ci partie aménagement décentralisation. Euh, ci ci am na benn évolution bu am euh, donc noonu noonu noonu rek la mën a demee en fait. mais looy tontu ñuy jàpp ne yéen une œuvre inachevée inachevée ngeen di jox askan wi parce que même Bassirou Diomaye Faye il dit que seen input yi ñu si waroon def yëpp defewuñu ko comme ni ñu ko bëggee woon parce que la rigueur euh, carcérale. carcérale ñu gis aussi ngeen obligé génnaat di dafay explication si yenn point seen programme sans pour autant entrer dans le fond parce que baakat na ko def loolu yëpp que révélé wul benn genre maanaam ñàkk pare. si li ngeen tuddee yéen projet bi am na sax ñu doon naan depuis 2014 yéen ñu wax projet bi. Mhm. ñu ñëw laaj leen projet bi ngeen naan ay ay input yu yu ñëwagul ak nangam. Mhm. foofu tamit est-ce que. non dañu présenter projet boo xam ne am na 15 axes près de 87 pages deux points la ci nit ñi di wax te dinañ ci dugg. Mhm. donc c'est vrai point wu vice président bi moom c'est vrai que harmonisation amu ci. pour le reste dinañ ci gën a dinañ ci gën a andi ay leeral maintenant. amul œuvre humaine bu bu bu parfaite et je pense que 2019 présenté nañ programme kenn amul lu mu ci doon wax 2024 lañ ñëw am ces éléments la te li ko waral mooy muy Ousmane muy muy Bassirou ñoom ñëpp ils étaient en détention donc je pense que loolu mën na quand mën nañu un peu indulgent par rapport ak ñun sur ces deux points la et on a aussi eu l'honnêteté et l'humilité de dire que non. lii validé wuñ ko woon bu doon ñeneen ñeneen ñeneen la dañ koy assumer dañu assumer erreur bi duñ sax nangu ne am na ajustement bu ñu waroon def duñ ko sax nangu mais ñun on on a dit que euh, leader bi tranché na lii la ñu def donc donc amul pour man amul lu amul surtout contexte bi ñu nekkoon ça peut expliquer beaucoup de choses waaw ah, c'est pas évident Ousmane c'est très difficile ñun ñi nga xam ne nous sommes ses coordonnateurs des fois pour pour euh, am accès ci moom c'est extrêmement difficile Diomaye dañ ko doon interdire mu wax waxu politique donc condition yooyu la ñu la ñu liggéeyee c'était pas du tout évident mais loolu tamit est-ce que kon tekkiwul ne bu ñu falee Diomaye Faye li ñu daloon ak président Macky mën na ñëw dalaat mhm. président Macky Sall ñu fal ko sur la base du yoonu yokkute mhm. euh, deux ans après mu ne ñu plan Sénégal émergent mhm. kon est-ce que bu ñu faloon Bassirou Diomaye Faye ak programme bi ëllëg xaar mu indil ñu beneen programme programme bi ñu ko ñu ko fal benn point lañ ci ajusté ajustement boobu def nañ ko jeex na mooy euh, affaire u vice président bi le président Ousmane Sonko a dit clairement que en tant que leader je considère que point bi nii moo gën te loolu dañ ko koy bu cadre yi amee des dissensions c'est le leader qui tranche te li Ousmane tranché loolu la Diomaye di egg di loolu ne maanaam cabinet bi ngeen waroon liggéey yaa may naan ça ça n'était pas dans le cadre du cabinet liggéeyoo leen ci est-ce que loolu tekkul ne maanaam liggéey nañ ci ah mooy sortie bi la sortie liggéey ngeen no sortie bi non voilà voilà est-ce que bu cabinet bi du am harmonisation ba Ousmane Sonko du génn di wax loo xam ne ni après adversaire yi loolu lañ jël non non non attends il faut que ñu xam de quoi on parle bu fekkente ne sa sa sortie et sa communication la mm-hmm. kooku moom moom moo ko assumé et je pense que il de le faire sans il a pris une décision sur un point du programme précis, il a ajusté, il a corrigé devant tout le monde. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ñun liggéey nañ ci programme bi cadre yi liggéey nañ jox coordonnateur yi coordonnateur yi liggéey delloo Ousmane Ousmane jox na ko candidat am contexte yi candidat bi nekkoon ak difficulté yi tax na ba yenn validation bi entre le candidat et le président leader on n'a pas pu le faire am na élément bu nga xamante ne nii il fallait trancher a tranché on avance liggéey xam nga liggéeyu nit la man du ma fi nekk fii naan di di di di di justifier loo xamante ne nii c'est normal yi fi nit la am na condition tey toi tu fais partie des meilleurs journalistes de ce pays <laughs> non. mais am na con non il faut le il faut le dire il y a pas de y a pas de y a pas de mm-hmm. tu fais partie des meilleurs journalistes de ce pays mais am na condition yoo xam ne bu ñu la si le rendu ne, sera pas le même et c'est aussi simple il faut que ñu ñu ñu nangu ko. non mere naa la trop nag. ah lu tax il fait partie. non il est le meilleur. il est le meilleur ah non ça ah non non il est le meilleur faut le dire. non faut oser le dire quand même. non genre politique il faut oser le dire quand même. il faut il faut qu'il est le meilleur rek. non il <laughs> il est encore jeune. il est encore jeune. il faut que Sénégal. ñu bàyyi di wax euh, no il est jeune dese na ko tuuti pour mu nekk nangam. xam nga xam nga xam nga loolu kañ laa ko kañ laa laa xam ne existé man gën a bañ loolu man li ma bëgg a wax mooy. waaw pour que je précise. j'ai dit qu'il fait des meilleurs donc pour man xëy na am na lu mu war a. Mhm. amélioration continue lu mënta mhm. ñàkk la. parce mhm. que on est des humains non plus. Euh, la performance n'est jamais là tout le temps. mais si je dis qu'il est jeune je ne parle pas de l'âge je parle du fait que ne carrière dese na ko quasiment trente ans cinq quarante ans de carrière sa kanam. ah voilà monsieur léegi nag damaa bëgg ñu wax ma. Euh, euh, xale la il est le meilleur actuellement donc li ko desee ci carrière am mën nañoo njort ne il sera beaucoup plus meilleur meilleur dans le monde mais le Sénégal fii nii nañ nangu ne ak agam il est le meilleur ak avenir am ci kanam mën naa nekk meilleur dans le monde wala dans le monde francophone wala naa mayam man loolu laa bëgg xam nga sur le plan ci ci sport dafa am lu ma ci jàng mhm. lu Mbappé doon wax comme léegi moom xale yi moom la ñu wooye la Mbappé des journalistes mhm. Mbappé dafa bi mu nekkee Monaco di doog a ñëw à l'âge de 17 ans mhm. mu dugg benn match toj ko mu dem Ligue des champions contre City mu def doublé mu toj ko match ba sa topp waa ji tegaat ko ba mu dem laaj ko lu tax ak samay performance nga may teg ban mu ne ko parce que euh, tu jeune mu ne ko mhm. non bul ma juger ak sama âge de ak samay performance su fekkee damaa mérité football wax ma may dugg su fekkee mérité wu ma ko wax ma ma seeti feneen et depuis lors mhm. à l'âge de 17 an ba léegi mu fu mu jaar da koy da koy toj donc Sénégal léegi il faut ñu bàyyi diw xale la ba ci suñu yaay ah da ngay war a nekk milliardaire ñu naan la noog ndaw du gaawtu xaaral cat dafa nangam ak nangam mel ni milliardaire dafa am âge ngay dugg ci diine ji ñu naan la noo dafa teel bàyyil ba nekk mag ma ne man nañ ñu bàyyi ñu ñu prouver man maa gën a contre di infantiliser nit cest dire que ne kilifa nga koy xaj nga koy def loo xale xale loo maa la gën a contre mais Diallo mi sax nee vert ma bëgg a wax mooy <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. carrière dañ koy gérer mm-hmm. carrière dañ koy gérer te am conscience que ne c'est vrai maa ngi benn niveau de performance mais sama performance bi dama ko war a maintenir sur vingt trente ans mm-hmm. ça c'est important parce que soo ko soo amul conscience boobu rek da ngay jàpp ne ci man la alors que ne du ci yow ci mm-hmm. doxalin wi la ak jëfin wi mm-hmm. moo tax nga nekk ci benn niveau bi soo bàyyee ko rek <laughs> affaire yi dey wàcc donc su foofu la foofu laay waxee ne alors euh, carrière am def ci jeune dese na ko des une dizaine une vingtaine trentaine d'années même quarante ñaanal naa la ko d'accord il faut garder cette cette euh, cette constance là. Ah, incha allah alors ñu dugg ci bu njëkk bi mooy vice président bi. Euh, ndax mën nga ñuy dellu si waatal pour matérialiser ñu. Mhm. et que nga décortiquer ñi techniquement. Mhm. poste vice président boobu noonu ñuy wax lan moo ko composé. Mhm. nan lay doxee ak buy am ci yan anam la war a mën a amee. xam nga cadre yi ko proposé ñoom seen approche bi ñu ci am et c'est tout à fait compréhensible mooy. ñun suñu système politique ñëpp xam nañ ne suñu président kenn ëpp ko doole ci réew mi ah, am doole de trop ba noppi ñëpp nangu nañ ne président war na mën a def ay toj-toj yoo xamante ne nii bu dee haute trahison la dañ ko war a mën a destituer nga mhm. ñëpp ñëpp nangu nangu nañ loolu que ne président bu def haute trahison bu clair euh, dañ ko war fi ñu ko war a jële mais bu fekkente ne vice président amul bés boo fi jëlee président rek ay élection day amaat parce que euh, président assemblée nationale mooy ñëw elle organise les élections sur 90 jours et là cycle gouvernance bi day day day biaisé mm-hmm. Mm-hmm. moo tax système politique boo gis président bi ñu créer ay conditions yu nga xamante ne nii bés bu ko defee mooy li américains yi wax day dañu day impeachment day am mooy dañuy ñëw woo ko enquête ko ne ko ah yaa def toj toj bieg bieg bi ça la haute yow dañ lay wàcce système bu mu am rek mm-hmm. vice président dañ ko war a falaale au moment bu ñuy fal président bi nga gis États-Unis on a le président le vice-président le secrétaire d'État def nañ seen chef de chaîne de commandement bu nga xam ne ku trahir l'intérêt supérieur des Américains rek dangay génn samaram morom ñëw remplacer la le le mandat continue jusqu'aux prochaines élections donc système boo gis ñu ne président bi waratul nekk benn buum kuy buur di buum mi et am na yoo xam ne bu ko defee dañ ko fi war a jëlee sóoraale nañ un vice-président pour fi jële ñu remplacer donc loolu c'est bi ci topp tam. système boo xam ne limitation mandat dafa am mooy maanaam nit ki bu xasee ñëw def cinq ans bu defaatee buy defaat cinq ans moom kuy dem la système bi souvent day préféré bu ñu lay fal ñu falaale la ak vice président nga xam ne yow daf réew mi dañuy xam ne booy dem xam nañ déjà kiy ñëw gis nga kaawu exemple Macky Sall bi mu fi toogee am deuxième mandat am affaire kan moo may remplacer tax na mu da mu dindi poste premier ministre pendant trois quatre ans on n'a pas eu de premier ministre te loolu dafa yéexal liggéey bi dans ce pays donc pour des questions politiciennes et pour éviter loolu on oblige le président qui doit partir de choisir tout de suite son vice-président et d'aller en élection ak moom pour que mu leer ko ne day dem dañ koy remplacer na parti bi nag bu ko neexee mu choisir keneen mais système bépp bépp système de gouvernance boo domaine de compétence yi président de la République yi nekk ak yi vice président yi nekk dañ koy séparer parce que bëgguñu bu président defee toj-toj ñu laaxaale ci vice président bi. Mhm. donc vice président bi il est là juste pour faire de sorte que l'État doit toujours avoir un chef. Mhm. parce que ñoom aux États-Unis un président à terre ça veut dire les l'Amérique à terre ñoom euh, entendement boobu la ñu am. quand par exemple bu ñu camp et puis ñoom dañu yàgg dañu dund ay assassinat de président yëpp dañu ko dund. donc ñoom ay kidnapping ay kidnapping yooyu yëpp ko dund donc ñoom tant que l'Amérique a un chef l'Amérique est debout seen culture boobu la ñu am tant que y a un chef l'Amérique ne kenn mënu ko combattre moo tax bu ñu songee seen réew rek ñu dem làq seen chef tan que chef bi mi ngi dund vice président bi ñu ngi ay il est en vie l'Amérique est debout peu importe nag dóoral bomb defal la neex mais tant que ñoom am nañ njiit ba léegi mënalu leen dara moo tax seen président seen vice président du ñu bokk mukk même endroit voilà donc loolu yëpp culture la bu bees xam nga Sénégal day évoluer day changer tey jii c'est vrai on di on renforce euh, premier ministre bi mais man gëm naa ne dans dix ans vingt ans débat bi day ñëwaat débat wu vice président dina ñëwaat te yàlla ñu yàlla may fekkee ak tal dina ñëwaat parce que dafa am sens dafa am logique. ñëwoon na sax jamonoy président Abdoulaye Wade. ñëwoon mais bon. a muy dem xam nga jamonoy Wade c' était très politique. oui c' était politique même. ñun bi ñu ko génnee les gens ont voulu politiser ko. ne Ousmane Sonko lañ ko wutal. Mhm. alors que ne techniquement ñëpp xamoon nañu ne mënut a nekk. et c' est d' je soupçonne que ne looloo tax président Ousmane Sonko pour wane ne nekkuñu ci logique politique mu dàq ko carrément mais pour mais pour man c' est quelque chose qui es qui est qui est perti lu pertinent la lu logique la. maintenant on mais pour man sujet la boo xam ne ça risque de venir parce que contexte bi Sénégal nekk la léegi Sénégal léegi c'est deux mandats mm-hmm. et le président de la République pouvoir am day wàññeeku bu baax a baax mm-hmm. donc le poste de vice-président ou un poste de premier ministre renforcé euh, premier ministre renforcé sax renforcement boobu léegi lan lan lan lay doon est-ce que on peut est-ce que mën nañ ko daq à tout moment nan lañ koy dàqee parce que aujourd'hui premier ministre moom daanaka bouton chaise éjectable la quoi. Mm-hmm. d'accord mais est-ce il va continuer d'être benn chaise éjectable donc voilà voilà toutes des questions yi nga xamante ne nii. mais mais ci biir loolu yëpp Ousmane Sonko intégration wala bokkam ci biir gouvernement bi de manière légale. Mm-hmm. ak également de manière boo xam ne day day jaar tëdd ci yoon. Mm-hmm. naka ngeen ko fas yéene collé parce que peut-être jàpp nañu lu ci mënul ñàkk lay doon wala ndax day nekk ab conseil rek derrière Bassirou. parce que dañu ne woon poste taillé la woon pour Ousmane Sonko léegi supprimer ngeen ko intégration. non ça n'a jamais été un poste taillé pour Ousmane Sonko parce que anyway mënu ko woon occuper que dans cinq ans. donc mos mënut a nekk poste taillé te même dans cinq ans je pense que ne même boo moytul Bassirou Diomaye <laughs> mën na nekk le vice-président parce que euh, Ousmane Sonko reste quelqu'un de très fort au niveau du parti donc poste taillé moom amu fi poste vice-président bi les en avant c'est que dañu xamoon ne. bu ñu comparer yeneen système de gouvernance yi mhm. lu pertinent la loolu daal lañ ci mën a wax nu duggam di demee ak naka lay duggee non man defuma ci fixation franchement kenn defu ci fixation man en defuma ci fixation awma ci réflexion bu sori Ousmane Sonko ay affaire u poste intéressé wu ko su doon nekk président de la république moo nekk obsession am kon contribuer na ci dina def tout pour ñu reporter élection on l'a vu il l'a pas fait ku président de la république tiitalul nag ay poste premier ministre rek yeneen ak yeneen yeneen franchement tiitalu la non donc ñoom ñooy ñun ñooy xool après une fois que on a débuté le boulot de travail kes lan la ñuy def pour man personnellement yàpp on n'a pas eu de discussion sur ça et c'est pas si important que ça. ñenn ñi ñaaw njortu ne. Euh, tamit porox ndoll gi Babacar di wax bu ngeen koy jéem a utal bokk ci na bokk ci na dissoudre assemblée nationale après jéem koo tëggaat def ko président bi euh, Diomaye daal di démissionné comme système bi fi nekk actuellement. mu daal di ñëw nekk nekk nekk président. non ñun nag yabuñu sénégalais yi à ce point. Hmm. waaw fa dëgg yàlla yabuñu sénégalais yi nag. non quand ñu fal pour ñu liggéey pendant cinq ans ñuy def ay. man mii sax ñu ko xalaat bañ naa ko ba wax ñi ñaaw njort. je dis voilà je chaise musicale ak duggal fii génn non ça on va pas d'accord en tout man de je ne suis pas d'accord. est-ce que da nga bëgg a rassurer wala wax ne mu leer Bassirou une fois ñu fal ko ba mandaam di jeex mooy toog. ah mais euh, qu'est-ce que j'ai dit euh, tout à l'heure une fois qu'il devient bu ñu ko xasee fal il devient le président de tous les Sénégalais. ba cinq ans jeex amul il n'est plus président par procuration non non non une fois qu'il est président il est président voilà. lii ay kaddu. lii ay kàddu Moussa Balla Fofana la wala lu tënku ci parti bi. wala lu officiel ci seen biir c'est les faits c'est la réalité. moom ngeen tënk. te loolu mooy li nga mën a nekk. ça on euh, on on on ne devient pas président de de de président de la république wax léegi man ma xuus ba juróomi at après bu ci ci ci ci beneen mandat bi falaa jëm nii <laughs> euh, bu ñu demee ba foofu. Mhm. nit ak mbiram nguur ak na mu demee euh, Basirou ne. moom dafa bëgg day laaj deuxième mandat bu boobaa Ousmane yéen sóor ngeen loolu. Ousmane lu muy doon day doon opposant am. wala ba Ousmane ñëw fii nga laaj man loolu xaw ma. non yaa nekk ci cabinet bi. non non non maanaam wa bu ci par situation la yoo xam ne. est-ce que parti bi ah, réfléchir na si parce que bu ñu demee ba foofu mu ne moom dafa dafa bëgg a continuer liggéeyam parce que moom moo nekkoon président comme ni nga ko waxee mhm. parce que nag une fois ñu fal ko nag amatul procuration amul dañ maa ko puusoon maa ko nangam c'est lui le président ah c'est lui le responsable et les responsabilités ne se pas bu ñu demee ba toll foofu mu ne moom liggéey ba mu dooroon ci juróomi at yi da koy wëyal bu boobaa nan ngeen di def ak Ousmane non ba boobu man du mënuma spéculer ci loo xam ne ñëwagul ce serait irresponsable de ma part. ah sëñ bi foofu na sànq ba léegi yaa ngi naan bu nekkee président te ñëwagul. attention kon mën nañoo wax bu ko nekkee ba pare it. non non non li tax ma wax la ne su nekkee président mooy fonction président daa am lu mu àndal ak lu mu àndalu ñun mënuñu respecté nañ Sénégalais yi respect boo xam ne bu ñu leen waxee ne Diomaye mooy candidat aux élections présidentielles Diomaye mooy seen président une fois que Diomaye élu Diomaye est président de la République des Sénégalais il ne s'occupe plus de Pastef et des problèmes de Pastef il s'occupe des problèmes des Sénégalais jusqu'à ce que mandaam jeex hmm. su mandaam jeexee nag Pastef mooy décider lu muy def Diomaye mooy décider lu muy def Ousmane mooy décider lu muy def booba man franchement mënu ma la wax mënu ma laa wax ne Pastef yi dafay boobaa je sais pas hmm. d'accord waaw waaw kër yaa ngi réeré. <laughs> Ah, <laughs> waaw ko neex. na fi ma bëggoon waxee mais. à chaque fois li may insister mooy pourquoi ñoom ñu bëgg ñu gëmal carrément coûte que coûte que ni jomaay mooy Sonko comme si que jomaay dafa amul lu mu mate ba tax jii fépp fu ngeen teg jomaay ne Sonko la ngeen def photom teg fa Sonko même xool nañu tamit euh, depuis sa sortie xool nañ bu baax a baax gars yi nu ñuy waxee Sonko Sonko Sonko lan la exactement la mooy problème bi. maanaam yow da bëgg wax ne ñoom li ñuy wax loolu est-ce que nañ ko. non gëm nañ ko nañ ko gëm mën nañ ko bañ a gëm je mais le fait que fois ñuy appuyer ci mooy Sonko alors que non. Diomaye mënu nekk Sonko Sonko Sonko la Diomaye c'est c'est Diomaye bon mën nga ko jëlee noo xam ne ça devient quasiment philosophique ah kenn ku nekk mën na ci am point de vue quand mooy Sonko Sonko mooy Diomaye ça veut dire que ne c'est le même porteur c'est des porteur du projet Sonko son rôle c'était porter le projet Diomaye maintenant son rôle c'est porter le projet. saa yi fi mu wax ci photo yi est-ce que kon jaroon na comme waa ji ñoom ñaar benn lañ. Mhm. est-ce que jaroon na boo defee photo ki def photo ki defal photo kenn ki rek comme benn lañ kañ. ne les images parlent plus bu fekkee man Ahmed maay Ahmed rek buñ tegee sama photo tegaat fi beneen Ahmed ban jariñ la am comme maay Ahmed rek nañ ma fa def man kese ah, rek. comme Diomaye mooy Sonko buñ fa defee Diomaye kañ Sonko nga fa jarul woon Sonko ci wet gi. taqale ñaari photo yi mooy wane ne ñoom ñaar benn lañ. <laughs> bool bool ngay waxaat bu dee yow yaay Ahmed rek. parce que baara loolu laa mais la moo tax comme les artistes le font les artistes ñuy créer bu dee yaay Ahmed donc mais du ma jël ñaari photo Ahmed def ko ci image bi. mais est ce que am sens di. kon donc doon woon ñaari Ahmed lay doon. doon woon comme Ousmane la ak su am na ñoo xam ne dañoo jël ñaari kanam yi. merci merge ko defar benn kii boo xam ne boo ko xoolee des fois dañuy gis Sonko des fois dañuy gis Amath c' est de la communication en fait il faut pas que ñu. c'est deux personnes différentes évi évi okay. évidemment mais on est en communication on veut dire aux militants Pastef et à l'électeur sénégalais bi nga xam ne dafa choisir le projet miin Ousmane que ne bul am tiitaan bul tiit bul am jaaxle ñaar ñii li Ousmane di def ak yéene bi mu ci am ak dogu bi mu ci am loolu la Jomaay di am ci yéene ak ci dogu ci ci dogu Ousmane mooy Sonko Jomaay euh, euh, euh, mooy Sonko Sonko mooy mooy Jomaay li ñu ci jublu mooy yéene bi Ousmane am ak dogu bi ak fas yéene appliqué projet bi noonu la Jomaay amee dogu ak ak yéene appliqué projet bi te loolu bu ñu ko waxee war nañ ko mën a gëm parce que ànd nañ liggéey. non là c'est beaucoup plus clair. communication la ah, ah, ah, li ci nit ki di jëlee mooy ñoom ñaar daanaka dafa mel ni rek yéen ñiy liggéey fii. Mm-hmm. Babacar Kebe am na lu ñu koy dénk mu di ko def. mais mi ngi liggéey ak ñeneen tey dinañ dem ba bés bu Babacar mënta nekk fii ñu jël kii teg ko fi mu def liggéey bi c'est de personnes différentes c'est deux personnes différentes mm-hmm. mais ils ont la même profession yàgg ngeen liggéey ba dem ngeen xam nga ne li kebe di def saa waa ji mën na ko def mm-hmm. loolu lañ ci jublu bu ñuy waxee ah lu tax ñu ne ah benn lañ ay liggéeykat lañ ay professionnels lañ li kii di def kii mën na ko def côté boobu la ñuy waxee en tant que porteur du projet ñoom ñaar benn porteur la même mission mais nag effectivement waaw kon est-ce que gënul woon nga baal ma est-ce que gënul woon donc fi ñu toll nii ci jamono bi xam ne say wax da wax ñu dëppër ñu ko tegalal leneen mhm. comme que jomaay mooy Sonko te Sonko am na foo xam ne kàddoom dafa yegg dafa am importance très rarement lay wax ñu bañ ko déglu mhm. ngeen bàyyi woon ko moom muy wax jomaay nekk ci ginnaawam rek tout simplement bañ a wax ba yenn parfois sax ñu koy xaw a tooñ ci ni muy waxee wala yenn eh, eh, parfois eh, fekkee ne erreur communication laa ko tuddee mhm. mu koy amal euh, depuis xam nga c' est quelqu'un qui communique bien c' est pas la première fois que Diomaye di wax Diomaye yàgg na dem ci plateau défendre projet bi donc Diomaye a toujours communiqué sur le projet sauf que maintenant dañ bëgg Diomaye di wax comme ni Sonko di waxee alors que c' est pas possible man je ne parle pas comme Sonko parle Sonko ne parlera jamais comme je parle Malick El Malick ne parlera jamais comme Birame Souleye kenn ku ci nekk am nga sa style am nga sa parcours am na nooy a toujours porté et défendu le c' est ñi di wax Diomaye a toujours parlé du sauf que aujourd'hui nit ñi dañuy def benn dañ koy natt par rapport ak Ousmane alors que ni loolu mënul nekk kenn ku ci nekk euh, wuuteek sa morom moi je ne peux pas parler comme Ousmane Ousmane ne pas parler comme man kenn ku ci nekk ak ni ngay communiquer sauf que maintenant nag comme dañu dañu nekk dans une logique de dire ñaar ñëpp mën nañu nit ñi de manière cent euh, s'en rendre compte dañuy déglu Diomaye bëgg a dégg Ousmane mun ta nekk ñaar nit ñu bokkul la donc loolu laa koy analyser en tout cas de mon mais lii ni ñu war a retenir mooy te loolu lañ si jublu dañuy tànn un président de la république mooy nit koo xamante ne nii dañ ko war a jox ñun suñu projet projet bi bu ñëwee mu exécuté ko te liggéey boobu Ousmane mën na ko Diomaye mën na ko te loolu lañ jublu ci Diomaye mooy Ousmane Ousmane mooy. mais am na lu leen daroon si local yi xam naa foofu la ngay kiiwee. Mhm. seen intercoalition ak euh, wallu mhm. indi woon ay confusion sur certaines localités. Mhm. ba sax. mu yàqal leen fenn fii parce que boo leen cumulé di Wallu am d'une part ak ni Yewwi am d'autre part bi ko boole woon mënoon leen jiitu mhm. mais présidentielle bi si li ñuy voté bulletin bi photo candidat bi si ne or boo ne Sonko mooy Jomaay yow poussé woon ni pour mu xam Jomaay Sonko rek la xam mhm. Sonko la def si boppam bu nekkee ne si photo lay identifié wu dem nag ba war a voté gisul Sonko mhm. est-ce que mënu koo jaxase ba nga xam te nii risque de confusion mun na am ba nga xam ne ni Jomaay day faf ñàkk wala mu tàbbi si keneen La communication se fait toujours par étapes. Mm-hmm. il faut d'abord rassurer les gens parce que loolu li nga wax ne loolu jour élection la. waaw waaw alors que entre jour élection ak jour bi nga tànnee candidat il y a des mois ci diggante bi mm-hmm. donc le jour bi ngay tànn candidat il faut nga gérer appréciation nit ki ne ko attention ñaari nit ñu bokkul la mm-hmm. waaye en même temps benn lañ parce que ñoom ñaar yàgg nañ liggéey. mën nañ liggéey bi mhm. donc kii mooy kii kii mooy kee liggéey bi moo ko tax a jóg donc communication boobu jàll nit ñi accepté ko maintenant jouru élection yi ñun bokk na ci liggéey bi ñuy def par ah, exemple man à Diourbel mhm. euh, spécimen yi li ñu dépensé ci wut ay spécimen séddale ko nit ñi ne bii mooy bu sonko bi pourtant photo Diomaye yi ci ne waaw ah, bii mooy bu sonko bi parce que communication mënoo communiquer sur à tout dafa am moment bu nga xam ne da ngay tànn. étape par étape da ngay ciblé li li gënoon a am solo tout au tout début bi ñu imposé que ne Ousmane du nekk seen candidat Diomaye lay doon. Mm-hmm. nañu travailler pour que électeur bi nga xam ne dafa gëm projet bi mu rassurer que ne Diomaye bu ñëwee dina porte projet bi comme ni ko Ousmane am na ci yéene bi am na ci dogu bi dogu bi te te dina ko def ni mu ko waree loolu lañ njëkk a fexe nit ñi comprendre ko. bi ñu demee ba nag xam ne nit ñi nangu nañ ko léegi. ñu ngi koy foowee di ko kafe ba nit ñi nangu ko léegi nag ñu war a régler problème mu bulletin bi nga xamante ne nii dootul doon bulletin bu vert rouge bi nga xam ne ñun moom lañ am mais bulletin bu bu bu weex bi am effigie bu bleu bi lay doon ak photo jomaay borom sikit bi ñu wan leen ne bii mooy bu Sonko waaw comme sa sikkim bu jekk bi rek xam naa yow moom mënoo xas borom sikkim yow. non non ko xas xas borom sikkim ñàkk a xam luy sikkim la ak sunna ji nekk ci sikkim ah ñooñu ci cadre ci cadre boobu noonu Mouhamed mu ngi lay posé yaa ngi wax étape par étape. ñii mhm. tamit li ñu la posé dafa nekk un peu ci sens bu figurant moom la doon. mais yow mi nga xam ne waaye nga leen nga jege leen ba mu doon limal ay qualité wala ay caractéristiques yoo xam ne dafa ëmb nit yi lan nga jàpp ne bokk nañu ko lii mu ne véritablement que ni diw sàngam mën na nekk diw sàngam. non man fi ma xamee ne ñoom ñaar ñoo benn lañ ci côté boobu mooy engagement bi ñu am pour le projet. engagement. seen seen dévouement. c'est-à-dire temps bi ñuy consacré ci liggéey bi ah temps bi ñu ciy consacré. Mhm. nga xam ne ñoom ñaar ñoo ko bokk. donc te loolu la leen doy ak leadership bi ñu am ne véritablement li ñu jaayanteeg sénégalais yi il faut ñu respecté ko faw ñu respecté ko on n'a pas le droit de décevoir sénégalais yi ñun espoir bi ñu créer rëy na rëy goo xamante ne nii ñun on peut pas se permettre te loolu mi ngi ci Diomaye mi ngi ci Ousmane mi ngi ci Sonko mi ngi ci Ousmane donc su may wax d'un point de vue purement porteur projet porteuru programme bi foofu mooy seen point de convergence mais ils ont des personnalités différent Ousmane ku ko gis ni muy waxee ak Jomaay bokkuñu c'est ñaar nit ñu bokkul la mais eh, yàlla bind nañu bind na nit ñu bëri mais ñëpp ñëpp ay jullit lañ hmm. ñëpp gëm men gëm-gëm bi lañu am même prière la ñuy def hmm. même logique la ñu am hmm. ba noppi ñun ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi góorgóorlu ci li nga wax góorgóorlu donc quelque part ñëpp benn lañ te yàlla da koy wax sax jullit yëpp ay mbokk lañ donc ñu ñëpp benn lañ quelque part on est tous des ñoo bokk ay valeurs bokk ay noonu la ay nit di bokkee organisation dem ba am même culture organisationnel ñu partager les même valeurs même détermination même même leadership bi pour projet bi avancer te il est important projet bi pour mu parce que refonder ce pays jox Sénégal souveraineté civique ak économique ça ne se fait pas sur dix ans. d'accord ça se fait sur ans minimum pour pour véritablement aboutir li ñu bëgg yëpp trente ans la lay lay jël du jël du jël dix ans donc ñun on a intérêt dès le début à montrer aux gens que. nekkuñu ci culte personnalité na projet bi clair na objectif yi clair na plan d'action yi clair ba noppi nañu tànn ñu nga xam ne ils sont déterminés engagés à ce que li askan wi li militants yi bëgg ci projet bi ñu exécuter voilà le plus important d'accord parce que bu ñu dévier loolu rek dañuy menacer l'existence du projet parce que projet bi moom nit mënu ko porter sur dix ans ku ñëw ne yow di nga réaliser le projet de PASTEF en dix ans yaa ngi wax loo xam ne xamoo ko donc Diomaye day ñëw def li ko war Ousmane ñëw def li ko war keneen ñëw def li ko war. d'accord keneen ak keneen ñëw def li ko war et puis développement wu Sénégal aussi développement processus continu la continu la euh, une fois qu'un pays développé il doit rester dafa war a continuer di développé wu di innover di changer mais yéen kon war ndax waroo leen sof si plan Sénégal émergent rek muy jàpp ne ñoom am nañ horizon ba pare 2035 2035 yow nee nga fii lañ def seen programme renforcer renforcer renforcer la <laughs> lool lañ def. kon est-ce que doo leen sof ci plan Sénégal émergent rek benn yoon. comme ça 2035 gën a jege. xam nga émergence boo xam ne yow yow da ngay yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci submersif <laughs> ba war a émerger nekk ci submersif émerger wuñu amuñu plan Sénégal émergent na nañu waxante dëgg. Euh, l' émergence économique mooy réew mu nga xam ne taux de croissance am c' est à deux chiffres donc yaa ngi daf ay taux de un pays qui émerge un pays bu nga xam ne nii taux de croissance am c' mais Covid bi moo moo Covid bi moom moo ñu freiné woon. Covid benn année la parce que projection bi ñuy waxoon. bu dul doon Covid bi heure bi ak crise yi ñu traversé ak crise yi fi am ak yooyu noonu ku doon heure bi yegg nañ une période de dix ans di nga am année boo def chute c'est normal mais bu dee yow yaa ngi nekk dans une stratégie secteur primaire dafa war a produire secteur industriel dafa war a industrialiser wu di transformer. waay régler la question de l'énergie. Mm-hmm. changer sama déficit balance commerciale augmenter le nombre de PME PMI ba sama commencé sama réew commencé di fëll ci économie di jël ay produits di ko mettre sur le marché ba léegi dootuma importer damay exporter ba nag may attaquer le marché ouest africain le marché africain c'est ça aujourd'hui faire émerger notre économie c'est ça faire de sorte que l'homme d'affaires et la femme d'affaires sénégalaise mettent sur le marché africain des produits yu nga doon importer mais léegi ñu koy produire di te loolu boo ko xasee réussir finalement tu commences a créer des à faire taux de croissance de 13 14 15 16 dina am année boo xam ne di nga daanu def 6 wala 2 wala wala 3 mais 3 13 yi nga doon def 14 yi nga doon def dina permettre ba quand on va calculer sa moyenne di am taux de croissance moyen bu au moins bu 11 12 wala 13 pour cent. Mhm. Macky Sall si tu calcules ses taux de croissance sur 10 ans. waaw même fi toogee ba léegi. Mhm. il est à 5.5. néew na de. ah, ah. jeex na tàkk. cinquante mille milliards nag lañ ko jox. waxuma dix mille. deux mille douze ba léegi. waxuma quinze mille. waxuma trente mille. on a donné à Macky Sall cinquante mille milliards. mu ñëw nañu dama leen defal croissance émergence yor réew mi pendant fukki at ak ñaar. Mhm. boo defalee moyen am taux de croissance am c'est cinq virgule cinq. nga ñëw ci balance commerciale mooy déficitu balance commerciale. Mhm. réew moo xam ne ni la mu jaay ak la mu jënd. la mu jënd ëpp la mu jaay ba différence bi c'était bi muy egsi mille moins mille sept cent moins mille mille sept cent milliards. waay non mille sept cent milliards moins mille sept cent milliards donc li ñu doon jënd ëppee na woon mille sept cent milliards par rapport ak li nga xam ne moom la ñu jaay mu toog fi douze ans dépense cinquante mille milliards léegi déficit bi état deux mille quatre cent milliards. fekk fi bor boo xam ne ça tournait autour de quarante pour cent du PIB mu yóbbu ko ba soixante pour cinquante mille milliards yi Macky Sall la téye ci loxoom quatorze mille yi da koo leb dugal ci réew mi ci dugal réew mi ci guuta d'un point de vue tension de trésorerie Abdoulaye Wade bi mu fiy jóge Abdoulaye Wade su fayee intérêt fay amortissement fay personnel fay fonctionnement da koy dese xaalis mais mais tamit ibbi aussi ay accès d'infrastructure yoo xam ne mën na am ay ay rémunération infrastructure rémunération waaw <laughs> yow sa autorité moom moo ko ah mais xanaa di nga ci boole yeneen am na yoo xam ne peut-être yu na mais yoo xam ne infrastructure bi rémunéré loolu loolu péage yi moom moo ko péage bi rek PAPM ko moom fii amul infrastructure boo ko tabaxee c'est pas pour mu soutenir activité économique donc tu fais des infrastructures pour supporter l'activité activité bi moom ngay taxer moom ngay imposer mais soo defee infrastructure te yow ñi ñi nga xam ne ñoo ko war a jëfandikoo dans activité économique ñooñu faale woo leen kon infrastructure boobu nan naka ngay récupérer li li nga ci def infrastructure boo ci investir retour euh, ni ni nga ciy profiter c'est toujours indirect. indirect infrastructure soutient l'activité xam nga infrastructure mooy tëli. par exemple tëli boo tabax. Mhm. tëli boo tabax c'est pour que ñu war a jàngi jàngi mais ñu war a liggéey liggéey. mais bu <laughs> bu nit ñi amul entreprise bu ñu liggéeyee bu dee yow jën bi jën bi génne nga ko réew mi kenn liggéeyu ci. bi leen ne chiffre yi ngeen avancé dafa faible par rapport li ngeen waxoon danoo ne booy natt lu mel ni terre doo ko rek natt loolu mais na ngay xool nga xam ne nii daan na jël waxtu yu bëree bëri pour mën a jëm ñaajo ñëw fii nii léegi day jël terre bi rek mu yomb si moom service bi loolu tamit ñu mën a méngale non mais na maçon bi am chantier fii chantier yi boo ko xoolee ñiy liggéey chantier yi ñan la les sénégalais <laughs> xam nga tabax yi pour dire ne tabax naa yi ak tabax tëli pour soutenir sa activité économique il faut d'abord que tes acteurs économiques nga jox leen marché. maanaam nga def infrastructure yoo xam ne dafay taxawal économie ba pare nga doog wut lu ko fa yóbbu. tu c'est-à-dire que ne d'abord il faut que nga fexe ba say seen say doom nga mhm. jàngal leen. waay ensuite nga financer leen. Mhm. ñu samp ay këru liggéeykaay di liggéey. ci seen liggéey boobu nag. ngay tabax ay infrastructure pour que seen liggéey gën a ñoŋ gën a gaaw léegi nag boo fi bàyyee sénégalais yi bàyyi fi entreprise sénégalais yi jël seen jën joxe ko jël seen suuf joxe ko lijjanti woo ndox lijjanti woo électricité kenn mënu fee samp entreprise facture électricité di la rey mënoo dem mm-hmm. électricité bi doyul dafa cher boo employé bu employé sénégalais yi boo leen employé formation bi war a ne ci ñoom ngir ñu xarañ amut chef d'entreprise bi bu bu demee banque leb xaalis mënul am condition yooyu entreprise yi di dee waaw boo ko tabaxee tëli bañ tëli bi pour pour pour lan la pour wuti liggéey. mais li ngay wax ni dafa am profil yoo xam ne ñoo war a matérialiser luy indi le contraire yow nga nekkoon un conseil technique. Mm-hmm. boo xam ne duggoon ko ci biir gouvernement bi. Mm-hmm. pour yow lan moo indi problème mu nit yi la. wala exactement démarché bi nga xam ne ñi ngeen di jox duñ leen nangoo déglu wala ñoom ñooy ñëw di leen imposé loo xam ne vous êtes obligé di adhérer sans pour ngeen am ci réserve. problème bi daal kilifa la goo xam ne amul xam te bëgg ko. déet waay. Mhm. bu dee ki nekk ci bopp réew mi amul xam-xam te bëggut xam-xam ay pexe la gëm loolu bu buñ ci nekkee mooy justement nga am xaalis au lieu nga ne xaalis bi naka laay fexee ba béykat bi moom suufam bu doon produire dix hectares na def vingt hectares naka laa koy équiper au lieu nga ne ci logique yooyu enrichir les Sénégalais ba noppi booy tabax infrastructure nga tabax infrastructure bu nga xamante ne nii dama lay jox benn exemple. waaw bu bu bu leer. jël nañ xaalis bu bëri def ko ci terre. oui. est-ce que xam nga ne boo demee fële ca ca Bundu côté Tambacounda am na montagne bu fa nekk dama fàtt bi nag. montagne boobu montagne marbre rose moo fa nekk. marbre marbre rose. marbre rose bokk na ci marbre yi ñu gën a prisé ci àdduna. marbre bi boo ko xoolee dafa rose quoi en fait. Mm-hmm. après nga xool internet. dañ koy décorer ci salon yi parfois. mooy marbre bi gën a cher. Mm-hmm. qualité am c'est unique. d'accord montagne lañ ci am. montagne. xam nga lan moo tax. jot nga koo xayma wala munuñ munuñ koo xayma. d'accord parce que ñi ko ñi ko bëgg a exploiter yëpp munuñ ko exploiter amul tax munuñ ko exploiter. Mm-hmm. parce que marbre diis na diis goo xam ne boo ko daggee il faut nga teg ko ci chemin de fer. Mm-hmm. absence su infrastructure buy connecté matière première boobu ak port bi moo tax montagne marbre rose boobu mënuñ ko exploiter. léegi pour xam nga tontu na sa laaj bi sànq. booy tabax infrastructure pour lan la. waaw dafa dafa war a am sens. c'est war a soutenir lu existant. jokkale jokkale lu réel lu am. ma jox la beneen exemple am nañ géej côte bi li ñu am ci côte kenn xamul nu mu toll nit ñaa ngi jàpp jën di ko àndi ci ci tefes gi man mi dëkk Njaareem pour ma am jën bu baax c'est un problème te pourtant jën bi est à deux heures de voiture mais jën kenn bu ko dugal ci oto. xam nga dugg oto ci camion rek nga ko mën a dugal parce que xet geeg yooyu tey bu ñu amoon chemin de fer boo xamante ne nii day jël ay wagon jën di ko yóbbu ba ba ba ba ba jurbel ba ba Tambacounda wala ba ba feneen nga xamante ne nii train bi bu xëyee cinq heures du matin jën yi wàcc mu mu sol ba mu fees départ huit heures du matin mu mu yëg si Bawol andi ñu lu mais mais da ngay gis ne kon qualité day mais xanaa di nga fexe ba jën yi mat sax Ndakaaru balaa muy jàll feneen jeex na mais mais mais mais monsieur Fofana par rapport ak euh, par rapport ak terre bi foogoo de nag ñun suñu problème Sénégal mooy soxlawuma ko wala arrangé wu ma rek baaxul terre bi terre bi terre bi am na solo de. sëñ bi Fofana bu fekkee Almadies nga dëkk nag wala nga dëkk boori Sacré-Cœur wala plateau gi mënoo xam solo gi waaye man mi dëkk mm. Sébikotane daan def deux heures wala trois heures ci yoon bi. ma jël ko ma jël ko Diamniadio mu indi ma fii quinze minutes vingt minutes maximum ma taxaw fii nii Grand Théâtre mm-hmm. na solo lool ci man. maa ngi noppalu maa ngi gagné temps. Ah, mais est-ce man jaral na ma ko parce que maa ngi noppalu. ah déet waaw loolu moom waroo ko non non je je je fi ma lay waxee mooy fi ma lay waxee ne problème mu bi mooy. actuellement ñi doon wax ne ñëpp terre bi baaxul. bi ñu commencé di jël terre bi. Mhm. Euh, dañ ko dañ ko dañ ko kañ. ñi nga xam ne du ñu jël teer bi amuñu ci soxla. dañuy wax ne amul njariñ ah, ah, amul utilité. donc foofu laa lay waxee ne est-ce que du loolu mooy problème mu sénégalais bi. man waxuma loolu man dama laa nangul. Mhm. ne boo dëkkee si bi xotaan jël train mu andi la centre loolu lu baax la nangul naa la ko mhm. waaye kenn waru cee def mille milliards neneen lañ ko waroon defee ok beneen pexe boo xam ne duñ ci def lu toll noonu te dina am te dina am te dama lay firndeel ne li ma la wax mooy am waaw mooy mooy la xam nga yàgg naa critiquer TER yaakaar naa ne man maa fi njëkk wax ne TER bi li ñu leen wax njëg li jaru ko gën naa cher loolu mhm. parce que jégg na mille cinq cent milliards bu ma ko waxee ñëpp dañ ko weddi waaye ba ma leen ne 500 milliards boo ko jëlee def taux taux d' intérêt 2 pour cent amortir ko sur 30 ans di ci yegg milliards. Mm-hmm. ensuite ma ne leen comme da ngeen a jënd lu ngeen mënta gérer foog ngeen fay ku leen ko gérer. Mm-hmm. après nee na ba ma ko sëqatalee TFM wax na ne 30 milliards la Sénégal di fay pour ñu gérer ko TER bi yow fii nga sa trajet boobu 30 milliards lay coûter par année gestion bi. yaa ngi xoolaat. d' accord voilà tu vois ce que je veux mm-hmm. njëg li dafa ci liñ ko def ba noppi ñu dem jënd train yoo xamante ne nii train yi dafa cher a cher benn bu rek ëpp na ay 10 set milliards hmm. léegi ma ne leen biñ ko doon waajal dama leen ne bu leen dugg ci lii def leen ni Afrique du Sud Afrique du Sud daf ne man du ma dem commander 17 train yow Alstom da nga am xam-xam ci defar train ñëwal sama réew ma jël foncier jox la ma leb 2400 milliards hmm. ñu samp usine boo xam ne da ngay jënd équipement ñu commencé ñun di produire ay train entreprise boobu dama ci am action 40 pour cent yow nga am 60 pour cent. samay doom sax dañuy am action samay investisseur dañuy am action dañuy nekk actionnaire léegi chaque année damay commander ci yow ay train xam nga état il peut tout. Mm-hmm. état mën na créer entreprise di commander ci entreprise xam nga entreprise boobu du dee. Mm-hmm. chaque année état jël benn montant bu duun commander des trains. Mm-hmm. entreprise bi produire ay train def bénéfice. entreprise bi day fay salaire sud africain yi je pense il y a près de 3000 salariés. Hmm. entreprise bi dina produire 500 trains sur 25 ans 500 trains laa la wax de sur 25 ans. Hmm. entreprise bi su déclarer bénéfice moitié bénéfice bi Afrique du Sud lay des. ba noppi day fay impôt. donc soo calculer salaire yi ñu fay impôt yi ñu fay bénéfice yi ñu fay sud africain du sud va récupérer les yi mu investir. ak usager yi ni mu leen amalee solo bi ci gën neex nag mooy ban. bañ ñoom bañ defee seen teer parce que waxoon naa leen ko naa leen teer bii ni ngeen ko defee tëgg ndënd ak sémin la neex benn naqari benn di ngeen ko dolli parce que ku jël sa un septième budget def ko ci trente kilomètres billaahi année prochaine doo jëlaat sa un septième budget di ko defar Babacar teer bi mujj naa cher ah léegi bañ bañ ko ñamee affaire bi metti ñu gis français yi ne leen ñun laalu laaluñu xaalisu sénégalais yiy fay ñun duñ ko laal yéen a ñuy fay directement signé ñëwuñu contrat d'exploitation ah. dañu signé contrat de gestion mooy trente mille sénégalais yi nga trente milliards cinq ngeen ñuy jox xaalis bi sénégalais yi fay jël leen ko parce que ñoom xamoon nañu du dem rentabilité bi demee noonu c'est-à-dire au cas où bu doxul ñu xam ne ñoom de toute façon da ngeen fay rek léegi nag ñoom ma leen ko waxee ñuy weddi ñu dem ba gis ni lii hmm, dinañ ko continuer ba xëy na aéroport bi amuñu choix mais duñ ko def xam nga duñ def hmm. dañ ne léegi nañ dem jënd train léegi je demande xam ngeen ci kan lañ dem jëndee train 3 milliards. baaru Afrique du Sud. voilà. <laughs> fa ma leen waxoon ne def leen ni ñëw lañ dem jënd xam nga jëndee benn train ñaata la 3 milliards. 3 ko defaroon suñuy ñu war a mën yooyu au maximum. ça veut dire que ñun de 3 milliards parce que Afrique du Sud bu ñuy jaay 3 milliards seen bénéfice mu ngi ca coût de construction mi ngi ci bénéfice mu ci fay dañ fa impôt. dañ mhm. fa taxe mhm. mais xanaa léegi imaginel non boo ko doon jëndee fii 4 milliards jar na ko parce que yow la jëndee <laughs> mais gën a neex du loolu yow imaginel rek tey Sénégal di produire ay train quoi chaque année état commandé 30 trains jékki-jékki ñu ne Afrique ñu ne Mauritanie soo buggee mën nañ la defal ay train yuy def Nouakchott Sénégal Mauritanie ne bëgg naa ñu ne ko commandel 30 Mali gi ak yeneen Mali ah da ngaa bëgg train non seulement ñu lay tegal raay mais jox ñu temps ñu defaral la ay train léegi Sénégal nekk pays pays bi nga xam ne moom moo téye technologie train Afrique te noonu ngay exporter sa expertise exporter sa culture anti pays yëpp dañ lay respecté parce que dañ naan bu ñu bëggee am ay train yuy transporter marchandise di transporter nit ñi ba noppi am expertise mais nañ commandé ci Sénégalais yi monsieur loolu lañ leen waxoon est-ce qu'il y a possibilité hmm. de pouvoir ramener cela sur la table ba ñu li ngay wax nii mais c'est toujours que besoin baa ngi fi c'est toujours possible xam naa TER bi moom dañ ko jël def ko <laughs> Dakar ba ko parce que TER bi puissant na te même France bi muy jënd collectivité locale bi ñu jënd train jënduñ TER bi dañ ne article fi Figaro boobu tu te rappelles bi mu defee scandale bi waaw waaw waaw article bi daf ne li Sénégal def ci ter bi moom loolu mooy l'exemple à ne jamais faire en France mm-hmm. ñoom génération train bi ñu jënd c'est les s N2 mooy deux niveaux euh, seconde génération. Mmh. train yooyu ça coûte de mémoire ça coûte quelques milliards je pense six ou sept milliards moins ñoom loolu lañ jënd. ñu ñu dem jënd loo xam ne kenn dernier cri di di di pavané wu yoo xam ne yow mënoo ko gérer munoo koo defar mënoo koo entretenir. d'accord mais xanaa BRT bi au moins war na mën a fàttu loolu ndax infrastructure la boo xam ne. Mhm. woto yi gis nañ ni ñu melee moderne trop nekk électrique. xanaa loolu au moins dina mën a fat luy tax sénégalais yi jàpp ne ko. ñu daw si dër plus important innovation de taille si dër. waaw innovation bu bu am solo. bu Macky Sall ñun ñoo tardé rek. mais dër dër dër yàgg nañ cee mën a daw. waaye tàmm laago la ñun ñoo yaakaar ne goudron rek mooy mbir mi mais man ingénieur yi yàgg nañ ma wax ne dër oto mën na ci daw mën nañu defaree dër ñun am nañ ciment mën nañ defar dër bi nu nga xam ne oto yi mën nañ ci daw. am na beneen technique sax bu ma beneen borom xam-xam wax boo xam ne beneen matière la ñuy utiliser fàtte naa turu matière bi mais moom moo gënoon am sens ñu utiliser ko ñun pour suñu dëkk moo tax innovation dans les matériaux am solo parce que di utiliser sa matériaux dëkk euh, euh, États-Unis bëri na tali yoo xam ne dër la dër la mais pour BRT bi pour man c'est un très bon projet parce que projet de restructuration urbaine la d'accord pour que mobilité am pour man c'est vraiment une bonne approche li ma ciy regretter mooy normalement tracé bi du woon bus moo ko waroon def mais genre tramway moo ko waroon def genre train yoo xamante ne nii train yu am pneu la man je me bi may def suma master à l'INPL en France mhm. ñun tramway daf defoon nañ ci étude genre bus trolley la bus yu gudd la mhm. boo gisee da nga xam train la mhm. mais mën na daw ci raay mais day am pneu mooy yooy di lemu yooyu di lemu loolu moo ci gënoon am sens mënoon nañ ko sax def raay parce que moo raay moo gën a mën a jël ay nit que moo waroon a nag léegi dugg ci biir dëkk bi jël nit ñi andi leen ci trace bi après nit ñi jël dugg train loolu la ñu naan mutu na daal bus mooy indi bus yi mooy jël nit ñi indi mhm. ci tracé bi après train bi yóbbu. Mhm. ba noppi itam ce que je trouve regrettable mooy fi ñu toll ci àdduna ñun Sénégal waroon nañ mën a quand même ay bus c'est-à-dire que bus yi waroon nañ ko defaree fii. parce que boo xoolee dépense su TER dépense su BRT bi poste de dépense. bi ci gën a defar fi wala monter ko fi. mën nañ ko monter fii ko defaree fii. defaree ko fi monter ko fi. ci biir bu fekkonte ne fer de Falémé dañu nangu woon créer benn déeri mooy maanaam unité boo xam ne day jël fer bi. di ko tëggaat di ko tëggaat génne des lamelles. nga lamelle la ñuy defaree oto lamel de fer yi la ñuy la ñuy moom fer ngay jël traité ko génne lamelles yi ak tous les produits. Ah. léegi nag euh, nga jënd ay machines yu nga xamante ne ñoom ñooy jël fer bi defar ko ba mu mën a nekk éléments yi composé oto bi. d'accord donc bu fekkonte ne ñun dañu amoon unité industrielle buy pro buy transformer fer bi dañuy am matière première pour. parce que bus structure métallique la. Hmm. donc importer fair bi pour transformer ko fii ça coûte trop cher. Hmm. mais bu fekkente ne yow jël nga minerai de fer bi fii transformer ko produire du fer et de l'aluminium. Hmm. tey jii créer unité yoo xamante ne nii dañuy produire tous les composants ensuite ñu assembler ko. et puis technologie solaire tam war nañ ko mën a maîtriser. bu ñu defoon investissement yooyu dañuy mën a créer chaine bi ñu mën a yóbbu ci ñu mën a produire ay oto mais contexte bi comme ñun duñu produire fer mënuñu dul monter. d'accord monter ko lañ mën a def mën nañ tam créer usine boo xamante ne nii day jënd plaque yi euh, lamelles yi après produire ko mais loolu tam ku coût matière première boobu. dafay yow lan ngay tontu ñuy jàpp ne ñun suñu nguur yi nii amuñu doolewu monter ay usines yu am doole buñ ko naree def daf leen xañ lu bari moo tax ils sont obligés bàyyi ko ay privé wala bàyyi ñu ci euh, national étranger yi ñu mën koo def. ku am ku mën a mobiliser cinquante mille milliards est-ce que am na lu la të cinquante mille milliards. Hmm. je suis désolé. Alstom kan moo ko téye du du France. Hmm. Alstom bu amee problème France mooy jóg wutal ko marché. Hmm. France moo koy lebal France moo koy jàppale. tey jii ñun mënoon nañ jël décision ne ne non dañuy am unité industrielle de production de fer ici au Sénégal. dem discuter par exemple ak les Iraniens Iraniens yi ñëpp am nañ xam ne ñu am xam ci loolu. ne leen dañuy créer usine on vous donne pour cent ñun on prend soixante pour cent andi nañ xaalis bi andi nañ xam-xam bi formé PTP lay nekk daal jonction lay nekk joint venture lay lay PPV laa bëggoon a partenariat public mais joint venture moo moo mooy mooy vrai kii bi parce que hmm. tu crées une entreprise dans laquelle l'État est actionnaire tu cherches un partenaire technique on, on amène les équipements l'État amène ses minerais on, on on produit et l'État achète le marché achète mais mais mais Moussa Moussa Balla yow li ngay wax nii hmm. président Macky Sall ku fi teg teer ak nu mu ko kañee def fi BRT bi am nu mu ko kañee ak yeneen mbir yoo xam def na ko am nu mu ko fi kañee kon xalaat bii nga wax nii am nay borom xam-xam di ko jege. Hmm. te gëm naa ne bu nekkoon ne kii dina ko doon def ngir boole ko ci bilan parce que moom sur le plan matériel day wax ne que loolu moom yéen sax dool na ci débattre parce que xam ngeen ne voilà am na bilan bu baax moo tax kon président Macky Sall lii nii yëpp def ko parce que daf gën a yaxaral suñu xaalis créer nu ay emploi ba pare réew mi di gis boppam. li may wax gëmu ko. gëmul li may wax man. gëmul ne mën na nekk wala da koo gëmul nii rek. moom pexe la gëm xam nga ñaari homme politique moo am homme politique bu ne pouvoir doo ko da nga ko war a conquérir am ko boo ko amee da nga ko war a conserver noo ko conquérir baax na noo ko conservé am ko kooku ci ay pexe la nekk kooku gëmul xam-xam gëmul liggéey lim gëm mooy ku may galgal si nga xel mu mu am ci ni mu galgalee ñëpp bu ko amoon ci samp créer benn usine tëwu ko sérieusement nag gars ku am cinquante mille milliards mënoo am créer benn DRI buy jar deux deux trois milliards mais gëmu ko gëmut ne loolu gëmul ne su ma doxalee xam-xam liggéey am ay résultats sénégalais dañoo falaat moom dafa gëm ne boo tegee pexe teg teg technique teg galgal yooyu sénégalais dañoo falaat te àdduna souvent am na ñoo xam ne dañu choisir yoon bu gën a logique ñi am sa yoon bu yomb bi mm-hmm. loolu rek moo ko justifier ba noppi am na noo xam ne boo ko gëmee sa entourage doo fa teg ay financiers ay banquiers ay planificateurs des comptables des experts tu ne bu fekkee ne gëmoo xam-xam tu ne t'entoures pas de xam-xam Macky Sall ñan ñoo ko wër nañu waxante dëgg si tel ma ñu wër Macky Sall ñi gën a jege Macky Sall ñan lañ Mame Mbaye Niang ma yem foofu wala ma kon ne. demal non bàyyi noonu. di dugg ci question dugg ci question d' actualité bi. Euh, ci question question politique d' actualité bi nga xamante ni saa dafa taxaw. am na ñu bari dañ doon xaar ñu naan nañu def ay débat entre homme euh, candidat yi ak yooyu. mais tey jii li ñuy gis ci langum politique yi ni mu taxawee dafa mel ni lépp dafa tourner autour de Bassirou Diomaye Faye et Amadou Ba wala Ousmane Sonko Amadou Ba Bassirou Diomaye Faye te waxi këpp kees sañu waxtaanee. très bien te seen lépp presque dañ ko dañ ko teg daanaka ci lenn jaaroon na fii duggoon na fa loxoom set na loxoom setul kii tamit naan ay xale lañu xamuñu nangam ak nangam débat boobu noonu installé wu déjà alors que ñëpp doon xaar ci ñoom yeneen nan nga ko gisee yow wala bokk na ñi nga xamante ni apprécié ko wala ndax dafa bokk ci wàllum logique campagne politique. campagne bi nekk genre cadre bu binaire Diomaye contre Amadou Ba mais derrière Diomaye y projet de souveraineté derrière Amadou Ba yàlla a la continuité de Macky moo tax loolu la yeneen candidats yi ils ont pas su proposer des choses yu nit ñi mën a teg seen bët ñun dem nañ ba ñëpp nangu nañ ñii c'est le projet nangu nañ ñu ko Amadou Ba nangul nañ ko c'est la continuité ñeneen ñi lan moo leen tere woon liggéey ci loo xam ne dañ ko jëmmal ba nit ñi dañ ko identifier mais waxu leen ci projet ci këpp kees gi nee na ngeen ñëw ngeen débattre mais mel na ne koy kii daal. nee na ngeen jox ko Diomaye mu wax ñoom ñaa ñu débattre combat la de. xam nga ne Pape Djibril su ma rakk la. ci wàllu xam ci wàllu ci wàllu xam-xam moom wax dëgg yàlla combat maintenant ci wàllu popularité wala ci yeneen ak yeneen nag mën nañ ko xoolaat mais si wàllu xam-xam débat la boo xam ne nit ñi mën nañ cee jàng est-ce ñoo gën a jeune si candidat yi est-ce que vous êtes pour Bassirou def une confrontation waaw Dio non non non pour man c'est pas Pape Djibril xam nga yéen a ngi may loo xam ne. non non non non mais mais j'aime pas faire ça. non bëgg xam rek. non je ne je pense je pense que je pense que ne. Euh, ce n'est pas des personnes qu'on doit confronter c'est des projets qui doivent s'opposer daa foofu la ñuy waxee de ah, maanaam ñoom ñaar bu ñu taxawee ku nekk défendre ce projet ñu ngi ci ñu ngi ci projet yi ak idée yi de quel est le projet de Pape Djibril non mais ah <laughs> fii kenn defee fii kenn defee faral Pape Djibril fii kenn faralu ko fi de. non man ñun faraloo ñu de. non non pour wax projet bi fii ñun ñun mënuñoo fee wax toog di wax projet bi. mais mais il a fait une <laughs> proposition pour convaincre. on parle de ces propositions là euh, comme vous vous l'avez également fait. xaaral ma expliquer lu clair. au cœur des politiques publiques l'humain. loolu de yaa ma ko door a xamal tey xaw ma ko woon. Pape Djibril moom l'humain au cœur des politiques noonu la programme non non non mais boo ah, ko contre lui c'est lui-même c'est quoi la vision de ça ah, tu vois déjà déjà nga ko loo xam ne yow non non nangu woo assumé ne loolu mooy turu programme si waxuma ne mooy turu programme bi quoi mais boo xool programme boo koy tënk xam nga ñun boo ñu laajee c'est le projet souverain ñun c'est le projet ñëpp xam nañ dañoo liggéey da xam nga nga mbër mu mbapat mbapat waaw mbapatam mbapat bañ nangul ko mbapatam hmm. mu ñëw yéeg arène samp ay suul ay tànkam xeex a xeex a xeex ba ñi kii kat mooy xarañ loo mooy roi des arènes moo war a dékku yow nga ñëw barki démb mbappatangoo dara leeragul munoo ñëw wax vision bu claire munoo ñëw wax orientation yu claire sénégalais yi boo leen laajoon tey lan mooy offre am boo ñu ko doon symboliser munuñ la koo wax ba noppi nga bëgg nag ñun ñu ñëw débat am na lu nga xamante ne nag nañ ñu waxante dëgg. mais ñun ñoo ay kan daal di ko xeeb waaw justement moo tax la passage bi. monsieur Fofana passage bi non non dafa naan ma leeralal la benn rek passage bi déjà passage bi déjà pour man vous savez Ousmane Sonko son passage à l'Assemblée nationale ba ni muy nekkee candidat Pape Djibril tam ci trajectoire boobu noonu la nekk pour man Pape Djibril c'est une c'est une bonne pour notre démocratie je l'encourage xam na ma xam je le considère comme un jeune frère xam naa dara voilà loolu xam nga si dara donc li may wax nii sax yéen a ngi may pousser may def loo xamante ne nii vraiment j'ai pas le faire mais ce que je mooy nit am na fooy toll man su ma ko doon conseiller mooy na def campagne am na travailler communication am na gën a dëggal projet am ñun nous ne sommes pas arrivés là où on est du tey tey lañ xëy sotti. d'accord voilà bu buggee opposé wu du Pape Djibril contre Diomaye Faye non c'est le projet contre son projet aujourd'hui yàlla dogal na ne les deux projets qui s'opposent oui. mooy le projet de Pastef et le projet de Amadou Ba si on peut appeler ça un projet tey yàlla dogal na ne sénégalais yi ci loolu lañ cristallisé wu donc bu ñu leen di jox combat combat boobu lañ leen di jox mais duñu leen jox loo xamante ne nii xëy na dina intéresser Pape Djibril parce que il va euh, venir challenger koo xamante ne nii mi ngi à la tête d'une formation politique bu nga xam ne formation bi mastodonte la 1400 cadres ay c'est vrai combat la boo xamante ne nii buñ ko ko joxoon dañ ko koy defal publicité. et il a il et puis politiquement c'est bien qu'il ait challengé Diomaye parce que aujourd'hui la preuve on je parle de lui. <laughs> c'est une très parle. bonne c'est une très technique. Et, encore une fois je vois qu'il est très intelligent mais on est obligé quand même de lui rappeler que attention yaa ngi door a door. on connaît la personnalité de Pape Djibril Fall. on a rien mais kon dàqoo dàqoo dàqoo benn benn jàkkaarloo Diomaye euh, Amadou Ba. <laughs> ah non kooku ce kooku moom bu amoon moom day. mais ñoom xam mu wax projet Amadou Ba mais yéen attaqué woo leen le projet Ba. non si Ba. non non non dinañ ci ñëw mooy la poche ah di ci ne mais il faut que d'abord ñu xam ne. gibier bi mot na cest à ne bu ñu xoolee ne gis ne lii kat xam nga rëbbkat buy rëbb day rëbb lu fees bëtam doo dem àll di gis ay picc ramatu nga naan da nga koy jam loolu amul benn njëriñ <laughs> mais boo ñëwee nag gis dem ba gis ne yow gis nga ab buuf lii jaral na la ko laa nag moom tu tires sur le projet mais tu tires aussi sur le porteur du projet donc ñun on tire sur le bilan de Macky Sall mais on tire sur le porteur du bilan de Macky Sall qui est Amadou Ba duñ leen may dara ñoom ñëpp ñoom ñëpp kenn ku ci nekk secteur bu ci nekk Mhm. ministre bu ci incarné secteur justice ki ko nangoo toog défendre ko dañ toog yow wax la luy tàkk te du fay. mais moment boobu daf leen daf leen comparé comme des aventuriers ah. des aventuriers waaw. ah oui c' est vrai ay waya waya lu nekk la leen ah, c' est vrai que ne ñoom moom aventure yàgg nañ ci ñoom. <laughs> xeeb na leen trop. <laughs> xeeb na leen trop waaw waaw non mais mais mais mais ñoom. ñoom quand même ku leen gis ni ñu réew mi xam nañ vraiment c' est des aventuriers qui qui étaient à la tête de ce pays. Sénégal moom de l'arrivée à Macky Macky bi mu toogee ci réew mi. le Sénégal nekk dans une aventure kooku moom moom moom mën nañ ko wax moom ba ngay ubbi da ngay xam ne roman nga nekk roman policier jàppal tëj jàppal tij tijji yu nekk ngay dégg waaw moom moom c'est vrai que c'est des vrais aventuriers et que avant dernière Sall moom dafay faral di wax ne que gëmul de ba tey Amadou Ba même bu fekkee président moom la choisir moom mooy candidat wu président est-ce que sax nekkul ci opposition bi su ma juumul quand yaa ngi doon wax wax boobu c'est vrai Macky Sall il est c'est un grand politique il a choisi Amadou Ba mais wóoluwul Amadou Ba. déet luy firndeel loolu. non mënut a wóolu Amadou Ba pare kon lu tax mu koy choisir. parce que Amadou Ba APR la bokk. mi ñu bokk APR bari nañ. waaw mais Amadou Ba moo tane APR c'est quand même mais moo fa <laughs> ni ngeen attaqué Amadou Ba yaa ngi koy wax. non attends xeeboo xeeboo leen ko. mais seen discours da ngeen jox ngeen ko dayoom. non parce ngi naan. te en plus aussi sóoraale ngeen ko. waaw parce que li muy wane mooy su makki tegoon Mame Mbaye Niang tam noonu lañ koy traité kon duñ fi wax waxu waxu Ba makkee ko teg mais ce que je mooy. mooy Amadou Ba euh, est le candidat de Macky parce que APR mënut a ñàkk bañ a am candidat. comprendre c'est-à-dire que ni Amadou Ba est là juste parce que APR mënut a ñàkk bañ a am. kan yaa fi sësay taxafalul la. moo fa sës moo fa tane sa suuf sax dafa tane moo tax ñu tànn ko mais Macky Sall ku xam ne c'est un leader c'est un c'est un politique c'est quelqu'un qui assume qui se bat mënut a tànn Amadou Ba parce que bokkuñu ñoom ñaar bokkuñu comme yàlla ak yàlla. luy différence bi. non Macky Sall c'est quelqu'un qui s'assume au moins il assume ce qu'il fait bu ci dul boole ko moo ko tàggat quand day xeex moom ba ba ba wàdd tàggatee Macky Macky dafa ëlbati ko contre nit moom boo yaree kuy yow lay njëkk a kuy bu yaree kuy kuy bi ne njëkk a mbëkk xaw ma ndax yéen a ngi dégg fi may waxee mm-hmm. mais Macky Sall li tax son vrai candidat ah, était non laajoon naa ko sànq mooy ñu dem ba fële na la Basirou bañ a jóg ci siège bi ne day toogaat mooy moom la may waxaat tey Macky Sall son vrai candidat dafa tànnal APR candidat parce que APR mënut a ñàkk candidat mais moom ñi mu gëm na ñoo ko mën a remplacer ñoo mën a xeex ba jot réew mi kat la gëm Macky Sall xeexkat la xeexkat lay tànn moo tax son c'est vrai choix c'était Idrissa Seck li tax mu accueillir Idi parce qu'à un moment donné il voulait transmettre les choses ni Karim voilà c'est deux can c'est vrai candidat man loolu laa gëm ñooñu ñooy c'est vrai candidat Macky Sall gëmul lu docile il Macky Sall n'est pas docile la la mën a fan xeex kat la mën a jàpp ni kii mën na ma remplacer moo tax gis nga ni mu demee def na lu ne pour Karim Karim mbokk def na lu ne pour Idi am les moyens jël pouvoir bi quand il a pris Idi def ko conseil économique et social dafa bëggoon Idi dem mais Idi xamul woon ne Idi devait rester dans l'opposition léegi finalement est-ce que misé wul sur Ousmane Sonko parce que Cheikh Yérim Seck dit sur le plateau de 7TV que Ousmane Sonko dafa confirmer moom lu waxoon ko waxtaan am na et que Ousmane Sonko la la dig président Hmm, waxtaan amul. waxtaan amul. dara Macky Sall. ce que je dire mooy deal amul luñ koy dig ñun liñ wax lañ mës a wax on a toujours dit ñun nekkuñ fi pour logique vengeance justice la ñuy loolu bañ koy wax jàppuñu Ousmane man mii wax naa ko plusieurs fois man mii toog naa plusieurs fois mbégte koor daaw bu ngeen ko seetaanee toog naa ne Macky Sall lay ñaanal nga def jàmm donc man ñun on n'a jamais varié te yàgg naa koo wax je membre du du cabinet su doon toj toj duma ko répété et je l'ai toujours répété durant cette année ñu ngi koy ñaan mu def jàmm mu génn réew mi ci erreur yi na dalal réew mi na libéré nit ñi xëy na bés dem na ba xam ne mhm. Amadou baa euh, mi muy xeexal jaru ko Boun Abdallah Dionne jaru ko Idrissa Seck jaru ko ñoom ñëpp jaruñ ko xam na ne askan wi tànn na nee na léegi balaa moo dem day defar lépp lu nekkoon njuumte day defaraat balaa moo dem mais ëllëg yéwén ñu ngi ko ciy gërëm na sant na dalal réew mi ñii daal jàmm moo gën loo gis man noonu laa ko jàppee de parce que ñun dañ ko jox en retour génne koo xam ne moo nar a dóor sa sa loolu kay ñun amul jël bu ñu koy. Cheikh Yérim nag duy waxantu d'habitude de. Euh, non Cheikh Yérim moom day waxantu moom waxoon na fi ne damaa pla man plage damaa plagié n'est-ce téere bi ak ak Sonko. Hmm. ne woon na ne man dama plagié ah. ayca waaw jox ko jox ko une dernière boobu moom leer na ma ne. Uh-huh. du dëgg. donc léegi bi mu ne du dëgg ak bii dëgg dama ci wax ban la ci rek man moo mën a avancer. <laughs> mais mais quand mhm. question bii di tarauder beaucoup de sénégalais mooy. Ousmane ko bi mu génnee gis nga léegi dafa yolomal. digganteem ak Macky léegi moom dafa yolomal carrément benn. ñaareel ba quand il dit président Macky Sall du suñu adversaire mais dans un passé assez récent Ousmane Sonko kii wax si président Macky Sall daanu wax sa adversaire mais ennemi mooy mooy kii maanaam mais bu demee ba foofu jël lépp braqué ko ci Amadou Ba. mais parce que Macky Sall foofu tamit est-ce que lu dox ci diggante bi. non Macky Sall moo ko noonoo woon Macky moo jàppal ne Ousmane Sonko sëf ko ko quand même ñun xëy ñu xëy dañuy songu Macky xanaa nag dofuñu ñun xëy ñu xëy na dañuy songu Macky loolu bu ko defee mooy on va se suicider pouvoir mm-hmm. Sall moo xëy ne kii ñii daa leen wan may kan. bés bu ne muy def lan nga defut moo dem nag ba gis ne la mu def yëpp amul benn njëriñ mu ne day defar la mu diggoon sëriñ si bu yàgg ñu ko wax nangu ko def ñun saa bu ñun ñaanee ñu nangu man bokk naa ci ñi gën a lakkalaate ci côté boobu sëriñ si moom lu ñu ñaan ay kilifa lañ mm-hmm. dañ leen koy jox ak luñ ci mën a fekk te tey jox jox dëgg am na Macky bi mu demee ba sës ba xam ne fi mu ne nii faw mu dem mais il a il lañ ko waxoon yëpp libérer nit ñi jàmmalal nit ñi organiser les élections ku mun na gañ ku gañee nga xam ne kooku moo gañee nga dem ci ci ci jàmm hmm. loolu lañ ko mos a wax il a toujours dit mais monsieur Fofana la moo tax depuis bu Sonko ak Jomaay génnee gisuñu leen dem ay dëkku di kër kilifa diine yi comme ni ñu koy waxee non mais dem kilifa diine dafa pour lu tax ñu war fa dem wala ñu war fa bañ a dem newuñ ne duñ fa dem sûrement que daañ fa dem comme ni ko yeneen candidat yi defee parce que am ñu dem fii ñuy dem fii ñuy dugg fii ñuy dugg fii. bof pour man kilifa diine daal man du ma jug ci seen kër ah. parce que ñu bari dañoo jàpp ne ñoom ci yéen ñi bokk ci yéen ñu ci bëree bëri dañ ne ñoom dañoo noppi ci moment bi ñu war na waxee. non non ñoom dañoo xamul li ñoo xamul li xew man nag xam naa li xew. xam nga kilifa yi mosuñoo noppi ci mbir yi. mosuñoo noppi. lu xew exactement ils ont toujours dit à Macky Sall na na na jàmmal réew mi ils l'ont toujours dit. d'accord c'est important dernier laaj bi dugg ci question d'actualité mooy tey samp ngeen li nga xam ne moo nekk seen coalition bari na ñu nekk ci opposition bi ñu ñëw taxaw ak yéen mais teewul ba léegi ci biir opposition boobu nga xam ne dafa am dafa mel ni am na ay ñàkk diggu yu ci taxaw su ma ko cité notamment Khalifa Babacar Sall ak ñeneen naka ngeen fas yéene réorienté loolu wala ngeen réorganiser ko de sorte que bu ñu yeggoon tey deuxième tour nga xam ne problème du am wala ndax liggéey ngeen deuxième tour bi ba pare non c'est vrai que <coughs> il faut le constater opposition bi bëri na ay divergence ay ay ay ay ay divergence et c'est et c'est regrettable parce que man dama jàpp ne opposition buy xeex ak pouvoir opposition bi la ñu war a am mm-hmm. entente seen biir c'est l'idéal malheureusement tel n'est pas le cas li ñu opposé tam du yëfi caaxaan ah on a des c'est des choses vraiment mënta woon ñàkk on a eu des des des des des points de vue très très très wuute ak doxalin yu wuute mënuñ ci dara buñ sañoon du demee noonu mais kenn ku ci nekk doxale la ni mu doxalee pourtant kenn ku ci nekk ànd na ak yow dooleel la PDS ànd nañu ak moom dooleel ko ba mu duggee assemblé la commencé topp cëgg ci cëggal bu yëpp. <laughs> waaw euh, Khalifa Sall pareil ñoo bokkoon coalition. Mhm. bañ ba affaire dialogue bi taxawee nañ ne ah dialogue il faut am nuñ ciy demee mu ne moom naa naa naa naa bokk rek mooy mooy logique am ñun nag mënuñu mënuñu wax naa bokk rek yooyu ñoo ñu boole waaw. te yooyu nag dëgg yàlla ñun position de principe lañ ci am défendre nañ ko mais merewuñ kenn amuñ problème ak kenn. non problème am na <coughs> surtout seen diggante Khalifa Babacar non problème am na mais ñun merewuñ kenn. dañu assumer suñ position. ñun dañ ne Ousmane def ne man pour ma bokk ci élection yi du jar wax nga wax na ko proposé nañ ko nañ pousse élection yi mu ne leen du ci dal. Mhm. voilà quand il faut lui reconnaître donc am position boobu bu taxee ñenn ñi mere la. ah saa loolu mënu si dara mais ñun naal ay principe la ñuy la ñuy la ñuy demee ñun nekkuñu ci culte personnalité ak di gérer carrière ñu nekkuñ ci loolu projet lañ porté kenn ku ci nekk na def lu mu mën ñun ñëpp suñu risque suñuy vie yi benn moment c'était à risque ñun ñëpp on pouvait se retrouver en prison on pouvait faire l'objet de pas mal de choses ñun ñëpp dañu nangu sacrifié wu nit nag su munee sacrifier sa sécurité yow nga mën a sacrifier sa candidature rek dugg na fekk génn fi donc il faut que ñu ànd ci yenn logique ñun noonu la ñuy fonctionner ñeneen nag bu ñu fonctionner neneen bañ ñun ñu fonctionner ñu fonctionner loolu mooy coow li buñ ñu meree nag ci ñoom la mais man dama jàpp ne il n'est pas trop tard pour rafetal. maanaam amul nag lu pour man àdduna àdduna àdduna il n'est jamais trop tard pour. daa mel da ngeen bëgg rafetal pour espérer deuxième tour ku leen dimbale. non ñun gëmuñu ay dimbale li ñu gëm. mooy gagné au premier tour man en tout cas dans mon département ba ma nekk Diourbel wax naa ko ñëpp sama défi mooy gagné le département totalité bi yëpp te ñun ñëpp boo gisee Cheikh Thioro Mbacké toog basam gisoo ko fenn mu toog basam di liggéey xoolal département bu nekk di nga fa gis les hommes de base de Pastef du ñu bouger man mën naa ne ne campagne bi commencé ba léegi passé wu ma Dakar lu ëpp trois jours maa ngi Diourbel tey ci guddi tuba ci suba maa ngi fa suñu défi mooy on va gañee nos départements kenn ku ci nekk bay waaram ñu gagner élection yi au premier tour avec plus de cinq pour cent ñun loolu mooy suñu cible. Mm. te buñ koy liggéey c'est parce que xam nañu lu ñu mën a atteindre parce que cible danga koy mën a atteindre. laaj na nag effort gars yi jege woo leen 36 wala ëppoo leen ko de. loolu ñu ko wax mooy ñiy waaj a lëbëj. waaye réew mi kenn du fi ah, lëbëj waaw boo gisee ñu naan ay ay ay ay jeunes yi 10 pour cent la ñoo dugg na fi génn fii mooy seen lëbëj googu mais dañ leen dul sax créer condition pour mën a lëbëj sénégalais yi dañoo taxaw pour bale li fi nekkoon ñun li ñu liggéey natt ko xam ko Ousmane génn jom ay génn allié yëpp taxaw ñun kan lañuy ñuy kan et puis parlons sincèrement qui sont nos nos adversaires Amadou Ba Macky Sall gëmu ko partem gëmu ko. <laughs> ñu wax ne dëgg rek. ay membre ay membre gouvernement bi gëm ko. membre te ñu ñu ngi investir sur le ëpp ci membre gouvernement bi ñu ngi ci Boun Abdallah Dionne. ah bon ah mais moom mais moom moo ëpp mbooloo de fi mu ne ñi koy topp ci meeting yeeg yooyu ñoo ëpp mbooloo Amadou Ba bu mi koy topp ni muy bëri mbooloo xam naa mbooloo bu ñu jox ay per jëm a i jour ah xam ah, waaye ki lay jox ki lay jox ki lay jox est-ce que mën nga ko tëg ki la joxagul mais ki sàcc di la jox nag est-ce que mën nga ko tëkkaleeg yow ki ngay jox ndax du la sàcc mais ñoom est-ce que xam nañ ne ñoom dañoo jox leen est-ce que ñoom seen yoon nekk na ci loolu a xam ah, ñoom loolu lañ koy wax dañ soxla rek déedéet soxla rek waaye xam nañ ne politiciens yi li leen jox seen alal la effectivement xaalisu réew mi la ñuy politique Macky Sall wax na ko ku fi perdre sa élection ku fi perdre sa base ma dàq la loolu mooy la. donc ñun wax dafa clair. on veut on va gagner incha allahu rabbi on va gagner mais, ces élections mais mais est ce que moom yëg na ne quand même Cheikh Abdou Bara Dolly rejoindre na Amadou Ba. Cheikh Abdou Bara Dolly waaw. ba lancé sax ay pic déjà seen candidat Bassirou Diomaye. mooy mooy kanati sax. ah. parce que dafa ne ñaari ñaari Bara Dolly. mooy ah mooy député bi. mooy député bi député bi ah, ki nekkoon Mboxtu Ciss. bu woon dugg PDS bi. te mu nekk Mbacke am fa base bu am solo sax. base bu base bu dëgër sax. non Mbacke moom <laughs> Mbacke moom ñu koy doxal xam nañ leen <laughs> Pastef lañ bokk. tey saa ñu toll nii xam naa ne ak ni muy boostee nii loolu moom loolu moom mooy li xew. la fa la fa Cheikh Thioro di moom kenn du ko fa def moom nañ ko ko nangul rek mi dafa bëri ñoo xam ne vraiment mooy loolu. maanaam mooy loolu rek xam nga <laughs> li am solo mooy ay élection lañ jëm mbir mi du affaire personne. mbir mi affaire projet bi encore une fois te sénégal yi dañoo adhéré leen daal laa leen koy wax. mooy képp ku jàpp ne Pastef mii neex nan ma Jomaay mii vraiment ku baax la Ousmane ku dëgg la baal la ku mën a waxtaan la yooyu yëpp ku ko jàpp. Hmm. na nga teel ñëw ànd ak ñun. parce que mbir mi du dem second tour ku fii xaar second tour nag yaa ngi ci erreur. bi ci hmm. topp ñuy ñëwaat ci adversaire yi. parce que c'est important adversaire yi. parce que ñii ñëw daf si am koo xam ne ni faaw ñu taxaw si tuuti. muy mhm. soxna Léna seen mi nga xam ne nekkoon na fi directrice de campagne ay jamono. Euh, mhm. yu Idrissa Seck. Mhm. joxoon na bopp si élection yi. Karim Wade mu mujj ñëw si te daa mel ni yow moom. moom mii yow yaa ko indi wala. <laughs> non xam nga Léna dafa nekk nga xam ne dama ko yàgg xam. elle n'a jamais été euh, militant parti comme man ni ma nekkee militant parti. d'accord. waaw idi da ko tànn bi ko idi di tànn sax nit ñi dañ ko découvrir parce que mm-hmm. professionnel la ensuite Karim confié ko équipe d'experts bu mu war a diriger manager leen pour des travaux donc tànn nañ ko pour politique man yàlla def bi ma créé suma cabinet fii bokk na ci moom damay liggéey ak moom parce que elle a un réseau d'affaires très fourni mm-hmm. surtout benn zone ci àdduna bi nga xam ne bëriwul sénégalais yu fa am réseau d'affaires mooy côté russe bëriwul donc ci liggéey lañu xamante ñu yàgg discuter ci projet bi des fois ñu projet ñuy structuré ñu waxtaan ci projet bi moom j'ai toujours su que dafa am sensibilité pour le pour le pour le projet donc elle c'est pas nit ñi dañu rëyal adhésion mais moom elle n'est pas elle n'est pas c'est pas c'est instant bi élection yi war na ñëw xool na 19 candidats yi gis na ne ñi ñoo ko dal mu ne moom ñii lay voter mais qu'est-ce qui déterminant seen waxtaan ngeen ñaar parce que aussi Euh, voilà yaa ngi naan koo réel mais du lu ndaw mën na am amul mbooloo mais du point de vue non justement mais li ko li ko mës a déterminer mooy premièrement yàlla rapport professionnel bi ñu am mm-hmm. et puis moom ni muy fonctionner la moom elle est très technique cest technique elle n'est pas politicienne elle est technique dafa am expertise am am domaine am te dans ce qu'elle voit buy xool problème mu Sénégal problème mu Afrique ak préoccupation bi mu ci am day gis ne rupture changement bi lañ soxla on a besoin d'un changement te loolu moo gën a déterminant te xam naa dina communiquer boppam mais vous allez voir que dans son langage il faut que les choses changent. léegi lan la mën a apporter. <coughs> expertise am xam-xamam dañu soxla on va tu sais mi développer réew mi on a on a besoin de tout le monde. saa ñu ngi ci ñu ngi ci campagne électorale quand même xam nga bu ñu nekkee ci campagne électoral mhm. nga baal ma tolloo guñu ci sama xam-xam bu gàtt. ci processus fi ngay waxee nii mooy tey ji bu doonoon yéen a yor mu ñëw du laaj lan lay apporter parce que damay xam ne comme wax nga techniquement euh, fi xam-xamam màcc damay xam ne kon ci wàllu woowu ci doxalin wi mën na leen fa apporter la mais defal ngeen seen projet ba pare teg ngeen seen programme ba pare nekk ci campagne électorale ay xob ngeen soxla ci loolu laay wax moom lan la mën a apporter moom Léna ku mel ni leena ñëpp xam ne nekkul ci logique partisane bu jëlee ah, bu bu bu fekkee ne def na analyse des profils hmm. et des projets mu ne projet bi baax na loolu rek dooleel nañu son choix dafa am sens parce que c'est pas une personne buy dem fenn pour ay intérêt wala ay logique wala ay objectif c'est pas le genre elle fait day def choix maa moom yàgg nañu xamante pourtant benn moment beneen choix la amoon hmm. donc gis na ne fii la donc loolu rek c'est une bonne chose bi ci topp mooy réew mi comme ni ma ko waxee Sénégal toll na liggéey bi rëy na rëy goo xamante ni on a besoin de l'expertise képp koo xamante ne ni am nga looy apporter ñëwal ci ay idées ci ay contributions ci ay échanges nekkuñ nag ci ay logique wu euh, ñëw naa poste poste post man mii toog fi di la wax dara leeruma ci ne je vais avoir une mission xaw ma ko tout ce que je sais c'est que à partir du 2 bés bu ñu in bés bu ñu installé Bassirou Diomaye Faye suñu jaan ñun wàcc na xaaroo dara non je n'attends absolument rien je n'attends absolument rien par contre servir les Sénégalais moom loolu nekk na lu nga xam ne suma suma su ma j'ai décidé de faire la politique ma vie c'est de servir le peuple sénégalais loolu laa décidé mais nekkuma ci logique bu parce que nag euh, je ne borom daal. <laughs> donc ay jëfandikoo kon muy noonu. Ah, jërëjëf Ahmed donc. merci beaucoup CFA bi. waxtu bi ah ñu jàmbaas ci CFA bi tëjee parce que monnaie bi moom. dafa nekk loo xam ne yitteel na lool askanu Sénégal yi ci wax mais. ni ngeen ko tëggee woon au début ba mu dugg ci biir projet bi par la suite bi ma dégloo Ousmane Sonko mu expliqué dafa mel ni ku ko jaar ci beneen anam boo xamante ni li mu gën a wër ak li mu gën a séntu ba na def ba gën a regrouper yenn pays yi nga xamante ni jot nañu am monnaie bi da ngeen dem ba jiiñ ko xam ne possibilité bi dafay jafe lool ngeen bëgg ko làqarte ci beneen anam wala ndax da ngeen jàpp ne faisabilité moo mënul nekk. non non non c'est juste que ne dafa am politiciens yoo xam ne dañu polluer de débat. lan mooy vrai débat bi kon. dafa am politiciens yoo xam ne c'est que Sénégal Sénégal sujet bi quand j'ai analysé ñuy wax dañuy gis ñoo xam dañuy jël lu com lu complexe bu ko simplifier alors que monnaie c'est pas c'est pas c'est pas simple d'accord la monnaie c'est complexe dafa am une dimension sociologique am une dimension technique am une dimension politique d'accord voilà technique bi moom la wax poli moom laay économique mm-hmm. parce que dimension sociologique bi sax moo gën a garaaw mm-hmm. parce une société humaine askan. Mhm. ñaar ñoo ko gën a soxal. muy indo yi muy sénégalais yi muy ñu nekk Targanistan ak ñu société boo jël. Mhm. ñaar moo leen soxal. d'accord seen kaaraange ak seen alal. nit nag li nga xamante ne nii sa alal sa xam-xam sa xereñte saa boo ko joxee ñu jox la ko nga nangu ko loolu da nga ko óolu mooy xaalis billet yi. d'accord mhm. c'est pas n'importe c'est pas c'est confiance la laaj. bu dee askan wi yëpp maase nañ ne. man damay wat karaw te ku ma wat boo ma joxee 1000 francs ma jël. Mhm. parce que wóolu naa 1000 mhm. la sama xarañte yi bu ma defee interview liggéey liggéey fin du mois sama expertise bi ñu ma koy jox ci ay billets may téye mhm. wóolu na confiance sociale boobu askan wi yëpp maase óolu benn mbir. di ko di ci joxe seen alal. moo jox kayit bi valeur sax. moo jox ko c'est la confiance qui donne moo tax se dimension sociologique là ñiy jël monnaie di ko simplifier côté technique bi. ñu ngi ci erreur ñu ngi occulter. la dimension la plus fondamentale parce que askan pour alalam di ñoŋ fokk mu koy commercer. d'accord te pour mu koy commercer. il faut mu am billet bi te billet boobu fokk nit ñi óolu ko. donc kóolute googu da nga koy créer cest à que ñun monnaie bi nar a ñëw il faut mu am même kóolute di CFA am. naka lañ koy créer ba kóolute bi existe kóolute googu nag pour mu exister il faut nga monnaie bi balaa mu ñëw fokk nga bâtir secteur primaire buy produire suffisamment. ba sa pays am yenn résilience yi waaw en plus nga bâtir industrie boo xamante ne nii dem nga ba sa balance commerciale nekkatul déficitaire tey sa réew am na yenn autonomie yi am na yenn souveraineté yi. d'accord boo amee loolu nga bâtir nga commencé nag bâtir des entreprises yi nga xam ne dañu am puissance dem bu nga téye sa réew tout ce qui est stratégique et souverain nga téye ko laa nag booy def booy booy def changement. di di def évoluer nit ñi dañuy xam ne réew mi dafa am ay assises ba nga xamante ni lu ko yëngal. du du yomb boobu ngay mën a def transition bi ba noppi am sa monnaie bopp souveraineté monétaire bi ñuy wut donc donc ku xam ku xam loolu yëpp parce que ñun xam nañ ko parce que ñun ñoo ko ñun ñoo koy proposé ñun ñoo ne euh, euh, xam nga wax naa aspect sociologique aspect technique gu monnaie technique techniquement monnaie moo lay permetre prix yi ñu nga mun a maîtriser l'inflation hmm. c'est la c'est la gouvernance de la banque centrale ni banque centrale di di di di di joxe xaalis yomb na wala wala di muy seeralee xaalis wala di ko yombal mooy le taux directeur loolu mooy déterminer euh, inflation bi parce que nit ñi jënd bu xaalis yombee rek nit ñi dañuy consommer nit ñi bu ñuy consommer lu ëpp prix yi dañuy yokk d'accord donc te prix waay prix dafa fondamental ci économie maîtrise des prix parce que njëg yi buy yokk salaire u euh, ji day amet day day waaj day wàññi valeur bu doon moom cinq cent mille la am trois cent mille mooy dundam jékki-jékki dund gi passé à quatre cent mille moom il vient de perdre cent mille francs d'accord mais en perdant cent mille francs bu doon épargner deux cent léegi cent mille lay épargner banque ba vient de perdre cent mille francs de dépôt donc inflation dafa grave monnaie day permettre nga di ko maîtriser deuxièmement monnaie nga am sa monnaie bopp day tax bu sa économie soxlaa xaalis nga tëgg xaalis dugal ko ci économie bi. waaw am na ñu ko defoon si Covid bi. voilà mhm. donc monnaie mooy li nga xam ne genre oto bu amul essence que di nga def ci essence mu dem ba noppi monnaie mooy li nga xamante ne nii le coût du crédit. parce que crédit moo nekk ginnaaw économie. Mhm. banque bu nekk di day ñëw consommateur yi day ñëw leb entreprise yi ñëw leb banque bi soit day am xaalis lebal leen wala mu dem leb ci yenn banque lebal leen wala mu dem ci banque centrale mu lebal ko su amut ñee mënuñ koo lebal banque centrale moo koy lebal sama day créer xaalis lebal ko. d'accord donc loolu yëpp mooy souveraineté donc boo xamee loolu yëpp mhm. souveraineté da ko soxla à mais nag c'est stratégique looy planifier la doo xëy xëy xëy rek def ko mënul nekk ba noppi monnaie ne c'est pas le plus important ci planification développement économique monnaie mooy li mujj mone la marché industrie productivité d'accord da ngay produire d'abord pour nga mën a am usine soo amee usine di produire fa nga am marché soo amee marché da nga am monnaie buy permettre les échanges loolu mooy logique bi donc ñun musuñoo wax ne. Mhm. marché Sénégal rek moo ñu intéressé ñun dañoo bugg mus wax ne marché UEMOA euh, bi moo ñu gënal. donc ñun on a parce que nit ñi dañuy opposé. Mhm. souveraineté bu Sénégal ak beneen souveraineté bi. Mhm. alors que ne ñun on a jamais à ça ñun dañu gëm ne war nañu mën a bokk ak à plusieurs pays souveraineté bi am marché bu yaatu. di produire di jaay xam nga sama magasin ne buñ produire train jaay ko ñee donc ñun logique boobu lañu ñu am. léegi nag. loolu on l'a toujours dit je pense que wax naa ko sa plateau euh, même daaw waxtaan nañ ci on l'a toujours expliqué mhm. dara dara changé wul mais bu ñuy def programme ah. on est obligé de dire économie def point franc CFA mais bind ko mu simple ça ne veut pas dañ ko simplifier et que suba lañ koy def ah am na ñu ne moom yéen moom ni ngeen ko bëgg a defee moom mu ne moom moo tax ah. ma ne la polémique bi ñi ko inventé mooy ñi ko indi mooy ñi nga xam ne dañuy jël lu complexe bëgg ko simplifier ñii ñu jël lu nga xamante ne nii euh, programme expression programme la ñu bëgg ko politiser def ko débat pour wax rek lañ ci bëggoon wax rek lañ ci bëggoon mais gisoon aussi instauré na benn débat programmatique parce que. au moins. oui mais mais nañu wax si même Amadou Ba sax wax na si. Euh, mais qu'ils aient nañu am président Macky wax na si nañu am wax réellement ñun li ñu wax boo buggee poser un débat tu ne par le débat de manière tronquée. xam nga ma wax. boo ñëwee waxal ne bon Pastef dañuy proposer souveraineté monétaire parce que c'est des ba ñu dégloo Ousmane wax la wax tel wax tel wax gis nañ ne plan bii lañ am plan bi lañ am lii mooy seen priorité léegi nag sur la base de ce qu'on a dit réellement booy opposé wu nga opposé mais bu ñu inventé lu ñu waxul ba noppi ne léegi yow da ngay opposé wu. <laughs> mais yéen naka ngeen ko mën naka matérialiser Ameth nga baal ma. naka ngeen ko fas yéene yow matérialiser. ak ci àpp bi ak tamit ci démarche bi loolu yëpp naka ngeen ko fas yéene defee. gis nga euh, tey jii redresser suñu situation budgétaire. waaye redresser suñu situation économique. def les grands les vrais fondements de moteur loolu yëpp rek ça va prendre un mandat. minimum cinq ans. ah oui je sais pas même au plus. d'accord donc par honnêteté on est obligé de l'écrire dans notre programme parce que on s'y inscrit mais nous savons très bien que ne ñun bëgguñu. mun waruñu def monnaie bi dans six mois ou dans un an on ne va pas faire ça d'autant plus que ñun suñu priorité mooy na ñu créer une diplomatie avec la sous-région wow. pour amener les gens tout de suite ñu créer monnaie commune mmh. au niveau d'un espace parce que espace bi lañ gën a soxla ko monnaie bi d'accord donc ñun loolu mooy suñu gëm-gëm léegi nag ku ñuy critiquer amal honnêteté nga waxal ñu li ñu wax ma ndax di nga am fitu opposé wu ci mais dafa yomb trop nga bëgg a défendre les intérêts français ba noppi nga bëgg ñëw waxal lu ñu waxul parce que en réalité dafa am ñoo xam ne ils sont plus français que sénégalais. Hmm. boo xoolee ñu ci wax ñëpp français la ñu gën a bu gisee. seen Sénégal doon xeex ak France France la ñuy faral. kan xalifa ngay wax wala. man daal dama man daal sama gejj laa weer. ku en fait non moom moo critiqué ci. candidat moo ci wax ouvertement ñi critiqué bëri mais man daal li ma wax mooy am na ñu nga xam ne intérêt France d'un point de vue purement de la planification ak nañ ñu waxal ñun li wax. lan mooy sa lan mooy sa réponse catégoriquement ci Khalifa Babacar Sall parce qu'il a parlé des questions de réserve ak yeneen ak yeneen parce que puiser ko il faut nga am à la loo xamante ni lu solide moom lay doon pour nga mën a construire loo xamante ni une monnaie lay doon lan moo ci nekk sa réponse catégorique vis-à-vis de Khalifa Babacar Sall et de la manière dont il a critiqué moom lan mooy point de vue am da da ko mos a defal ñun nga xam ne dañ ko théoriser wax ko waxati ko c'est pas lui qui mène le débat je suis désolé man du may wax ci ma ne du par rapport ak Khalifa Sall ko défendre musu ko wax il l'a soulevé pour créer polémique moom ak Abdoul Mbaye ñu xamante dëgg donc c'est du fi nekk di leen répondre musuñ koo porter gëmuñu ko ñun liñ ci wax dafa musa leer amul polémique nañ na nit ñi attaqué li ñu wax ñun dañ ne buñ ñëwee on va mettre en place une stratégie avec les pays africains pour am marché avec notre propre monnaie gérer suñu gouvernance bu ñu dawalee 6 ans 7 ans 10 ans gis ne ñii kat fasu ñoo yéene def ko en attendant ñu ngi doon travailler ñun suñu économie pour mhm. am suñu monnaie bopp ñun stratégie boobu lañ mës a teg stratégie à deux têtes mais la priorité c'est le marché ak monnaie bi mais bu ñu toogee 10 ans ñii nanguwuñoo avancer on aura suffisamment de temps ñun pour travailler suñu économie am inverser balance commerciale bi atteindre yenn niveau de production secteur privé am yenn industrie ba mu leer ne tey bu ñu amoon suñu propre monnaie comme Bangi comme Mauritanie dinañ ko gérer noo xam ne mooy gën ñoom boobaa mu amuñu choix il va falloir que ñu am suñu souveraineté souveraineté lu mënta ñàkk la mais am na nu am na nu mu gëne ni mu gëne mooy ñu bokk ak réew réew réew yu bëri mais sur dix ans mënta ñàkk du lu ñuy xëy nag rek def ko tey parce que ñoom débat bi yëpp dañu bëgg a gëmloo ne ñun on est des aventuriers mm-hmm. xamuñ li ñuy def buñ ñëwee suba rek dañuy andi mën a bi foofu la saa la bëgg andi wax ñun danoo musta wax loolu donc su buggee en débat sérieux nañu waxal li ñu wax ba noppi mu contre li ñu wax ñu mu xool ndax dina am argument du ko am ok merci beaucoup Babacar. Euh, l'aspect géopolitique laa bëggoon yokk mais baax na tontu na ko ba pare. merci merci waxtu bi moo ñu. moo ñu xaw laataa may jox euh, gars yi ñu. Euh, ñu daal di euh, tàggatoo ma dem rek euh, nuyuwaat suñu partenaires yi nga xam ne ñoo ñu doon gunge ci émission bu mag bi la di Mbecté di Mbecté koor ku ci mel ni Tima délistrateur sànq ba léegi maa ngi koy wax yu baax yi ngeen xam ne moom la gars yi jëfandikoo moom moo ko fi daal di indi nekk fële ca Wakaam rond point Y numéro téléphone am ngeen ko noté pour def seen i commande ñu livrer leen fu ngeen mënti nekk ci Sénégal muy 962 77 962 47 99 40 962 47 99 mooy Tima Delis traiteur bu ñu jógee ci moom dañuy jaajëfal aussi ki nga xam ne Euh, moom mooy hôtel euh, Al Afifa mi nga xamante ne nii moom ñoo ñu euh, gunge jox leen bon yu am solo yi nga xam ne mën ngeen ko gañe man ngeen dem def seen i commentaire surtout su suñu page yi lu ci mel ni Instagram ak Facebook bu ngeen demee foofu bon yi ñu ngi fa mën ngeen def partage yu vidéo bi ngeen ko fekk muy maye bon yi ngeen tagge ci seen ñaari xarit demain incha allah Maymuna avec toute l' équipe digitale dinañ ñu indil résultat yi ñu daal di joxe. Euh, bon yi euh, di gërëm aussi waa Casamance mi nga xam ne moom mooy ndox mu sell woyof te wér te wóor euh, di leen gunge ci weeru koor bi di leen hydraté waat bu baax a baax lu ngeen ci naan doyul ndax dafa baax ci wér-gu-yaram baax ci li nga xamante ne nii moom mooy moom mooy koor ku ko xëddee sax doo xiif Casamance boo ko xëddee nii 10 litres bi nga naan sàcc naan ko boo ko xëddee doo xiif merci beaucoup waa Grand Théâtre ñoom aussi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mais man aussi ki ma ki ma def nii ba ma mel nii ma man maa xool te du ngeen am gàcce bële bii nga ma diggoo man maa xool te du ngeen am gàcce waaw ah, bu ñu ma xoolee du ñu rus samay soppe ko <laughs> samay soppe bu ñu ma xoolee du ñu am benn gàcce kër Rasoul Couture ñoom ñoo fi jaar nekk fële ca jam ñaajo Euh, derrière hôpital Elisabeth Diouf 77 500 77 535 42 88 di gërëm madame Dembélé ak toute l'équipe donc Kër Rasoul Couture euh, nekk fële ca Diamniadio euh, ñoo def lii quoi ñoom ñoo def lii ñoom ñoo mel nii daal ñoom ñoo dàqa ñoo gars yi xale yu mën a ñëw ñoo fa nekk agence sénégalaise d'études espace spatiale ñoom tamit bokkoon nañ ci ñu ñu gunge di agence boo xamante ne nii seen liggéey am na solo te te mucc ay soxna si maa ngi lay gërëm di la sant yow jërëjëf Ameth bu suba incha allah ba ëllëg ak beneenu candidat. incha allah jërëjëf jaajëfal naa la bu baax a baax. Mouhamed jàllo kontaan naa ci bokkaan ak yow jotaay bi ñaari Mouhamed yi ñoo sekkoon Balla Moussa. <laughs> jërëjëf Ameth plaisir partagé kon bu suba incha allah. merci beaucoup Babacar ba ëllëg dangay ñëw indi beneen gan wala. <laughs> wala classement bi ngay xaar suba suba maître El Hadj Diouf ñëw incha allah. <laughs> suba maître yi nañ ko wax te yàlla rek tax. bu bokkoon ñàkk a nekkum candidat moo wàññi xorom si. dañ <laughs> wax yàlla ah, ma si moo ci métti ñu bari. bari na soppe Sénégal te nit ñi xamuñu ko. surtout ñi ko compte. waaw yaakaar nañ nit ñi sopp neex la ñu xañ. <laughs> suba nañu ànd ak moom fii ñu déglu. waa amaana donc peut-être ba suba incha allah mais amoon naa mbégte gu mag a mag partagé plateau bi ak yéen. surtout ak suñu invité parce que les gens aiment beaucoup l'écouter sur mhm. des mhm. questions techniques mhm. parce que à chaque fois bu ko ci posé xam-xam bu leer nañ moom la lay tegal ñu amoon euh, démb nag comme dama ko tànc parce que dafa am fu mu waroon a dem mais malgré tout dafa sacrifier loolu pour ñëw ci émission bi donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi di ko remercier bu baax a baax di remercier ñëpp ci nga xam ne ñu doon teewlu jox lañu daje ba ëllëg incha allah sob seen borom merci merci beaucoup Babacar Kébé ba ëllëg incha allah ak euh, maître El Hadj Diouf ba euh, ba Baara Mouhamadul Amin waaw jërëjëf Mouhamed Ndoye yéen a tey jot gis nga. waaw day jot de day jot de waaw. waaw kër Kébé laay clash àll quoi. non laaj ma laaj ma garmi lu ma waxoon. waaw Amadou Mbaye garmi mm. dafa sax xorom. nee na ma grand buubu bu buubuwul grand buubu parce que buubu gi moo tax ñu naan ko grand buubu moom noonu la ko comprendre nee na grand buubu bu buubuwul ndooy hey borom da koo àbb moomu ko. grand buubu day buubu yére loo ñaw ñaw ñaw. Amina Niass jërëjëf Amina Niass moo ñu moo ñu solo la fi. Amina Niass comme d'habitude dañuy jox t-shirt dañuy ñawal euh, dañuy jox. voilà Amina Niass bu. Euh, benn mi rek bu Baye Mbaye MC. déedéet. Sénégal Amina Niass Sénégal moom a <laughs> ci lépp moo ñu taxaw ci tisi taxaw ñu ci yére taxaw ñu ci dàll ci bunt <coughs> tout macha allah jërëjëf di koy jaajëfe numéro moo di 77 724 94 19 77 724 94 19 Amina merci beaucoup jërëjëf ba suba incha allah ba suba incha allah Mouhamadul Amin Baara sëñ bi Fafana kontaanati nañ ci bokk ak ci bokk ak jotaay man bëriwul nag li may wax gars yi sa dama la mais yow sopp naa la si xam nga damaa doy waar gis nga ci sama jikkoog saytaane def naa lu ne pour nga nekk candidat bi maa ko njëkk a commencé ruuma ndaat <laughs> kon yow andil nga ma coow lu bëri <laughs> man yow yaay sama soppe ah vraiment vraiment Euh, plateau bi moom bokk na ci moo tax bi ma ko bi ma ko kii Kébé waxee ma ne ko ah non Mbégte moom mm-hmm. je garde benn euh, très bon souvenir émission la boo xam ne bi ma ko defee daaw ñu bëri dañ ma koy wax mm-hmm. ma ne ko ah kon yéen da ngeen maa jik mm-hmm. moom damay ñëwaat vraiment euh, waaw xam-xam du pexe <laughs> balaa nga koo xam nga sàkk pexe ci loo amul xam-xam <laughs> donc donc laa am vraiment ñëw bokk yéen plateau bi encore une fois j'apprécie cette jeunesse Mm-hmm. il va avec ce, ce ben professionnalisme. Mm-hmm. et ça donne de l'espoir ah ça nous permet de comprendre que l'avenir du Sénégal mun dafay nekk avenir bu prometteur quanton on des jeunes compétents qui ont des qui des résultats et benn rigueur bi dañuy xam ne li li nekk suñu kanam dafa war a daal suñu xat mm-hmm. donc vraiment loolu lañ ci sant di ñaan suñu borom mu dimbali ñu ba euh, suñu koor gi yàlla nangul ñu ko. amiin bokk ci koor yi nga xam ne moo ñuy wallu ëllëg bu ñu waree jàkkaarloo suñu borom. di ko ñaan mu xool ci koor gi ci gan gu mag gi dimbali ñu ba élection yi mu def ci ndox mu sedd guy goo xamante ne nii day doon yërmande ci askan wi. Euh, di ñaan suñu borom bu fekkente ne ñun lii ñu porté mooy li gën ci askan wi yal na ko yàlla def. amiin euh, bu dee doon safaantam na ko soppi ba mu doon li gën. te mu mhm. def ko. amiin mën na ko dara tëwu ko. ndax moom mhm. amul limite. Mhm. di leen jaajëfal kàddu yi nag moom lu ci lu ci nit yëg rek ci tooñ na ma ko jégal. Euh, waxloo ngeen ma ci Pape Djibril nag te nit la koo xam ne dama ko je le porte ah dans mon cœur je regarde comme un jeune frère Mm-hmm. Euh, na ma jéggal bu fekkante ne waxee naa noo xam ne xëy na arrangé wu ko. non adversaire la ba dimanche rek. il il comprend. adversaire la ba dimanche bu dimanche mu dellu nekk rek dama bëri ñeewante non fi mu toll nii <laughs> fi mu toll adversaire la du rek dimanche daal wala lundi bu ñu yeewoo mhm. mu nekkaat rek mu nekkaat rek moom rek lay doon ah <laughs> lii la ci bëggoon ah candidature c'est en tout cas daal Pape mu nekk Balla Pape ñii ñoo ma jaxase ak yow Pape Sam Awa <laughs> Fall moom la ñu xamal suba incha allah kasawaay la ah, am nga non ku baax la ku baax la borom borom baax la donc vraiment jaa ngeen jëf mhm. di wax waa Bawol rek surtout di leen remercier parce que ñu ngi campagne campagne bu metti mhm. euh, koor gi ñu ngi ci naaj wi mhm. bu ñu dogoo ñu ngi ci àll bi euh, di wax aussi communauté rural yi nekk ci environnement yi que ne ñun ñoom ñooy nekk suñu priorité pour les jours à venir ñoom ñëpp nañ taxaw di wax waa Bawol nañ taxaw ñun fas nañ yéene en tout cas ñaan nañ ko yàlla ñu yàlla dimbale ba au soir du 24 ñu ne gagné nañ les élections au premier tour et que département de Diourbel bokk na ci département yi nga xam ne dañu gagné ba joxe au niveau national des scores. jërëjëf jërëjëf yàlla na ko yàlla def leen gërëm encore une fois. Balla Moussa Fofana <laughs> merci beaucoup di ko jaajëfal bu baax a baax euh, di jaajëfal mbooleem euh, équipe euh, technique bi nga xam ne ñoom ñoo jàpp poon ci liggéey bi ba mu yemb ngeen mënatuñoo dégg ko gis amul benn jafe-jafe Mouhamadou Diallo moo nekkoon ci coordination bi Omzito Oumar Samb ak ki nga xam ne moom mooy du Diop ñoo nekkoon ci réalisation bi feggoo woon ci cadrage bi ki nga xam ne moom mooy Prince Euh, te princesse nekku fi <laughs> di ko jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Thierno Ba moom tamit euh, ci euh, liggéey bu am solo bi ci wàllum technique bi aussi tout l'équipe commerciale sous la houlette de de Abdourahmane le directeur commercial ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Siré Goudia bi également Serigne Saliou ñoom ñoom ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ñu ànd ak ñun waa équipe digitale bi nga xam ne Maymuna moo leen fi toogal moom tamit boobu ba léegi nelawul benn yoon museur yeeg tagal yu am solo yi di ñu gunge ci li nga xam ne moom mooy émission bi ñu koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu tout non tout non tout non ah Saliou man ah Saliou Saliou chauffeur wax nga dëgg moo ñuy indi bu doon woon moom émission bi du am mooy gàddu bagage yi <laughs> waaw jërëjëf Saliou ñu ngi lay jaajëfal <laughs> bu bu bu baax a baax di jaajëfal suñu xarit yi nga xam ne ñu ngi ci suñu suñu page yi ay ca yokku leen yokku leen euh, teewlu bi partage yi ak li nga xam ne moom mooy am bi ñun ak yéen ñun ñoo far fu ngeen nekk dinañ leen fa fekk ba ëllëg incha allah ci beneen numéro Mbecté Koor guddig jàmm